ku leen taxaw déglu lii may wax borom Touba ngeen daal di xam ne borom Touba mooy borom Touba te bañ di tànk xam lu ngeen xam tey borom Touba te lii ma leen di yëgal lu bët ci soon la bawoo. billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain ya rabbi lisrah fi dawamin sadri sarhan bihi akunu misla badri rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokki julli di mbokki téléspectateur Touba TV ginnaaw bu ñu leen nuyoo ziare leen noo ngi ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha suñu borom yàggal ko fi loolu te mu wér di am mbégte bu baax a baax euh, di ñaanal euh, jëwriñ alaaji Mbàkke yu fay bi nga xam ne ni mooy jëwriñu Serigne Touba Xaadimu Rasuul ci Ndakaaru ak li ko wër ñu daal di tàmbali li nga xam ne ni mooy liggéey bi nga xam ne ni Touba TV digoon na leen ko euh, ci li nga xam ne ni mooy émission bii di kenn du Serigne mu émission boo xam ne nii àllarba ju jot da ngeen koy am ci télévision Touba TV ñu di ci àndandoo ak euh, téléspectateurs yi rawatina ñi nga xam ne ni dañuy saxoo de seetaan télé bi euh, xam ngeen ni ki ñu baaxoo àndal émission bi muy sunu mag sunu xarit sunu jëwriñ muy sëriñ Abdoulaye Diop Bichri bi nga xam ne ni ñëpp xam nañu xam-xamam bu am solo ak ni nga xam noonu la koy génnee tey jii nag ci biir émission yooyu ñu tànn ci boo xam ne ni nag spécial Serigne Touba lañ ko tuddee euh, mu nekk nag émission bi xam ngeen ne boobaak léegi def na ak diir ñu àndandoo ko ak bokki taalibe yi ñëpp di ko bëgg ci réew mi ak bitim réew ñu àndandoo nag ak groupe bi nga xam ne ni ñooy àndandoo euh, kenn du seriñ bi muy groupe WhatsApp bi nga xam ñooy kenn du Serigne Touba Xaadimu Rasul tey ñëw defal leen nag benn surprise boo xam ne ni fas nañ ko yéene àndandoo ak téléspectateurs yi euh, ci plateau bi xam ngeen ne maa ngi ci am Serigne Abdoulaye Diop Bichri ni ma koy waxee ginnaaw bi ma ko waxee joyeux anniversaire ni ko gars yi di waxee di ko ñaanal yàlla def ko defal ko mu am fan yu gudd yu baree baree baree bari ndax li muy liggéeyal Serigne Touba Xaadimu Rasul waaye ñu ngi ci am ci wetam eh, koo xam ne dañuy njëkke Xaadimul Xaadim door a indiw turam muy alaaji Serigne Gana Messere Maxtaar ñu di ko ziyaare bu baax a baax di am mbégte ci teewaayam ci plateau bi muy koo xam ne nii ni muy génnee li muy waxtaane ci Cheikhuna Ahmadul Xaadim dafa nekk loo am am solo eh, ci biir plateau bi am ngeen ci itam eh, sunu invité spécial muy alaaji Serigne Cheikh Diop Mbaye Xasida mi nga xam wax ne dafa bokk ci jàmbaar yi nga xam ne nii ci dund kenn Serigne Touba Xaadimu Rasuul ñu am ci itam alaaji Serigne Cheikh Ngunda Gueye euh, Baye Fall muy jànkatu xasaayit bu mag moom it gis ngeen ko saa su nekk ci li nga xam ne ni mooy émission kenn du Serigne bi tey nag ñu am ay invité spécial xanaa tàmbale ko rek ci sëti Serigne Touba yi nga xam ne ni am nañu leen ci plateau bi ñu dooree ko ki nga xam ne sunu Serigne la sunu xarit la sunu lépp la waaye itam xaritu mboolem ku nekk ci plateau bi la muy sëriñ Mamor Mbacke moom sëriñ Abibu moom sëriñ Manumbe bi nga xam ne ñëpp baaxoon nañu dégg jëfam ak taxawaayam ci mbooleem ku yëngu ci yoon ci ki nga xam ne ni euh, mooy sëriñ Jili Ñang kennal sëriñ Touba Xaadimu Rasul euh, yaakaar naa ne euh, li ñuy wax ne lettre boobu soo ko bindee rek ñu yët ko ko ndax taxawaayam ci yoonu murit tey jii nag ñu ne ko tey dañu laan boole ci nga xam ne ni tey ñooy président d'honneur yi nga xam ne dañoo jàpp ci liggéeyal ci ñi ci yëngu tey ñu ngi ñëw jóge Touba sëñ Mamor mi ngi feggoo ak magam sëriñ Cheikh Mbacke moom Serigne Abibu moom Serigne Mundumbe waaye feggoo ak Serigne Modou Mbacke moom Serigne Mamor Mbacke Dendey ñu tax na nag ci télévision yi ay invité spécial yoo xam ne nii ñëpp xam nañu seen taxawaay ci yoon wi di ko défendre ñu tàmbali ci koo xam ne ni mooy alaaji Serigne Ndiaga Seck nekk fële ca eh, eh, rajo eh, RFM rajo Futur Média ñu di ko ziyaare bu baax a baax ci taxawaayam ba am solo waaye nag ñu teftal ci imam Ahmed Mbaye muy taaliba cheikh boo xam na nii ma nga fële ca Sen participer ba wane bëggam ci sëñ Touba Xaadimu Rasuul loolu moo waral tey ko ci plateau bi mi ngi feggoo ak Serigne Jibril Ndaw mi nga xam ne ni mooy directeur des programmes bu Touba TV ñu di ko ziyaare bu baax a baax tey mu ñëw ànd ak ñun li nga xam ne ni mooy plateau waaye nag mu am ay ndaw yoo xam ne ni seen taxawaay ci yoon wi mooy di dundal yoon wi di ko défendre waaye nag teg ko ci xam-xam ak njàngalem Serigne Touba Xaadimu Rasuul ñi ngi ci ràññee bu baax a baax Serigne Abdou Lahad Bousso maram di sëtub Serigne Massamba Kanni di borom xam-xam bu rafet di ko ñëpp itam di topp waaye mi ngi ci feggoog Serigne Abdoul Khadir Ba majalis muy Serigne Jili Ba ñu di ko ziyaare bu baax baax waaye mi ngi ci feggoo ak Serigne Omar Bamba Diop di borom xam-xam bu mag di xaafisul Quran waay itam ñëpp xam ne itam taxawaayam ci yoon wi eh, yéen mag xam naa damay bàyyi sëñ Omar bu jëlee kàddu gi dana ma leeral tur woowu muy alaaji Serigne Ceddo Murit Saadix jàpp naa ne ñi xam ñëpp xam nañu euh, taxawaayam ci yoonu murit ak ni mu koy défendre ak liggéey bi nga xam ne ni mi ngi ko ciy def incha allahu taala Pape Djibril Fall di ndaw loo xam ne ni borom xam-xam la di jàmbaar nekk fële ca télévision Futur Média moom itam ñu fas yéene bokk ak moom li nga xam mooy plateau bi ci ay thèmes yu am solo waaye ci ay questions yoo xam dana ko posé suñ ñaari borom yi nga xam ñoom la ñu bokkal jataay bi muy sëñ Abdoulaye ki nga xam mooy Serigne Gana Messere Makhtar ñi ngi ziyaare bu baax a baax sëriñ bu Mbay moom itam nekk fële ci RTS fas na yéene ñëw ànd ak ñun li nga xam ne ni mooy jataay bi su ko defee bu ñuy tàmbali rek ñu mën a xaaral euh, xaarandi invité yi nga xam ne ni ñoom itam ay kilifa lañu di topp li nga xam ne ni mooy jataay bi fas yéene rek ñu di leen tudd ci télévision bi nit ñi di leen gis waaye nag ràññeewuñ seen xar kanam loolu moo waral tey ñu invité leen ngir mbokk yi mën a xam ne ñii ñooy ñi jàpp ci liggéey bi euh, waaye jaarama télévision Touba TV ak techniciens yi réalisateurs yi ak ñi nga xam ñooy caméraman yi ak décorateurs yi ñëpp ñu ngi leen di ziare ñu jàpp ci liggéey bi sponsor yi nga xam ne itam ñu ngi ci ginnaaw liggéey bi fexe ba li jàkk ni may def mooy plateau spécial Sëñ Touba liñ koy ubbee mooy lim wax ne lu ma am ci laa ko amee nee lu am ci tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam laa ko amee wa bimtidaahika arju hahuna wa bu nii ci loolu la tàmbalee li nga xam mooy plateau spécial Serigne Touba Serigne Cheikh Ngounda Gueye dañuy bàyyi nga ubbil ñu li nga xam ne ni mooy euh, plateau spécial kenn du Serigne Touba su ko defee ñu ñëw ci plateau bi nuyoo leen ak gan ñi nga xam ñoom la am fas yéene tey guddi gi doon guddi goo xam ne ni guddi gu spécial la ci yoon murit waaye guddi gu spécial la ci Touba TV bismillah Serigne Cheikh أعوذ بالله من الشيطان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 وهب لمن به يناجي ما يروم رب بنوح وبإبراهيم لاغفر ذنوبي واكفني الرجيم وكن بموسى وبجاه عيسى واقيني دنيا وأخرى كوسى وبمحمد رسول الله عليه خير صلوات الله ثم عليهم ليهب إيمانا قد ساهب الإسلام والإحسان بحرمة الصديق والفاروق جد لي بالإخلاص والتوفيق بحق عثمان أقي النارين وبعلي والد السبتين هب لي في دنياي مه أخراي النور والحلو والمزايا بعقد العطاء وبزبير وقساد النجني من دير وبسعيد وابن حوف النجني من كل ما أقافه من فتني وبأبي عبيدة يلب ما يفيد إلا جنابي وفي عني ما يبيد بحق عبد الله نجل الحم أي ولد الحباس كسر علمي بحق عبد الله نجل عمرا عنك في دأبا ما يجر دررا وبن مسعود وجاي السلام خن البلاء ودر عين وكرام يا ربنا العالم ثم الداهر سفي سواهري محد مائري بحرمة الطيب إبراهيم أدم علي البشر والتكريم بجاه فاطمة أفتم نفسي عن كل ما يجرني لحبسي وبرقية وزينب فيني أترد والعجاب كل زمني وأمم الدنيا وأخرى بالكرم بأم كلثوم وجن بن النقم بأوس من عامر وارماء وحق مسلوخ تقبل كلمي وبربه وبجاه الأسود هب استقامة وقوم أودي بعامر بن عابد الرحمن وبأبي مسلمة الخولاني لي بالغفران والسعادة والحلم والحمد والعبادة بالعسل البشري حبلي الورى والانسلاخ من عرايا والبداح وبأبي هريرة وببلال وبصهيب رب جبلي بالنوال وداد قبل وسنين الداي سرا وجاه bi hurmatil miqdaadi summa xaalidi wa bi zubayri awlidil maqaasidi wa bi amiril muminina xomara fi niya makran wasaqan wa qarara bi xaqi qaa'idil mujaahidiina علي الذي أعان دينا بحق ساد وبحق عروات زدني تمسكا بوسطى حروات بحرمة القاسم ثم قارج زد يقف المجتبى المناحج وبأبي بكر وعبد الله زدني فضلا ما لو تناي وبسليمان خني كيد اللحين وقيد خيره وكن لي معين بأمنا خديجة حبل الأمل في العلم والآداب ربي والعمل بأمنا عائسة الخنية معا يدلني في الأرضين والسماء بأمنا حفصة حلبين أبد وبينما يجور سوءا ونكد بأمنا زينب زين ما صار مني وما بطن واجعلني وزر بمالك وسافحي وأبي حنيفة وأحمد للصيبين بجاه جبريل استجب سؤالي وبلغني مبلغ الرجال بجاه ميكائيل حبلي نعما ونفي يجعل مثل قيس كرما بجاه إسرافيل حبلي اسما ولتكفيني أحوال يوم القمة بجاه عسرائيل كن جميل طول حياتي وقسى بحد الرحيل واجعل توسلي لمن يدعو به سعادة الدارين واغفر لي به واجعل توسلي لمن يدعو به سعادة الدارين واغفر لي به ولليد ولليد وبسعادة وبالحماية عن جملة الأسواء والحناية وبنجاة من سؤال وعذاب وسكرات الموت رب والعساب وبالبسارات وبالسرور عند مماتنا وفي النسور وصليا وسلما على النبي وآله مع سياب النجبين واغفر لوالدي واغفر للجميع أهلي وجملة شعبي يا سميح واغفر لكل ذي تعلق بها وأحققا سعادتي يا ربي والتف بنا وخينا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا وسليا على النبي وسلم واقض بي حاجة كل مسلم وسليا على النبي وسلم واقض به حاجة كل مسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين xam ne ni mooy plateau bi euh, ñu am mbégte bu baax a baax nuyu suñu waajur suñu kilifa alaaji Mbàkke yu jël ko teg ko ci télévision bi euh, muy doxal liggéey bi muy suñu xarit suba ba léegi moom ñun ñoo nekkandoo fii ci plateau bi di yëkkati di teg muy Serigne Cheikh Balla Samb ñu di ko siyaare bu baax a baax mu teewa ndale fii ki nga xam ne ni mooy jëwriñ alaaji Mbàkke yu fay ba fii li nga xam ne ni mu ngi yegg si ñu di ko am ci mbégte ci teewaayam euh, su ko defee euh, jàpp naa ni ma ko waxee woon léegi rek damay tàmbali nuyoo ak euh, gan ñi su ma nuyoo gan ñi ba noppi bala ñoo dugg ci waxtaan wi nag am na ay xeeti kado luñ loolu rek lañ ko mën a tuddee yoo xam ne ni groupe kenn du sëriñ bi dajale na ko ngir fas ko yéenee saafoxante ak kilifa yi nga xam ne ni ñoom ñoo am ñoo nekk ci biir plateau bi balaa boobu sëñ Bàcci Fay xam naa bu fekkee ne jege na ñu tàmbali ci sëriñ Abdoulaye Diop Bichri waaye balaa sëriñ Abdoulaye ñu ñëw ci moom euh, dañuy dalal sëriñ Gana Messere euh, sëñ Gana ñoo ngi lay nuyu di la am bu baax a baax ci sa teewaay ci plateau bi euh, dama lay bàyyi nga nuyoo ko téléspectateurs yi nga xam ñu ngi lay seetaan su ko defee ñu daal di ñëw nag ci sëñ Gana Messere Maxtaar xam naa sëñ bàcci bàcci fay bu fekkee soriwul mu jege si kon sëñ Gana ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. Mm-hmm.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 ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa al Khalifa sunu borom yàggal ko fi te wéral ko. ba li mu naalal lislaam yëpp mu àggale ko. di ko ñaanal njabootu Serigne Touba gi yëpp. di ziyaare bu baax Serigne Amidou Diop mi nga xam ne. Mhm. moo dirigé jataay bi mhm. feggoo ko sunu mag ji Alaaji Abdoulaye Diop Bichri. Mhm. di leen nuyu bu baax di leen dal di leen jaajëfal bu baax. nuyu njabootu sëriñ Touba gi nekk ci jataay bi maa ngi. tàmbalee nuyoo bi ci sëriñ Mamor bi ñu feggool moom sëriñ Habibou. moom Cheikh Mandoumbe ak sëriñ Cheikh bi mu feggool. donc leen di nuyu bu baax balay sa buri di leen ziyaara bu baax leen joxit seen wàccuwaay bi ngeen yellool. di nuyu bu baax sëriñ Jili Abdul Xaadir Ñang moomu kenn sëriñ Touba. ak sëriñ Jili Ba. ñu ngi leen di ziyaara bu baax. ak sëñ Mamadou Guèye moom mun àndal waaye di nuyu ahlu xaddiim yee toog xam naa mën naa ko jaaree ci ceddo mm-hmm. ñoom wax naa leen léegi nii yéen moom seen image ku ko gis rek automatiquement day am lu daal daw ci sa xel am loo yëg muy sëñ bi ci lii ñu titre fee wax kenn kenn du sëriñ bi mm-hmm. di nuyu sunu naataangoo yi sunu bokk yu baax yi nga xam ne dañoo wuy si si jataay bi mm-hmm. al oustaz euh, Ahmedou mbay mm-hmm. Ahmed mbay mais ñoo ngi koy nuyu ak euh, oustaz Ndiaga borom Arafat ñoo ngi koy <laughs> <laughs> nuyu bu baax a baax waaye fàttewuñu sëñ bu mbay RTS jàngkatu xasida la mas na ma daaneel jël bu métti ci benn mhm, mhm. rajitu bu mu doon jàng mhm. euh, Pape Djibril noo ngi leen di nuyu bu baax di nuyu ñi fi teew ñëpp di nuyu it borom kër gi nga xam ne tey moo taxawal lii lépp te am ñu ko àndal liggéey bi muy alaaji mbak yi fay di ko nuyu ñaari yoon di ko nuyu eh, réew eh, dëkk bi di ndakaaru ginnaaw moom la fi sëñ bi teg moo fi yor kàddu sëñ bi kon mën nañoo jël nuyoo kilifa yi fi nekk yëpp jaarale ko ci moom teg ko ci loxoom waaye sëñ Ndaw moom di sunu waay nu ngi koy nuyu Baye Cheikh Balla Samb mm-hmm. nuyu ahlu xaside yi sëñ maam mi doon jàng léegi mm-hmm. macha allah njàng mi am na solo lool mm-hmm. kon noo ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp xam na lu des ci kii bi noo ngi koy lu baax a baax incha allah eh, jërëjëf sëñ Gana ñu am mbégte bu baax a baax ndax buñ ko nee Touba TV day sawar lool ci ñëw ànd ak eh, ñun li nga xam ne mooy liggéey bi eh, sëñ Ablaye maa ngi lay nuyu bu baax a baax di am mbégte ci sa teewaay xam naa bu sëñ bàcc jege see rek balaa ngay nuyoo sëñ bàcc na ma indil euh, sëñ bàcc na ma indil decoration bi bi nga xam ne dafa jëm ci sëñ Ablaye soxna maam Mbeye nañ ma xoolal diplôme sëñ Ablaye ak euh, waaw bisimilah génnal benn rek benn rek indi benn mën nga koo dindi da ngay génne yépp génn benn waaw des na yaakaar naa benn mbuus boo xam ne nii indi bi voilà des na benn boo xam ne nii war nañ koo indi yaakaar naa soxna Nogoy Ñang eh, bu ngeen ko ko laajee dana xaw a gis sëñ Ablaye eh, yow na ngay jàmbaar ci yoon wi ñu waxtaane sëriñ bi su ko defee waaye dañuy def bu ñuy ñuy def lu mel noonu dañ leen di faral di jox cadeau waaye yow bu lañ lay jox. nekk ki nga xam ne nii moom. moom la Baye Modou di wax ne moom mooy dem dikk waaw dem dikk ngi nii kii moom waa kenn sëriñ bi ñoo la ko jox waaw ah, ci bis bi yaakaar naa am na beneen bismillah des na beneen des na beneen bi nga xam ne moo def moo def moo def mbubb mu rafet mi nga xam ne nii bokk na ci dëkk yi nga xam ne nii hmm, yaakaar naa soxna nogo yi ñang waaw kay kii mooy diplôme d'honneur bi nga xam ne nii dañ ko tuddee bëgg Serigne Touba diplôme d'honneur bëgg Serigne Touba loolu yaakaar naa ne honneur la ëllëg yowmal xiyaam sax ñu ne kii daa bëggoon Serigne Touba rek loolu honneur bu rëy la ñu ne diw daa bëggoon Serigne Touba rek honneur la kon nag euh, mu ngi noonu li waa groupe kenn du sëriñ bi sa taxawaay ci yoon wi ak li nga liggéey rawatina ci sa xam-xam ak yitte ji nga ci def ñu jox la ko bala ngaa nuyoo su ko defee ñu bàyyi ko mu daal di nuyoo ak téléspectateur bismillah sëñ Bàcc sëñ Ablaye ñoo ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoo ak téléspectateur macha allah tabarkalla bismillah macha allah mhm. yaayoo nga ko bismillah <coughs> ay ca mun nañ laa bàyyi nga nuyoo ak ñi nga xam ne ñoo lay seetaan aouzu billahi min alsheytaani irrajim mhm. bismillahi irrahmani irrahim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 wa ala wa sahabatihi wa xayri xadimihi wa ummatihi ajmain ixwatal kiram ayuhal muslimun wal muslimat ayuhal mushahidun wal mushahidat fi kulli makan nu bikum wa nusallimu alaykum bi taxiyati ahlil janna wa naqulu lakum assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk yu tedd yi ni topp mbokki jullit yeeg mbokk taalibe yëpp mu ngi leen di nuyu ci goxi àdduna bi yëpp di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen baalu xaq di leen baal ñu ngi jiital ci kàddu yi sant yàlla sunu boroom ci tawféex jëm ñu defal te tawféex jooju bi ci gën a rëy di def jëm ñu def ay jullit boole nu ci xeetu yanant bi alayhi salaatu wasalaam di ko sant tam ci boole gim ni booleeg Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul muy jëwrinu yarant bi di ñaanal sëriñ Muntaqa Bachir mi toogee jataayam yal yàlla dolli ko wér yàggal ko lool ci sunu kanam Mbàkke Balla mu yàgg noo jox ndigal naka noonu di ñaanal sunu bunt ci sëriñ Touba sëriñ Hamsatu Mbàkke mu sëriñ Suwayb yal na yàlla yàggal ko lool mu ngi siyaara njabootu sëñ Touba gépp di siyaara mboolem kilifa diina yépp di ziyaare soppe yépp di mbokk yi ñuy topp yépp ci jataay bii di kenn du sëriñ bi euh, di sant bu baax boroom kër gi alaaji ahmadu mbàkk yu fay di ko ñaanal ndax su nu mënee am émission bu yaatu di ci jàngale njàngaleem sëriñ Touba ba nit ñi diñ ci xool diñ ci sopp ba jataay bu mel ni juddoo ci lépp ci jàppa dalam la yàlla sàmm ko te dolli ko taxawu ci lii mu yoral sëriñ Touba ci Dakar yàlla ci am ndam biir ak biti te bu ko ci dara dog ci barke Cheikhul Khadim nu ngi nuyu sunu nijaay sëriñ Serigne Cheikh Balla Coro Samb mi mu jox lépp mu koy doxal te mu téye ko téye bu rafet di nuyu sëñ Jibril Ndaw mu yor programme bi di nuyu Mbacke Mbodj di la nuyu baax sëriñ Hamidou Diop di la bëggee fu ñu toll liñ la waxoon rek dañ laa jàppee comme rakk juñ bokkal ndey ak baay te loolu sa melo moo ko indi mm-hmm. nit ku yaru nga mm-hmm. nit ku dal nga ku bëgg sëriñ Touba nga te man damaa bindoo ku bëgg sëñ Tuubaa xam amatul sikk ci man soo xasee bëgg ko rek bëgg naa la ba jeex amatul sikk ci man dama laa càmbar ba xam ne yow bëgg sëñ Tuubaa rek a nekk ci yow kon yàlla na yàgg maa ngi lay bëggee bu baax di am mbégte bu baax tam mm-hmm. ci sama rakki bopp sama kóllëre bopp sama soppe bopp mm-hmm. di kenn ci man may kenn ci moom ñu bokk lu ñuy def te déggoo ci lool lu ñu réeroo ci dara muy nit ku baax te mën a waxtaane sëriñ bi mm-hmm. day ku ñàkk ki ñaan di sëriñ alaaji Gana Messere Moxtaar mm-hmm. yàlla yàlla sàmm ko mm-hmm. yal yàlla yàggal lool taxawaayam mu yàggal liggéey sëriñ Tuubaa bu mu ci am benn pakk ci barke Xaadimu Rasuul nu ngi nuyu bu baax suñu kilifa yi nga xam ni ñoo ñu sagal lii sag la bu rëy rëy ñoom seen jub yombul waaye ñu dagg yi te yëpp dikk sagal na te sëriñ Maam Mor mi yàgg na noo sagal nit ñi di waxtaane sëriñ Dekk jàng xasida yàgg na noo sagal waaw ndax sag bi gën a rëy mooy fekk la ci sëriñ bi ngay liggéey mu la ciy dooleel di ci def lu mu mën ak lu mu mën te ñun ñëpp mën nañ koo seere kenn umpalewut loolu xaalisam yitteem yéeneem yëgam lépp lay jox liggéeykatu sëñ Touba yi di ko def rek ngir sëñ Touba ak sëñ Mandumbe maama kon yàlla na yàgg lool Mbàkke Balla di nuyu sa mbokk mu baax mi nga feggoon di ko siyaar moom suñu soppee bu yàgg la ñu ngi koy nuyu bu baax sëñ Seex di ko béggee bu baax a baax ci jataay bi di nuyu tam seen rakk ju baax ñi ngeen àndal ñu ngi nuyu ñëpp bàyyiwuñu kenn di leen jox seen wàccuwaay bi leen yàlla jox ñu ngi nuyu sëriñ Abdul Xaadir Ñang kennal sëriñ Touba sa tur wi neex na ma lool ndax ci boobu kuréel laa yàlla na yàgg lool ñu ngi lay ziar di nuyu sëñ jiiri Abdul Xaadir ba moom it bu baax ci taxawaayam ci tasaari liggéeyu sëñ bu baax di nuyu alaaji Seex Jóob Mbaay nga xam ni kenn la ci nun noo bokk géejawaay nu ngi koy nuyu di ko dalal moom di nuyu sëriñ Seex Ngunda Gay ci njàng mi waaye beral nuyoo bu baax sunu soppe di taalibe seex bu baax di taalibe seex bu bëgg Seex Ahmadou Bamba waaw te loolu may wax xam na ni dëgg la nit ku bëgg sëñ baax euh, nit ku am xam-xam la nit ku yaru la muy Serigne Mouhamed Mbaye oustaz Mouhamed mbay bu Sen TV bi mu ngi koy beral nuyoo sama soppe la sama xarit la maa ngi koy nuyu maa ngi nuyu bu baax a baax Pape Djibril Fall waaw yàlla yàlla yàggal sa taxawaay senegal ñëpp a lay bëggee waaw parce que ndaw lu am respect waxam discipliné mu am des sources des preuves xam luy déontologie jàng ba pare bëgg sëñ baax kooku daal taw féex la ci ndam la ci murit yëpp ñaaw ndam la ci Sénégal yëpp ndam la ci jullit yëpp kon yàlla yàlla guddal sa fan te jàppale la ñu ngi sant bu baax sunu frère sunu xarit euh, journaliste bu mag di Habib Mbaye di taalibe di formation Hizbut Tarqiyyah mooy maa ngi koy nuyu sama xarit la léegi bi muy dugg rek sëñ Hamidou sama xel dem ci Muna ca Makkatal Mukarram dañu fa am jataay bu neex boo xam moo ko lijjanti moom waaw daa ñëw rek ni ma fii dañ fi am ay mbokki naar kaay comme mën ngaa wax ak ñoom arab kaay rek ma ñëw ndeysaan ñu waxtaan rek ñu ubbil ma waaw keroog fa lañu mujj nekk man moom ak jiili ñaŋ ak kuréel bu rëy mujj nañ de yaatal nit ñi ba mujj gi mat nañ fa sax ndomb ñu ñuy defal teraanga yu nekk ba sunu mun naa neex kon nu ngi koy sant bu baax la ku bëgg sëñ Tuuba maa ngi nuyu oustaz Ndiaga Seck mm-hmm. bu baax moom it di kenn ci ñun di surtout Cheikh Sadio Mbaye mm-hmm. waaw waaye mu nëbb lépp kenn gisu ko nag di liggéeyal sëñ Tuubaa rek sax ci di sama xarit bi yàgg na maa ngi koy ziar di dégg lool ci teewaayam beral nuyu Jibril Ndaw nuyu sëñ Fàllu Sëy mm-hmm. ceddo murit saadix mm-hmm. wax naa ko bëri ki démb ne ko sa fansala mm-hmm. dama koo faan waaw ndax li muy wax dafa am source dama koy wax ak xereñ ak pertinence pare def ko bëgg Serigne Touba di activiste boo xam ne fu mu toll mu ngi xool luy défendre yoonu di ci dax di ci dox di ci wax yàlla yàgg sëñ Abdoulahat Bousso Maram nu ngi lay nuyu li ma wax ci Serigne Ndiaga a ci nekk moom mais surtout Serigne Bousso la direct bokk Serigne Massamba bu Bousso mm-hmm. waaye ku oyof la bëgg lool nag ndamal yoon bi boo nekkee ci plateau boo nekk message am dala fay fekk mu lay encouragé di waxtaan ak yow yal na yàlla yàggal ko te dolli ko taw sëñ Fallou Sey ñu ngi lay nuyu ñu ngi nuyu Cheikh Omar Bamba Diop mi nga xam ne moom sama xarit la waaye sama mbokk la tam dañoo bokk nag benn néeg maa ngi moom a mm-hmm. koy sant bu ko ziar kon naa ñëpp mm-hmm. sant naa ñëpp alaaji Cheikh maa ngi lay nuyu léegi avant ngay ñëw di bég nag ci teraanga ji ñu ma defal lii nu ma jox léegi moo ma gënal milliard waa kenn du sëriñ bi waaw waa kenn du sëriñ dee ko def waaye lii moo ma gënal milliard te te ngis tal amu ci nag dëgg la ci man jox ma nitaalub Serigne Touba moo ma gënal milliard franc CFA jox wallaay lanc ndax fi ma toll ak fi ma jële ak fa ma teg kon jox ngeen ma lu ma bëgg yàlla na sëriñ bi fayal ma leen waa euh, kenn du sëriñ bi kuréel bépp maa ngi leen di di ci jiital ma ma cuun bu ma ko nuyoo nuyu naa ñëpp sunu yaay soxna awa saw sunu yaay soxna awa saw yóbbaale na soxna yëpp waaw yàlla yàlla guddal seen fan dolli seen taw féex li ngeen nu soppe di sëriñ bi nu ngi ñaan sëriñ bi yàlla bu nu mooy dara ci sëriñ bi ñun lépp lu nekk Serigne Touba. dëgg la jërëjëf kon kontaan nañ loolu ñu leen di sant di leen gërëm. jërëjëf sëñ Abdoulaye Diop euh, Bichri ñu gërëm la bu baax a baax euh, ci nuyoo yi xam naa bala maa ñëw ci présentation yi ndax xam ngeen ne tey émission bi wéetuñu ci. Euh, li tax ma wetu ci mooy tey dañu invité ci télévision yi ni ma ko waxee ci bi ñuy tàmbali ay kàngam yoo xam dañu ñëw pour fas yéene bokk ak ñun li nga xam ne mooy jataay bi wax naa ko léegi ci sëñ bu mbay wax naa ko léegi ci ku mel ni Pape Djibril Fall wax naa ko ci oustaz Mouhamed mbay wax naa ko ci oustaz Ndiaga Seck waaye ñi nga xam ñoom dañu leen invité ci plateau ñu ay invité spécial sëriñ Djili Ba Abdoul Khadir Madialis sëñ Abdoulaye Boussa Maram sëñ Thierno Mouride Sadiq sëñ Omar Bamba Diop Euh, di ziare baax sëñ Fallou Sey Lambaye Couture tey nag xam ngeen ne plateau bi danaa def loo xam ne nii sax xam naa ne ñëpp danañ jàpp ne sax noonu la waaye dama daan dégg ñu naan jaamu sëriñ Sall daana wax ne ak cant dana nuroo woonu sëñ Jili kennal sëñ Touba kero bi ma ko yëgalee plateau bi daf ma wax ne ma euh, wax gi ma ko wax rek mbubb mi ngay njëkk sol maa la koy jox waaw ma ne ko nag ne ma nag damaa bëgg sol ko muy garaat moo tax ma sol Euh, sëñ Cheikh Niass Fadal Couture ma nga nële toog euh, émission bi waxtu wu muy tàmbali rek daf may wone ma am nga fi laxasaay ba ma ñëw ba pare rek. ngir sëñ Amidou nag ma baal. Mm-hmm. njuumte day day dab nit. Mm-hmm. damay nuyoo te man damaa ba nekk nit ko jotale. Mm-hmm. yére bu rafet bii ma sol. soxna su baax suñuy wax soxna ab sa ah, kebe bëgg loolu sëñ Fall. mu nga dëkk ca géejawaay tolloog cité des enseignants moom moom euh, Fallou Couture ah. waaw Fallou Couture moom moo ko moom foofu soxna su baax la démb ci ngoon la ma woo ni ma damaa bëgg plateau boobu maa lay ñawal sama cinq francs demu ci mooy jënd tusi moo ko ñaw jox ma ko ak nag désintéressement yàlla yàlla sàmm ko te tooli ko xéewal beral itam nuyoo jongu couture ndax moo it ñawal na ma ñetti mbubb ma ne ko rek mënuma sol lépp waaye naa ko bàyyi ba yeneen jataat yi ak koy nuyu di ko sant di ko gërëm jërëjëf sëñ Ablaye kon bala ñoo tàmbali ci présentation yi wax nga ko léegi ci sëñ Mamor Euh, soo gisee moom it ñu wax ne ko tey ci siti Serigne Touba yi moom lañ ci tànn honoré ko dañu dem màggalu Touba may waxtaan ak moom ci ñuy yëngu ci yoon wi mhm. di yëngu ci diina ji te xëy na ñu war a am ay keno ma ne ko suñ mbokk mii sëñ Abdoulaye Lam day amagul oto bu mu dawal hmm. mu ne ma loolu de su ma ko xamoon def naa ko bu ñibbee Ndakaaru xoolal parking bu la neex ma wutal ko fa ma ñibbisi mu ne ma loolu yëpp day yéex wut naa ko ba noppi waxuma fu ma lay fekk ma jox la ko nga ko ko te bu ma ci fekk loolu def na ko moom mii ngir sëñ Touba toog nañ fii di waxtaani sëñ Touba man ak sëñ Abdoulaye Diop mu taale otoom këram sol abbaye vers minuit ñëw gaare ci buntu tele bi indi fii ay million daal di toog daal di ne damay toog di leen seetaan ma xam ne lii ngeen def ñun ñu sant Mbàkke la waroon kon yéen ñi koy def di ay ndaw ñun dañoo war a jóg fekk si leen mën man ko dangay ngay toog ci plateau bi mu ne ma pour bañ a génn ci plateau bi moo tax ma sol abbaaya ku mel noonu sponsor la ci liggéey bi nga xam ne ni mooy moom la ñuy liggéeyal sëñ Tuubaa sëñ Gana Messere Maxtaar bala maa ñëw ci journaliste yi ndax sëñ Jibril laa njëkk ba sëñ Ndaw laa bëgg mu jëkk a posé question wax naa léegi bi may jox ab Abdoulaye Diop bi sëriñ na ko dem dikk ñu ngi nuyu bu baax alaaji sëriñ Cheikh Diop Mbaye wax naa léegi bi may tàmbali li tax ñu choisir ko moom ci plateau bi mu feggoo ak sëriñ Cheikh Ngunda mooy taxawaayam ci sëñ Tuubaa te dafa bëgg sëñ Tuubaa nee lu ma mën am ci àddina nga waxal ma loolu moo gën ci àddina te tey dafa waroon jàngi fu sori waaye dafa ma ne palaato bi du ma ko woon ginnaaw dem sëñ Gana tey dafa am loo xam ne soo ko waxee ñu ne shirk la ñu ne bokkaale la ndax jamono bi baatub kennal bi door a ñëw sax dañ doon wax naan kennal moom yàlla rek lañ koy def ki ñuy wax ne dañ ko war a kennal mustawaa niveau bi mu am diggam ak boroomam ndax fi mu yegg yàlla ak li ko yàlla defal te du ab yonent ndax wootewul ab yonent wootewul wal wootewul ak wilaaya wootewul itam ab mursal wootewul ne maay seen maa yàlla waaye fi mu yegg yàlla ak li ko yàlla def digganteem ak suñu borom sëñ Tuubaa euh, jërëjëf sëñ Amidou El Hadj Cheikh maa ngi lay nuyu yaa ngi door a agsi El Hadj Cheikh sant bokk yi ci léegi ñu defal sëñ Abdoulaye Diop Bichri njaayoon na ko ndax sëñ bi rek la nekk nit ku baax la mm-hmm. loolu mu wax moo nekk ci moom mm-hmm. sëñ bi moom ku ne lañ mën a nax dóoru jëm de sëñ bi daal man nga am ci kaw mais doo am ci biir yooyu moom sëñ bi dëgg xal la ku jogi lakk bëgg lakk bañ lakk mooy sëñ bi la ca biir nag moom yaa ngi moom la te moom du benn nopp sëñ bi waaw kenn du benn nopp kenn mënu fa yàqal kenn moo tax mu gën maa neex du benn nopp waaw loo en en nit mënu ko fa yàqal moom daam waaw du benn nopp waaw loolu loolu dafa am benn kii <laughs> lu sew lu ma ciy leeral xam nga bu ñuy wax euh, jëmmi bokkaale kee moom da caa jël sa boole xam nga nun lañ jàppe nooy bokkaale noonu ñu ko bëgg lañ jàppe ñuy bokkaale euh, yaakaar naa yàlla bindul ko am fitu di ko tudd di tudd lu ko nuru moom nun ñii nag jeex ci moom nga xam ne xameetuñ gos wala droite ngir moom nun la ñuy wax mm-hmm. waaye ñoom waxtu woon yégee ne ñu ngi jàpp ne keneen am na ku dul yàlla rek ñoom ñoo bokkaale ñoom waaye nu nax dul lazina laa naluusu abada illa bi rabbina huna duma xada hmm. bu sëñ bi bind doon dara luñ sukkandikoo lu mooy rek bind lahul wujudu lazi qad saanahu qidamun hmm. mahal baqaa'i wa xayrullaahi lillaahi mu doylu waaw loolu defe naa fi wéetal yàlla mën a yem hmm. yonent bi moo gën a rëy gën a mag barki démb rek maa ngi ciy waxtaan ak Cheikh Abdou Samad moom son son yi maa ngi koy siyaare bu baax di nuyu. amiin barki rek ñu ngi ciy waxtaan. Mm-hmm. ci bi muy tagg yonent bi salaa salaam yaa man bi am daahi taatini al bushar mm-hmm. yaa Moustapha yaa rasulullahi yaa Bachar. Mm-hmm. yow mi nga xam ne ci tagg gi ma lay tagg ci lay amee mbégte yi may bëgg yépp yi may sàkku ci ngënee leen mbégte ci laa ko amee. indil ko garaad yi yaa Moustapha yow mi nga xam dañ laa tànn. yaa rasulullahi yow min yónni waaye nag li muy réy réy jaareelu ma de yaa basharu mbindeef nga de doo yàlla de ki wax loolu rasulullahi kay keneen taxul lay wax yaay Moustapha yaay rasulullahi waaye yaa basharu de sëriñ bi léppam day suñu borom lépp léppi sëñ bi sunu borom la amul lu muy settee ci boppam lam jàppe boppam it waxtu wu nekk mooy jaamu yàlla buy jaamoo yàlla ca na ko yàlla bëgge waaw xam nga ñëpp jaami yàlla lañ mm-hmm. waaye jaamoo yàlla na ko bëgg na ko yàlla bëggee ku ko defal yàlla yàlla defal la loo foogutoon ne war nga koo am te ñuy bàyyi xel ne loo jombale sëñ bi ci daraja xam nga Sénégal moom seen seen seen lislaam lu neex la mm-hmm. fi ne arkaanul imaan yépp mën nañ koy jàngale gëm malaaka yi gëm téere yomal xiyaam nañ gën a yepp nag ci napp ñi ci mhm. bis pénc boo dee nangam nangam mais imaanu bil qadar gëm dogalu bu yàlla ne nii seen bi yàlla loolu seen problème te saa yoo noppee gëm dogalu yàlla rek mhm. manqué nga sarti gëm mhm. te inna allah ala kulli shay'in qadir li ma yurid léegi bi mooy nii sëñ bi mel boo nanguwul ne yàllaa ko ni def léegi indi nga ñaari yàlla yow ndax léegi fu yàlla nekkoon ba sëñ bi mel nii <laughs> te ala kulli shay'in qadir day dàqu maanaam yàlla moo mën lépp yafaalu maa yashaa lu ko soob lay def yàlla moomu la sëñ Tuubaa amul jënn yitte ba connecté ci moom connexion boo xam ne amul déconnecté soxlawul lu dul moom déet moom xam nga sëñ bi dafa jaar ci yoon yu ñu war a jaar xam nga sëñ Tuubaa bu jekki-jekke woon rek ñu ne Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mu nekk miracle boo xam ne yi mu jëf yépp mais xoolal fi ñu jaar sëñ sëñ Amidou dafa jaar fi ñu tudde fi doomi soxna yi di jaar waaw ba mu amee askan wu sell wu tedd ba noppi dafa jaar fi doomi soxna yépp di jaar mooy wut xam-xam nga mën na jàng ne ci keppaaru woy juróom mën na jàng ne ci keppaaru sàmba tukulóor ka mën ci tafsir ndumbe mën nga ne jàng na ci sëriñ bu soobe nga mën a lim loolu mu daan bëgg téere di ko bëgg du ko am di joxe mbubbam ngir bëgg téere ah. di wër réew mi ngir bëgg lu mu fayee téere waaw lépp ngir jaar ci yoon wi ñuy wax ci yoonu xam-xam ba nekk géeju xam-xam goo xam ne ñi mu jamono teel ñëpp nangul nañ ko ne ñii kat kii kat jéggi na leen ci xam-xam ndax ci biir way juróom Serigne Mbacké Mor Anta Sali dafa nekkoon géeju xam-xam nekkoon université boo xam ne ci sowu jant ñu bare bari jànge nañ fi waaw te moom mujj na waxuma la mu nekk élève buy jàngee ci daaray baayam waaye daa mujj di taalif ay téere ñu koy jàngale ci université baayam te baayam moom ña ko doon seereel bañ koy tagg dañoo tagg ne euh, muy ki jëkk tagg sëñ Touba mooy mooy sëñ Mamar Kan Dingaraay moo jëkk a way sëñ Touba euh, nga xam ne moom lii nuy wax naan kenn du sëñ béeg sëñ Bay boroom jamono réew mi Bàmbaa ko moom ak loolu ba mu koy wax moom fukki at ak ñett la sëñ bi ma ngi fi sëñ Mbàkke Boroom Sali sa ñu bari nangu lañ ak wilaayatoo ndax jihaadal na Cheikh Omar Fouti yu ba mu gisee sëñ Tuubaa di ko tagg rek dafa daal di wax melo yi sëñ mel yépp meloo waaw ak nosu jàmm ñi ni nekk ci ñaari tënkam yépp ba muy jeexal nag dana hada la Ahmada Bamba kaana walidahu bahrul ulum namiril ma'i mawrub nga xam ne nangu na ne kon baayam géeju xam-xam la woon. moom mu ne fa bay taalif ay téere sëñ Mor di jàngale téere yooyu ci biir daara ji. waaw ba mu ca noppee firamtulaay wut ndax bala ngaa sóobu ci yoonu tasawuf faaw nga jaar yoonu xam-xam. ndax sharia ji muy lamboo. ba mu dikkee it jël yoonu tasawuf ku mu fi fekk si daf la ko nangul. awraad yi fi nekk yépp mu jëfandikoo. ndax wird yi yonent bee ko moom ci yàlla la jëm kenn na ko moomul kenn ci wu ko pour ñaan saw wird la yoonu jëm ci yàlla la rek apayas bi dañ ko fee teg ku jëm Dakar du bëgg a dem te sa oto baax yéegal la lay tee yegg ci yow lay doon baa nga jàdd baa nga wàcc yoon waaye yoonu yàlla ku ko soobu yegg xeebul kenn ña fa nekk ku ne saw yoon dala koo nungul jaar ca sant la gërëm la nga fekk ci biir ay mbindam mu boole ko di wéetal yàlla guddeem ak bëccëgam suba ngoon négul ba am bijaa wala sikkinam génn mu tàmbali taxawee guddi di jaamu yàlla ci juróom-ñaari at la doon naafila Cheikh am na naar bi ñox ibnu Mualla da ko bind wax ne sëñ Tuubaa négul bay mag door a raw waaye saada tiflan wa asruhu laysa fihi man yusalli bi sab'ati awaami ci juróom-ñaari at lay taxaw di naafila guddi te booba dalagul jàng sëñ Bachir na xoolal gi gaat nga gu rafet te booba dégg waareb soxna jaara ku ko yóbbee koo xam ne sa way jur dana naa min da bi saalihin ndax sëñ Bachir la wax mun na soxna jaarakat wa kaanat turabbi awlaadaha ala almuruati wa tahaara wa diin wa kasira ma taxki alayhim hikayatu saalihin wa taqul da bi saalihin qiyaamu layl danaan yar njabootam di leen wax naa gaa yu baaxee de la leen xamee woon mooy bu nit nelaw guddi ñoom ñu jóg jëm ci seen seen borom sëñ Tuubaa teel a dégg taxaw guddi googu moom bu guddi jotee bu nit ñi fatoo ci seen i néeg mun a temm ci ëtt bi ba fajar te dalagul jàng mun a xoolal gi gàtt nga bu rafet kon dafa teel a ci yoonu wéetal boroomam di jaamu yàlla jël awraat yi ñi fi nekk yoon yu baax yi lu mu dégg lu baax lu nekk mu jël amul jënn yitte mhm. ba def engagement boppam nag engagement boo xam ne moo ko may mu egg fi mu egg nga xam ne mës ta am jënn yitte mësul mhm. am génn bëgg lu lu jëm ci boroomam gis nga ba mu ba muy jël lu ne li ko sukkandikoo te yoonu bëgg a jëm ci yàlla yegg gaaw dafa jot ñaari ordre benn bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ko yàlla booleel na ko léegi mënatuloo nekk ci ginnaaw kenn ku du rasulullah mënatuloo jëf sañatuloo jëfandikoo dara it lu dul alquraanu karim mu daal di jóg nag jël engagement wax ne saarifan himmati li rabbi taala raajiyan saqyahu bi maa il muayni maasikan bil kitaabi maska dariri bi yadil xaaidi al basiri al muayn léegi kon yàlla ñun jëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la jaare pour jëm ci boromam jël alquran muy wérde wi nga xam ne duutu jëfandikoo dara lu dul alquran nga xam ne ba mu ñëwee Touba sax dégg nga dafa wax ne euh, euh, munsalixan fii jay sa seen min xayri rabbi min xëy rabbil wara xadim usnil xëy mun sali xen nga xam léegi dafa répp ci lépp léegi ba mu des alquranul karim waaye jàpp rasulullahi salallahu alayhi wa sallam mu ne nag léegi naa jëm ci sama borom mu def ko muy sama yittee jëm jëm jëm ci boromam mu xam ne mënuñ suta jaar egg ci yàlla te jaaruloo ci rasulullahi salallahu alayhi wa sallam yonent bi salallahu alayhi wa sallam mooy bunt bi nit mën a jaar mu ne suñu borom léegi kon virage yi bu mu ma sonal aw fee ba yàgg manaan moom déedéet léegi laa na tajaalanna bayni wa baynaka abad waasitatan siwal muqaddimi sanad sama digganteeg yow bu fi kenn doxati ku du rasulullah léegi nag amatul jënn yitte amatul menn xëy amatul genn bëgg lu mooy yonente bi mais li tax suñ tubaab gañee li mu gañee ba tey ba tax mu egg ci yàlla te dara dusu ba ne ilaa ilaahillah xad wasaltu wa an rasulullahi man fasaltu ginnaaw yàlla da ko joxoon ne ko rasulullah mooy waa ji te rasulullah ngoor ñëpp ngoor lépp mu ñëw ci buntam taxaw yaa sayyidi yaa rasulullahi yaa sanadi inni la dal babikal musul min xoorat sang bi ku baax ki maa ngi ci bunt bi waaw bu ñu la ubbilee bismillah lépp a ngi fi luy sa bëgg ba tax nga ñëw mu ne ko lay san liyeel yow xaajaatun wa minuha si waxti fay ka xafal xali wal balad aw ma jenn bëgg dara andiwu ma fi aw ma lu may seetantal lu may sa tànk bi foo leen teg boo teggee ma teg lay san liyeel yow ma xaajaatun wa minuha si waxti fay ka xafal xal bi wal balad aw ma genn bëgg royu ma dara lu may roy la rek yow rasulullah royu xol ak royu jëm kon moom léegi yonent bi la roy te yonent bi mu jëm ci boroomam te borom bi ba muy wax ne nit ñi bu ñu bëggee yàlla bëgg lañ leen topp rasulaay xul in kuntum tuhibbuna allah fattabiuni yuhbibkum allah sëñ tubaa nag dàq kookee nag muy rasulaay daan na yaf na alladi min umri qad baqiya fi shukri wal xidmati insha rabbiya li wéy de xawma ko waaye li ci des kenn du ci am dara ku dul rasulullah bi sukkur wal xidma rek cant gi li tax na ma lay sant mooy jagle gi ma jagleel may xadiim ba war a mën a engagé liggéeyal liggéey bi moo doon sama yitti comme engagé na ngir war a jëm ci boromam te war koo jaar ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam xaaj ak dundam ñaari cër lii benn weer la lii juróom waaye xoolaatal ba tey ba mu ne salaatu sitta bi matxi sitta te atihi batta ma atisay saa yu ma xaram teroo saa yu ma sëppee sama xalima xasida gu mu bind damay tagg saa yu rajab teroo xasida gu mu bind damay julli waaye la may boole di tagg ko julli yépp maa saa yi nag ba tey uslul iqtifa imbaatu rabbil la sharika dama cay boole teg teg rek teg teg teg teg gi foo teg ma teg moom koy damay boole di la tagg naan la yow di la joxoñ naan la yaa ko moom di wax lépp waaye ma xam ne fa nga jëm laa jëm rek te kenn mënta jàll jëru ci yow fu man na pecc tagg yi maa ngi la dang kon jël dundam gépp jëmee ko ci tagg yonente bi salaa salaam ci guddiyam ak bëccëgam daal di wax nag tagg gi ma koy tagg madaxtu xayral xalq min na muharrabi ilanti saafi al aami daa kon mooy mooy mat bi waaye lahu salaati wa salaami min rajab te xal mi sil xijjati ni amal muntajab da ngir jëm bu ci yàlla nag mu ne ko lu ma lew te dagan ma ma moom ko daa koy jaay bàyyee la ko ndax bëgg agsi ci yow kenn téréwul wokkutu mu ne banaa ko kenn terewul toxoñ mu ne banaa ko taxam ci ko banaa ko bëgg dooma alal banaa ko sama ruu moomatuma sama njaboot moomatuma woor lépp na ko juttu lahul yowma bi ruuxi wal badan wa waladi wa walidayya fil xanal xabawtuhu bi xidmati wa nafsi min saati ila kurul rams feet ruu gaa ngi yéeg ak wàcc lu ma liggéeyati yaa ko moom jëlal doom yi jëlal taalibe jëlal alal yi jëlal sama ruu bopp saa way jub lépp jëlal yow rasulullah da seetu de kii ni mel ak ku ne am nga loo desal moom daa ngoor lépp jox waa ji li tax sëñ bi bi ñuy gañee gañewul lu ndaw mooy gars yi dañuy firi alaka kerkeraan naka longo léegi-léegi mu rëcc ak sëñ bi nag dégg ki yor yëf yi la ma yàlla joxoñ eh xul in kuntum tuhibbuna la fattabi'uni toog leen nan ko toppi mag yéen sama ruu juttu lahul yawma bi ruuxi wal badan wa waladi wa walidayya fil alam xabaltuhu bi xidmati min nafsi ila xuluru ramsi ba feeg may nga may noppee gis gisuma bàyyeeti tàgg ak liggéey rasulaay salaa salaam mel ni lañ nag waaw yonent bi nag bi koy liggéey loo ci jublu mu ne duuna a bin fii aji nag teyit nag lu tagg yi rëy rëy may gi bari bari gratuite la sa kuuma ci dara loo ma ciy fayee man daal li ma ci ma di la suu ma di la tagg daxaa nii ilaa matxi nabi xobbu daati yi léegi nag bëgg gi ma la bëgg nag lii laa fas yéene garanti yow mooy am daxuhu bi nasr wa nidaami ma dumtu qadiran ala alkalaami diirub maa ngi mën a wax maa ngi mën a yëkkat sama kaddu yow rek laay dafa yowal lu ko waral li xubbihi li annahu xawla awla biya min nafsi liti azabiya moo tax dara jàngo yi gis nga dafa am benn résumé bu gàtt bu Cheikh Ibrahima Diop almachari def moo tekki lii ma lay wax. waaw Cheikh Ibrahima Diop dana sëñ Tuubaa dana jàkk sëñ Tuubaa yàgg mu ne ko fa jaawu ko عند الله جاه معظم فمن ناله يسر بأسرى وسيلتي لأنك شمس الأولياء وقطبهم ومنك أمثال النجوم دائرتي فللكل منهم ردة ومكانة تعالى ولكن فوقهم بالمزية لأنك أصفاهم وأكثرهم تقى وأخفاهم طرا بمذهب سنة وأكثرهم علما وحلما وحكمة وأجرهم طلا بكل الفضيلة وأدولهم باعا وأجسرهم ندى وأعرفهم بالله من دون مريئة سنجي لولو موي sa daraja ci yàlla daraja ju rëy yow Ahmadou Bamba daraja ju kawe kenn du daam mii kenn du sëñ bi nii ñuy wax mm-hmm. maanaam moom dong waxulu ko boppam des ko ko wax ci wet gu ne oh. mu ne ko ndax awliya ullah yaay seen njiit ba noppi di seenub jant mm-hmm. na ko xeebuma kenn talil kullu minhum rutbatun wa makaana ku ne ci am daraja xanaa duñ mer ndax rasulullah salaa salaam ku ne yàlla yónni na ko ba yàgg mu ne rasulullah salaa salaam li kulli min al axyaari min jumlati axyaari martabatun lakki naa lakki na ma ahmadun te taxut Moussa mer taxut Isa mer léegi lan moo tax boo ne suñ tubaab amul morom ñu fa si tun lu tee Moussa mer ba Isa ba Ibrahima nag yi jëmm ñu yónni leen Yaxya ñu xar jëmmam ah Isaaq lim daj ah Moussa lim woote li ko Firawna woon ci àdduna te teewul yàlla na baax ngeen lool mais rasuloo gën mais taxut ñu en yàlla wul biti ko daan yéen da baax ngeen sëñ diw baax nga baax ngeen baax ngeen baax ngeen baax ngeen mais Ahmadoo ñu ne mais nag yàlla nag pourquoi nag nga ne Ahmadoo gën léegi du yàgg Ahmadou du yàgg noonu yàgg yàlla famin kulli minhum rudbatun wa makaana taxaalat walakin fuqtahum bi maziya waaye léegi lu tax loolu am li annaka asfaahum yaa leen gën a sell sharafat Cheikh Ahmadou Bamba wa salimi lal atati jumlatiha wa ma nifaaxan bi ma imadihi masaja amul benn tâche ni nit mu mel la xool bi mel la jëmm ji mel la jëf ji mel xàmmewut nag ba am bi jaaw bi mu feeñee jamono mos a def lu naqari yàlla wa salimina dafaat li ànd ak astaahum da nga leen a gën a sell wa aksaruhum tuqaa nag gën leen a ragal yàlla ragal yàlla du yoori lex ak yooru sukkoog bañ a lekk ak bañ a naan imtisaalu awaamir wa jitina laa seq ak jàmm fépp saa lu mu digle def na mosuma def lu muy tere lu mu dogal neex na ma yett laa seq ak jàmm yi mosuma tooñ kenn ku ma tooñ baal naa lu ma bokk kon att xaw wa axfaahum turan bi mashabi sunnati nag yaa leen gën a roy sunna rasulullahi sunna sunna moom mën naa bari sunna financement sunna condition sunna mais sunna ilallahi bil qur'ani wa sunnati lati hadatni saraftul kulla wal qalba xaashan sunna su wax tal na rasulullahi di doxee lay dox saa tax tafal muxtafa la ko mbokkam a wax ca ndar muy sëñ Cheikh Coro moom sëñ Balla Coro moom sëñ Cheikh Balla mee saa tax tafal muxtafa atta ka annahuma lawlaa nubuwat saa saw bàyyi ni xat na si jaar da nga koy roy di ko roy ba bu fekkoon ne yàlla yu kee te mujj ko yónnee day mel ni benn ngeen yéen ñaar kon yaa leen gën a roy sunna sa rasulilaay koo dégg mu lay jaay sunna sunna jotul sëñ Tuubaa ci sunna waaye ba ak saruhum ilman yaa leen dëpp xam-xam duñ ko werante ku dul sëñ Tuubaa loo bind sa ñoom xam nañ ko man nañ ko ku am lim bind amul ku xam lim bind amul ku ko mën am hmm. lu ko alde alde aay aay ku yëpp ko dégg de bind yëpp am xam naa yëpp am ku tu xam tur yi xasida bind amul ku mën xasida yëpp amul te ku ko mën a dindil ak wirgil amul te ñi gën a bari xam-xam fa fi kulli baytin min rabbika ibra biha yahurum a xam ci yàlla ñoo daq a gàtt ci wenn baytam waaw kon wa aksarum ilman yaa leen ëpp xam-xam wa ilman gën leen a leer sëñ Moussa Ka ko tekki de waxeel man. waaw a ne karaamaa ki xar baax ak wilaya ki booti xol. Mhm. ku leen ma saam sël boo ku dul yow Serigne Touba la yor yii nag te ràmboo rahmatallahi yàlla wet li ngay muñ te man koo faj da moom kenn Serigne Touba ku lay suuru daf laa réere boo gees suur mu doyet dam ut nga soodaan ak bayaw bi naag Touba <laughs> waxeel man gën leen a lawet tey gay na bu seen morom mhm. wa aksaruhum ilma yaa leen gën a lawet gën leen a dal yore gànnaay te du fayu sëñ Tuubaa képp moo ne aslaha zahiri wa baatini maa man lil ada bila silahin xamaa nii ma mel ci biti laa mel ci biir maa not saay doon te génnewu ma benn benn gànnaay saatu sëñ Tuubaa saa ngi ngay dégg mu sab ci xalimaam doone paaka baa ngi doone jees si jàng fettuk sëñ Tuubaa gaa ngi amul maq doomam gaa ngi te moo not ñëpp te yokkoon moo leen gën a lawet ëpp leen gànnaay ak sorum ilma wa xekk ma nag ëpp leen xam-xamu connexion ci yàlla xekk ma wa ajruhum turran bi kulli fadila lu baax baax baax yaa leen gën a baax waaye wa ajruhum wa ak walahum ba am nga rawaat leen fenn mooy yaa leen suti jéego yaa génne mbakkee bari dem jeewal dem ndar tabbi ci mbiix bi julli dem gabon Conakry gànnaar delluwaat ci yéen ñibbi si réew mi fa nga dem kenn dem waat walahum baax <laughs> <laughs> koy di parcours baa ngi baax <laughs> yaa leen gën a gudd jéego te bokkoo ak ñoom aw doxiin ndax yow foo jaar bakkan lay laaj mm-hmm. waa ajzulhum nada yaa leen ëppi may waa ajzulhum nada yaa leen ëppi may li gaa yi ñoor ba jàppe ko dara la sëñ bii maye palaas yi nii màggal la say gone toog palaas yi nii màggal la say gone fi ne léegi la ñuy tudd suñ jubaat tuddi ko nit ñenn ñi en naan wóore su ko wax fekk yow lu kee en ngir tudd ko tudd ko gën dana sëñ bi la gën a mele ndax sëñ bi daa bokkut ak moom kala sëñ bi hors série la hors série waaw marque bu ne ay la ca yàlla 124 mille anbiya wal mursalun ñaata awliya ñaata malaaka yi naata waaye amul daam kepp rek donc mu ngi nii amul ku mu nuróo amul ku ni mel kenn du moom. wallaay dëgg la ndax bu ci ñaar amoon rek ñu ne ku bind ku bi te kenn moo tax mu sax kuñ kenn matxu nabi yi qaada lii maa lam yura shakli wa fi daara ni shakli lam yura kon hors la ku mel ni moo amul. hors série waaw wajjilu nadaa yaa leen ëpp ay may. Mhm. waaye wa arafuhum billahi min duuni miriya amul werante yaa leen gën a xam yàlla <laughs> sëñ bi. kuy godd sam ba mu fees di la mat bërki démb damay waxtaan ak genn kilifa ci rab gi sëñ bi joggi woon fii ci ndakaaru doomi sëriñ Fallu ku baax rab gi sëñ Tuubaa joggi ci ndakaaru gi en 1895 ñu tàbbal ko ci néeg bii mu joggi ci rab gi sar ba génn moo ne ba yàlla yónni Jibril muy xool xool ba dana ko xoolal ba xam loo fay fekk asabru wa shukru wa rida la ca gën a yéeme nee na ba bi muy ñibbi àjjana ji du ko noppee gis góom ba wiir te weñ bu ju tangee du ko dàq boobu léegatu màndarga ko te yàlla rek jaral la ko fa muy teg tànkam te yàlla kon wa aarafum billahi min duni miria yaa leen gën a xam yàlla te amul genn werante yàlla moomee nag huwa allazi lam ara gayruhu wala arahu fi cheyin hada wa nawala amul lu muy gis ci kenn amul lu muy gis ci dara yàlla la gis ber lépp lu mën a doon yii ñuy jàngale di wax naan yàlla am na koo xam ne sañ bi da ko joxu barkeel mu ne ko bu bis moo yàlla moomee mu ne ko këfit mu na yàlla la bu yàgg waaw koy ko bis yàlla moomee mu ne ko këfit am na ko ko bu yàlla wooyee yonent bi mu ne ko ahmadu woy fu yàlla néew rasul lay néew fa ahmadu néew fa waaye li ñu xamul te xàmmeewuñ ko mooy jëmm may yàlla doxinu sëñ bi xanaa damaa jàpp ne ku bëgg a tudd yàlla ci di ko jaamu boo mënee góorgóorlu ba mën a nafila guddi yi sëñ bi dawul sëlmal yaqumu layaali raakian baxda sawmihi yusalli imaaman bi ma bi fi masajid loolu sëñ mu lay bu sa wax bu guddee ba mu kukk nit ñi nelaw mu kabar bu bëccëgee muy woor te moo jiite jàkkañ te ma gënoon a xam ñëpp xanaa kon doon na doy melokaan woowu ci nit ki digganteem ak boromam mu def loolu sëñ sëñ bu sa muy wax fa kam min layaalin baataal xaw su taaliya ala suwari tartiilu bal kaw nu naa im léegi yàlla moom moo tax ba tey xool diggante bii sëñ mu Ka wax koo xam ku li mel ku dul rasul la yoroo melokaan di jox aji laaj di dimbalay dëkkaaleen du tooñ te ku tooñ mu jéggal ngir boromam di may ko ko bañ di woo ko ko foñ di neexal safoo ko ko soof ku dul kuy mooy boromam a ah, sëñ bi xanaa dañoo amu ci xel Cheikh Mahamadou Lamine Bara doomam da koy tagg ba yàgg mu wax mu wax mu wax mu wax mu wax bay doo xam ne da lay won ne lu dul yàlla sëñ Tuubaa jëmu ci fillahi tu shiddatin qaasil fuaadi ala man lam yakun min jamil xalqi muntasila nee na sëñ Tuubaa lewet ga ak nooy ga ak baax ga ku nanguut a jëfe ndigal yàlla yi bokku ci de doo xam lewetu sëñ Tuubaa doo xam nooyuk sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa képp nga mës a dégg ci àdduna ñun la koo mës a dégg ñun mu tàllal ñaari tënkam yii mu tàllal tënkam lii ñu teg képp dërëm ba mu des Ahmadu loolu la jéyi mu alal mën a tegal noonu ku ñëw naa ayité mën a jëlal foofu daawul jël gaalu sëñ Tuubaa boo siin lu muy bari bari alxuraan a cay nekk hadiisu Rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam lalub sëñ Tuubaa lu mu jekk-jekk loolaa cay nekk amul lu muy dem ci amul lu muy faggu léppam du ko jëmee ci borom. ba noppi kon di di di ku ñëw di laaj. mu jox la. Mm-hmm. Mm-hmm. waaye xoolal li gën a jafe mooy. di may ku ko bañ. Mm-hmm. kenn ku sëñ Tuba alal amul. sëñ Tuba alal diw alagut kenn. te mu wane ak a a alake. Ah? ku lay réere daf laa ku lay suuru daf laa réere boo gestu mu dee gestu rek bu ko defee nga yàqu. mais nga di ko noonu ba noppi mu jël alalam di la jox. nga di ko daw bu du la xëcc fi ne bari na xam ne li sëñ bi surxas seeni pos ba saa yu làmbee daj ciw xel la leen ko joxe ciw xel la leen ko joxe ndax li mu andi lañ xamul lu mu doon lu ne mu bàyyee leen ko jël lépp def ko muy boromam ku doxul digganteem ak yàlla mënoo xam problème mu sëñ Touba. Mm-hmm. fi ne sëñ Touba doo doo lan la jotaliwu ko ku mën a jotal ci àdduna yàlla rek ngay wax. ndeysaan bugguti dëkk. Mm-hmm. wutiti tool. Mm-hmm. kenn du ne yaakaar naa ñii ngi nii Cheikh yaa ngi nii toog kenn du ne sama maama daan sàmm jurub sëñ Touba bi. sama maama yoroon magasin sëñ Touba bi sama maama yoroon kalpe sëñ Touba bi yooyu yëpp amut sëñ Touba yàlla képp ko taxoon a jóg si naan. dëgg la jërëjëf eh, li nga ubbee waxtaan wi am na solo ndax jàpp naa ne foofu mooy cappaandaw gi mooy gaa yëpp foofu la ñuy dajee wax naa ne Sénégal sax bu ñu la bëggee not dañ naan la on est dans un pays ceddo nuñ koy waxee laïque et eh, eh, droit <laughs> mu ngoog te fekk yooyu yëpp dañ la cay bëgg a tànc rek waaye tubaarkàlla ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi jaale sëñ Mbacke Mbodj chef production bu Touba TV nijaayam gi fi bàyyi ko euh, muy Serigne euh, Mor Wali Silla Saadix ñi di ko ko jaale bu baax a baax fa fee ca Louga ndax taxaw na lool ci liggéey bi sëñ Ablaye balaa maa ñëw ci journaliste yi ñu ñu participer wax na digganteem ak yàlla wax na digganteem ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na lu ma am ci laa ko amee xel est-ce que mën naa nangu àddina wërngal képp li nit di ndamoom mooy li mu bind ci àddina muy réalisation li Seexul Xaddim bind nan la ko bindee ak ban méthode la ko bindee waaw jërëjëf Serigne Hamidou jërëjëf Alaaji Gana Messere Mokhtar mu wax dafa neex dama cee bëgg a sof te ci ndax man damay dox ci boobu catégorie ci ngi nangu ni Serigne Touba kenn la mhm. danoo nekk ci réew mu naqare waxe nekk ci réew moo xam ne li ëpp danoo defaruwul ci xol ndax ku defaru ci xol doo iñaane may bi yàlla ca kam ko may sëriñ Seex Mbàkke Gaynde Fatma dafa tontu ci li nga laaj léegi boo demee ci xasida gu rafet gu mu woy sëriñ Touba. tudde ko alaaha lii xamarun min naxwi tuubaana ca biir dafa wax ni yaa xaasidiina imaama naasi aamatahum mootoo bi xayzikumoo raxman wa xusraana ñu ne ko lu tax mu ne fa inna qudrata rabbi ratabatku imaaman mustaqiman ay kaana loolu mooy li nga laaj yaa xaasidiina yéen ñi iñaane imaaman naasi ki yàlla def muy njiitu nit ñëpp ñun yi ñu ragal a ak di tiit ak di complexé ñeenu gën a xam yàlla dàq na koo jaamu te ragaluñ ci ñoom imaaman naasin ko wax yaa xaasi diina imaaman naasi yéen ñi iñaane njiitu nit ñépp amatuhum génnuma kenn ci nit mu ni mootoo dee leen bi xay si kumoo ak seen mer ak seen naqar dee leen ngeen bañ wax ni sëñ Tuubaa ma raxman wa xusraana ngeen àndaale ak njàqare ak perte ndax sëñ Tuubaa ko noonu perte ñu ne ko lu tax mu ni fa inna qudrata rabbi kattanu suñu borom gàn na wax na ko léegi juróom benn ponk mooy tax sa ngëm mat bu ci benn mooyee sa ngëm baaxul comme ñoom ñuy jàngale tawxiid nañu dellu ci loolu juróom benn ponk ay tax nit am ngëm gu mat ba ñu indil ci juróom benneel ba tëje ko ko mooy gëm ndogalu yàlla bu neex ak bu naqari sëñ si ak Gaynde na ni fa inna qudrata rabbi ndogalu sunu borom yàlla mi nu sàkk ndogalam ratabathu imaaman mustaqiman rafian ay sumakaana ndogalu yàlla ku mënta poñe yàlla mënoo dara ci sëñ Tuubaa ni ko yàlla de mu ni ndogalu yàlla ak kàttanam moo jiital sëriñ Tuubaa mu nekk imaamu ñëpp gën leen a jub ñoom ñëpp ëpp leen ay dara gën leen a yëkkatu fu mu feeñe kooku duñu ko ragal yàlla Serigne Ahmadou Diaw Paxa gënuñu koo xam yàlla gënuñu koo ragal kenn rawu ko lettre bu mu mës bind bu koy signé danaan min Ahmadou Diaw Paxa laanallaahu man wabaqa mirafatul xaarisiin sultaanul aarisiin maliku nuxaat wa luxawiyin fi la jànge yam mbind maa ngi bàyyi ci sëriñ Mouhamadou jaw Paxa yàlla rëbb na képp ku ko bañ Ahmadou Diaw Paxaay kan mu joxe ay sifaatam mooy kat mu ni mooy ki nga xam ni koog bi gaa yi naane ci géeju yàlla yépp moo leen di jox koog bi ñuy naan man la koy naan ci géeju yàlla maa lay tànkal man Ahmadu Jaw Ba yow yaay kan mu ni malikul nuxaat ñi xam grammaire les grammairiens noonu lañ koy waxee defe naa suñu ancien président Senghor mooy ki njëkk agrégé en grammaire française en 1935 ci arabe les grammairiens mooy am nuxaat mu ni nag maay maliku nuxaab je suis le roi des grammairiens bu grammairien yépp taxawee ñu xam naxwu maay seen njiit man Ahmadou Diaw Ba wa lugawiyin ak ñi xam luga ko xam vocabulaire bi yeboo nga commencé muxtarul adab jàng ibnu duraydi ba plafonné ci maqamatul xariri nee na maay sa njiit kooku buy wax ak sëñ Tuuba déglu li mu wax dani mun jidu nal fardul lësi laa yujmau wala yusanna wa siwaahu yujmau kama yusanna nee na ki nu yàlla booleel nu yaakaar ko nunu di Cheikh Ahmadou Bamba moom rek mooy koo xam ni kenn du ko dugal ci catégorie bokkul ci benn groupe laa yuj yujmau la wax wala yusanna kenn du ko wutal deuxième sëñ Tuubaa amul deux loolu la sëñ Ahmadou Jaw Paxa wax nga dem ci sëñ ibraahima Diop al-Mas'ali yi radiyallahu anhu wax naa ne ñiy coow ci pénc mi bëgg bari wax lool di weranteeke di raddu ku ci dem ma jox la diwaanam soo ko firee ma neexal la kenn du ko firi ñu ngi fii jàngkatu arab yi nanu ñëw ma jox leen diwaanu sëñ Ibrahima Diop almasar yi fa mu tàmbalee ba fi mu yem ay junniy bayit duñ ko firi seen arab eggul foofu ndax dinga dem jàng ba jeexal mun jiit xam lépp fekk baat bu sang boobu bind doo ko fekk ci mun jiit te mun jiit mooy suñ suñu dellukaay ci dictionnaire léeg-léeg mu bind baat bu ci amul ndax déggam làkk baatu ci lim bu takk boo xam ne benn bokk sama sa moroom pirin baatu diin indi ba ci yoo xam ne ñii xamuñu ko benn bokk ci sa te moo koy bind sëñ Ibrahima Diop almashari dafa wax ni sëñ Tuubaa kenn la mu ne yow mi yàlla baaxe ba nga xam loolu nee bul complexe la wax wala bul complexe bul ragal li tafdilihi sarix wala taxda munkaran ñu ne ko lu tax mu ni fal asyaau saf un kulluhum wa huwa al witru li tafdilihi sarih wala taxsa munkaran fa lil laa la yaqumu dalilu Ibrahima Diop Masar ne li tafdilihi gën gi sëñ bi gën ñëpp mu ni sarih feeñal ko laa tax sa bu ragal munkaran ko la weddi nekk xam nañ dinañ ñu weddi mais bul fàtte faale ko la weddi ku raw ñu weddi la laa taxsa munkaran ñu ne ko lu tax mu ni falil munkirina weddikat yi laa yaqumu dalilu tegtal boo indi ñu bañ ki xas bañ moom mënoo koo fexe ba convaincre ko loo indi mu ne maa lànk bu ko déglu te yow gëmal mu ni jiitu gi sëriñ Tuubaa jiitu ñu ni ko waaw mu ni sarix na ko feeñal laa tax sa munkaran bul ci ragal ko la weddi ñu ne ko lu tax mu ni fal asiyaaxu sang sépp ak sëriñ si saf on koo ci gis peer la xam nga luy peer mooy am nga deuxième bu mel ne yow waxoo kii di sëñ Bàmba al witru mooy ki te kenn mënut di sëriñ Tuubaa Ibrahima Diop Masara Binti ñu ne ko kon ku bëgg a noppal nooy def mu ni fattan in xakamta annahu fardu asrihi fa anta isan yaa saahibi xaakimun adal fattan xattu lam yasmax zamanun bi mislihi walaw kasurat xiilul xulaati wa qaaluha jàngkat yi yëbbu ñu sëñ Ibrahima Diop Masar neen sëñ Tuubaa fattan jëmm la joo xam ni in xakamta soo dee atte ku maandu xam nga Sénégal problème bi nu am ñun tubaab yi rawee nañ ñu lu bari te du leen gaaw a jot tubaab day nekk sa noon sax am franchise intellectuelle gis ci yow sa doole mu wax ko ci lépp am na ci waxoon naa fii ci ab télé li ma leen 1956 ba 2010 tous les ballons d'or européens caaxaan yi sax dañuy indi nit ni yaa ci man ndax dañoo am franchise diwa man boo nee football nu ni diwa man boo nee làmb nu diwa man boo nee woy sax nu la am na ko dàqoon a woy ci jamono lu ne ñu wutalu ko ko boo dee wax lu jëm ci yàlla ñu ne dina nangu nga ni Serigne Touba kenn la problème dana amul française mu wax nag nii jiitu gi Cheikh Ahmadou jiitu ñu ni ko waaw mu ni bul ci complexe wax ko mu ni ndax ku dul Serigne Touba am nga ko mel ni yow fi mu ne koo tagg ku dul Sëñ Touba di nga gis ku mel ni moom sëñ Tuubaa rek nga mën a lijjanti aspect boo jël nga wax dëgg yàlla sëriñ bi kenn la te ñuy bañ sëriñ bi kenn la neex naa dégg sa biir kër gi sax man ngaa jékki-jékki ni sa doom ji dëgg dëgg yow daal sama njaboot kenn nga ci rek yow nga nangu ko ci say doom dañoo war a bañ a jaawale kenn ku yàlla ak kenn jaamam c'est ça le problème yàlla kennam gi xam nañu ko ñu duñu ay jaahil jàng suñ Tuubaa nu ko jàngal ci mawaahibul quddus jàng nañu téere yi ba koy jàngale comme ñoom danoo nangu ndogalu yàlla ni sëriñ bi amut moroom ñu libéré sunu lépp dakoog Cheikh Ahmadou Bamba mu féete nu fu kenn mënut nii tax nu koy kennal sëriñ Touba kenn la sëriñ Hamidoun mag ñi doon wax ni sëriñ Touba kenn la ak ñu nekkoon ci ronam dinaa ñëw thématique bi nga xam ne ni mooy bind bi logiquement waaw loolu day indi kenn Serigne Touba fi mu ne mbind mbind yarante bi moo wax nekk na xikma bu rëy ci biir mbind waaye léegi ma naan kenn Serigne Touba waa Mauritanie ñoo ne ko yow mosunoo gis ci kuy binde style bi ngay binde ci mbind xam nga su ma nee senegal coow li bari ndax fi mu ne lu mu rafet rafet may wax ku ñàkk ki ñaan la mu seeral sëñ bi bu subaa nu attaqué ma man da ngaa tudd sama sëriñ léegi dama naan fi ñukk Sénégal dem Mauritanie ah ahmadou dalili ahmadou mouhamadul fadal ahmadou dalili ibnu mouhamadul fadal al yanqo bi gànnaar la dëkk moom dafay wax ci sëriñ Touba aspect bi sëriñ bi binde mu wax ni nun naar yi nun arab yi grammaire arab ñun ñoo ko moom te muy dëgg kenn mësta ñemee jàng ba sóoru leen parce que ñi daan jàng fii ñu leen di coow dañuy dem ci réewi arab ya jàng ci ñoom pour dolli ko ci xam-xam fi mu ne fii ñi dégg france ci senegal lu ñu aay aay dañuy dem dolli ci français ya am déet ñun ñëpp jaar nañ ci programme bi dañ lay jàngal Molière Stéphane Mallarmé euh, Charles Baudelaire ngay jàng seeni poème ba dégg tubaab ñu lay wax figure de euh, figure rhétorique di la wax figure de style yi am di la wax xeeti bindi ni hémistice coupure dégg alexandrin neuvain ngay jàng ba jéeju ci xeetu bind yi am yépp te ci ñoom nga koy copier ñu door a wax ni yow dégg nga tubaab d'accord waaw léegi kon arabe yi tamit kuñ ci bëgg naw faaw nga dem ci seen programme ñu jaarale seen université jàngale seen programme ba nga géeju seen barnaamij ñu ni kii dafa bari xam-xam léegi nag kii di wax ci sëriñ Touba di seere moom yàlla dogal na du sénégalais d'abord doon sénégalais ñu ni par par lool ajuwul ci tariqa bi dafa nangu li yàlla dogal ci Serigne Touba mu xool mbindum Serigne Touba mu ne ko grammaire arabe ñun arabe yi ñoo ko moomoon ndax ñun ñoo ko boo vocabulaire arabe mooy baat bu ne xam li muy firi ñun ñoo ko moom ndax ñun ñoo ko nam tabe générosité mën a joxe ñun arabe yi lañ ci doon naw dañuy yulli suñ lépp joxe ko mu ne waaye yàlla ci dogalam yi dogal na mu indi jenn jëmm ju tudd Cheikh Ahmadou Bamba nii la ko waxee dama koy indi bayti arabe yi dañ an nahwu mooy grammaire wal lughatu ilmul arabi wal joodu wa inda alkurabi siimatuhum fa jaahum zu rutabi ahmadu bamba man ala bi rutabi najlu habibillahi zu taaddubi fa salaba aljamia aya salabi fa saaru maahu kalqusubi ila asiratu nabil anjabi ahmada bamba ya aqa taqarrubi afa yaxilu laka zulmul arabi bi axzi nahwihim wa axzi adabi wa axzi juudihim bi xayri wadabi loolu Sénégal waxu ko wax naa leen tur wi boo demee ci diwaan yi fekk ko fa moo ni grammaire arabe ñun ñoo ko moomoon générosité tabe di joxe ñoo ko moomoon ci jamonoy tartar ñuy joxe arabe lañ ko xameloon dégg grammaire ba jaaxal sa jamono arabe lañ ko xamee woon dégg làmmeñu arab ba jaaxal ci moom lañ ko xamee woon am ku bàyyi ko ci sunu borom yàlla yebal ko mu fekk nu ci sunu làmmeñu bopp nangu sunu grammaire boobu ci sunu loxo nangu sunu vocabulaire ci sunu loxo nangu sunu tabe di defar góor yàlla yu kiin mënut a defar ci sunu loxo nangu baax ci sunu loxo ñun ñëpp ñu mujj topp ci ginnaawam nekk ay toppit di ko topp ñu ni ba mu des yenantu yàlla muhammad moom rek la fi bàyyi ndax da ko wormaal daal ni ko nag yow ahmadu bamba ndax dafa yell ci yow tooñ mel ni sëriñ bi da ko laaj lu ma leen tooñe mu ne ko tooñ mooy fekk nit ki li mu nàmp màgg ci ñu yar ko ci nga gën ko koo man ba muy wëlbati ko jëla ci yow Ahmadou Bamba tooñ nga nangu nga suñu lépp ñu lay topp di la roy ci xeetu mbind koo tagg lu mu rëy rëy am na fànn bu mu bàyyi sëriñ bi la xam ci ku boole noonu yépp ci xam-xam te sëñ Ibrahima ma sar dafa wax loolu ci mbindam dañuy xam-xam sëñ Tuubaa rek dani ko fa lillaahi ilmun min ka lam yaxwi man madaw wa man xaana aw yaati min ahlil maarifi nee na tudd naa yàlla sama borom mi ma sàkk man Ibrahima Diop Masar ñu ne ko looy wax mu ne yow sëñ Tuubaa fa lillaahi ilmun min ka xam-xam bi jóge ci yow lam yax wi man ma baw ñi weesu woon ci jamono kenn mësta am xam-xamu sëñ Tuubaa waxuma sëñ Tuubaa ku sëñ bi teg ci kipaaram rek ci benn gendi ko mu jox la xam-xam boo xam dalay topp maa ngi fàttaliku bi ñuy xalal ñun ci géejawaay am na góor gu baax gu nu dëkkaloon góorug joolaa wallaahi alazim waa géejawaay mën nañ maa seet dafa laa yaroo góorug joolaa joo xam ni Baay Faal ñépp ko ragaloon yàlla may ko xam-xam ku jinde jàpp lu mu doon bu ñu faj ko ci benn gendiku dañ ko daan rang bis moo ni ñu xam-xam bi xam nga du ma toppee ñu ni ko déedéet maam mu ni bi may xaleel damaa mës a yaram bi tàng rek sama baay fab ma yóbbul ma Serigne Touba ci njaariñ fab gu ma fab teg ma ci poojam yàlla jox ma xeeti xam-xam yépp may faj kooku jàngalewul foofa koo xam ne boo fobee jëm mu mel noonu kon sëñ Ibrahima Diop ma sax ni ko xam-xam bi ci yow nga fi jaaroon ñu leen di coow amuñu ko kenn seenu ñu nga bokkal ci jamono ji kenn seenu la ci xam-xam sa ginnaaw kenn du mel ni yow ci xam-xam demal bibliothèque Touba mu bind nag ci grammaire ad nahu saadatu tulaab ñëpp a ko xam te doo doo doo nekk n'importe kii pour jàng ko dangay ngay jaar ci téere yi nu mii noonu demal nga jàng muxaddamatul kokki demal nga jàng al ajrumi demal nga jàng mil milatul ihrab demal nga jàng yooyu ba pare ba jàpp ne yow am nga xam-xam boo ñëwee sëñ Tuubaa di la jàngalaat ci forme boo xam ni académique di la ko jàngalaat la grammaire ba pare li gën a garaaw ci grammaire sëñ Hamidou mooy di la jàngal grammaire te koy defaale nazmu wooy dafa am ci arab lu ñuy wax nasru ak nazmu lii mooy li ñuy wax prose lii mooy li ñuy wax versification sëriñ bi nag da ngay ñëw ci saadatu tulaab mu lay jàngal grammaire te koy woyaale musuta am sëñ Bamba la ñu xam ci ko moom nga dem ci siira mu bind ci nga dem ci joxraaf mu bind ci nga dem ci ilmu nujjoom mu bind ci nga dem ci manti xaadim rasul bind ci nga dem ci bayaan sëñ bi bind na ci nga dem ci fiq lim ci bind kenn mënu ko jeexal nga dem ci matxu mu taggee yarant bi ni ko kenn mësta tagge warmaale ko ni ko kenn mësta warmaale amit lu kenn mësta am lii moo tax ñu naan Serigne Touba kenn la ci bind Brésil le Brésil fait cent fois le Sénégal géographiquement parlant le Brésil fait cent fois le Sénégal ki Brésil jox raa yow mën a bind ba kenn du la séen yow mu ngi tudd Jorge Amado Jorge Amado brésilien yépp ko xam te naw boo xooleen li mu bind ci giiru dundam gépp gépp bind ko mënta egg bu baree ba bari 100 kilos mënu ko egg da ko si woon rek du mat 100 kilos mënta ne nga dem Argentine ka bind ba jaaxal ñëpp Jorge Luis Borges la tudd bokk na ci ñu jox euh, prix Nobel de la littérature muy raaye wuñ leen takkal depuis 1901 avec Sully Prud'homme ba fii may wax man naa laa limal 1901 ba fi mu toll kooka lañ ko jox gudd na fan amee na teraanga yépp ci bind boo sëfee la bind lépp kooka àggul 100 kilos nga dem biir Espagne Espagne du moroomu Sénégal ci réyaay ñu jaaxle ba ci la génération del noventa y ocho ñoom la ñuy wax la génération 98 en 1898 génération boo xam ni seen mbind dañoo nangu xalima jaaxal képp kuy doomu Espagne ci diggante Pío Baroja Jorge Luis Borges euh, Federico Garcia Lorca euh, euh, ku ñuy wax Unamuno ku ñuy wax Azorín ku ñuy wax Pablo Neruda doomu sili la ñoom ñëpp bi nu dajee bu ma leen boole woon seen groupe ñoom ñëpp kenn du ci am 200 kilos. nga dem France Victor Hugo dee na 1885 ñu indi ko ci Panthéon bi ci lañ ko suul Victor Hugo doomu France bu ne xam na ko di ko symboliser di ko màggal di ko rendre hommage bi mu deewee en 1885 dañ ko indi ci Panthéon bi ni ku njara màggal la parce que ni mu bindee ci dramaturge la woon romancier la woon nekkoon na dégg nga poète nekkoon na philosophe il a il a été itam député en France Victor Hugo ni ñu ko màggale ci bindkat mësta am ci France boo sëfoon li mu bind lépp te moo ci ëpp bind moo ko ñuy wax Honoré de Balzac li ñu bind lépp mënta egg ci benn ton boo leen boole woon ñoom ñaar nga dem dëkk bu mel ni Allemagne ñu koy def góot góot li ñu bind lépp eggul 200 kilos nga dem dëkk bu ñuy wax Inde ñu koy wax jiddu Krishnamurti li ñu bind eggul 200 kilos nga dem ci réewi arab yi lu bind ci làmmeñu arab imam Shafii radiyallahu fu jaaxaloon ñëpp ñu ne mbind man naa toll benn téere par bis ndax bari Cheikh Mouhamadul Bachir moo ne sunu yaakaar Serigne Touba lim daan bind ci benn bis juróom ñaar fukki kàng fóore yu gaaw loxo te mokkal buñ daje woon di ko bind ci weer dañ ko man mu bind loo xam ne tam lii preuve bi mooy sañ gànna wax na ko léegi ku dul Serigne Touba mën nañoo lim sa mbind mu jeex ah dañ koy lim. ku dul sëriñ Touba man nañ ni lii la bind ci fànn yi jeex na ñun ñii di ci waxtaan fu nu tolluy gëstu am na mbind mun mënta am ma ba yi dee nag njabootu sëñ Touba gi lekk léeg nga jox ci nit xasida mu ne ah lii sëñ bee ko bindoon lii yéeme na di sëriñ Diop xamu ko te sëñ Touba ko bind te fànn yépp ci la bind bind ci istil boo xam mëstaam wax naa ko benn xale ci université Cheikh Anta Diop boo xam ni département araab la nekk mu may jaayi arabe ma ne ko booy déggoo arabe parce que yéen ñi jaar ci programme bii rek jaaru leen ci majaalis xamu leen dara ba mu ñëwee ma jox ko assinu mu'jama wal kaafu war raau li ko firil ma xool naan mais lii bind lu mu bëgg a wax ma ne ki nga xam ne yow jekku na làmmiñu yaaram ba ci araf bind li ñuy wax assinu mu'jama nga xam ne ak keef war raau ak raa muy as sukru muy cant li raa i wal baa i jox naa ko li raa ak baa muy li bi ñeel na yàlla woowu te moom yàlla albaa u war raa u mooy albarru mooy aji baax ci ma koy décortiquer ba mu yàgg mu yuuxu ni ma kii est-ce que lii bi ñu xam nañ ko ma ni ko kii mooy Serigne Touba. fànn bu ne mu jël ci temps am léegi li nga war a poser question mooy nan la doon boolee jaamu yàlla am jure ji ñuy wax jaamu yàlla ji nga xam ni Serigne mbay Jaxate nee na. ku fekkee sa julli bis ak cant war na ko ndax sa genn kàbbara gën julli juróomi junni nan la ko boole te li ñuy ragal wax sëñ Mbay Jaxate wax na ko nee sëriñ ba jar xëy ni mes jub dugg àll di wéy di laaja koy wër ba am téeméeri at mu ngi nii njariñ la jar laxasuy raflee ka xiif ak a mar ngir bëgg ko jot ba tee faf dab la mu ngi nii noo boole nag biib sëriñ ak lii njariñ ci lu biir te kenn réeru ci ay mbokkam lu màgg ngi nii daal ni alhamdulilahi ndeem doon naa murit bu dëgg la luy dal ku ànd ak sëriñ Touba ëllëg na ma dal képp ku gis ki ma gis ba noppi seeti leneen demal ma dem ba ma fii fii rek a dal sama xel ak dund moo ma ci doy suul dëddu moo ma ci doy bu sëb bu ñante ba Touba rek a dal sama xel sëñ Bay Jaxate nee na ku lay def moromit xam na ni tëll yaa ko mën lewet gee waral ñuy dendandoo waaye noonu la ku not gaynde not ségg ak mu far dàq ñay mu daw du soowoo ki bay noppil téwee yàlla gis na la sëñ Mouhamadou Gueye jamooy nee na ko yow daal min nii salaamun ka yaaquutin wa kal qamari bal faaqa durran wa yaquutan wa kalqamari ila allazi saara abdallahi xaadimahu sayqi xiyaasi malaasi man qada watari kii ngay wooy ku mu toon mu joxoñ sëñ tubaa ni ko nafaxta jiilaka duniyahum wa axiratan jaddatta diinan bila sayfin wala zumari ku dul yow mënta yeesal diine islam bocci woo gobar fay woo bu ñuy wax la non violence ñu ñuy parler de Gandhi Mahatma Gandhi Nelson Mandela lak nanu arrêté loolu Serigne Touba non violence mësta am suuf xam nga man naa xam sax nag nga tooñ ma man nga tooñ ma ma bañ a fayu sax maandu noppi waaye bindaat àgg ci du ba fayu jéggal naa leen te yàlla tax lii Serigne Touba ko mës a def ci non violence kan moo mës a liggéey ba àdduna sosoog léegi kenn sëñ Touba gi laa nekk ba tey de ba àdduna amee ak léegi kan ngeen mës sa gis ku sanc ab dëkk boppam loolu kenn sosu ko sëñ Touba sanc Touba gii 1888 la ko ci sanc dëkk boppam fekk fa dara tey mu dem ba pandémie bi tëj àdduna tey ñépp a jaaxle les grandes puissances diggante États-Unis France Allemagne Angleterre sax amaat na yéen ni juddu ñépp a tiit jaxaso on a fermé toutes les frontières ñépp noppi màggalu màggalam ñëw bisub Sëriñ Tuubaa bi ñuy sant yàlla mu dajale 4 millions ñu daje ci dëkkam santale ko yàlla pare zéro ka am loolu rek boo ci xoolee xam ne sëñ Tuubaa kenn la li ñuy bañ wax sëñ Tuubaa kenn la mais sëñ bi kenn la ndax boo nee doomi sëriñ Tuubaa ñun la doomam kenn melul ni doomam soo nee mbindum sëriñ Tuubaa nga ni mësumaa gis mbind mu mel ni mbindu sëriñ Tuubaa soo nee dëkkub sëriñ Tuubaa ñu ni Tuubaa moom genn la fi boo nee sëriñ Tuubaa ni mu bëggee yenant bi ñun la dëgg-dëgg amul ñaar buñ nee sëriñ Tuubaa kenn la problème bi am mais Serigne Touba kenn la. loolu la yàlla dogal sëñ Hamidou. ndeysaan jërëjëf euh, jërëjëf euh, sëñ Abdoulaye Diouf. waaw ah, jërëjëf. alaaka suñu sëñ foofu am na lu fi Serigne Touba wax ci liñ bind. dañu invité kilifa bu mag muy sëñ Ahmad ña Niass ñu koy jaaree ñu ngi topp jotaay bi mu wax ne da ngeen def benn jàngat ci su ma bindee arasa. tënk ci jaay yi. ku am boobu mustawa boobu niveau nag ci diggam ak boromam. saa yu ma yëkkati saa yu ma yëkkatee sama xalima di bind araf dana jaay tey lan nga ñuy indil ci xasaayit xaw ma da ngay ñëw xasaar naa bil ahda xaw ma da ñëw foo ubbee rek waaye faaw nga ubbil ma balaa maa ñëw ci gaañ yi rek ndax ku ci nekk fi ne maa ngi gis note nga loo xam ne boo ci duggee rek yëpp dana maa ngi gis sañ jili ba fi ne nii ngi bind archive yi alaaji bismillah xarna bi ahda خدنا إلى الأقرم في البعد والخور خهرنا بأعداء تورا وخذنا إلى الأقرم الوهاب البعد والخربان Serigne Serdio Mbaye noo ngi lay ñaanal sëñ Touba gën laa wéral gën laa taxaw gën laa sàmm ndax ku mën a tàmbali ab baas min wi ba bët set nga jàppe ko nii nga ko jàppee ruu lay dundal ñun murit nag dañ noo bàkkee ne ay dof lañ waaye noo yay dof ndax ki ñëw musul ñëw te dootul ñëw ci àddina ba muy woy xuqa lam wax ca gaa yu baax yooyu valable na ci moom ak ñi mu ko àndal boppam la doon wax rek ndax moom ku ko mos soo génnee ci mbedd mii doof dof waaye dangay ngay béréngu sax waaw mbir mi nag munoo mos ataaye ma mos ko te xamoo li ma mos lu mu doon waaw man li may mos ni tàqamti ko man rek maa ko xam moo tax nun noo yay dof ci moom dañuy wax ne sëñ Touba du woon organisme mouride du woon sénégalais yi gëm ko moo tax mu wàcc kaw suuf bu doon loolu mu wàcc beneen pays bu ñu gën a populaire parce que ba léegi yeggaguñ sax 16 millions bu doon nit ñee ko yéen intéressé du wàcc fii beneen xarnu lay wàcc te moom fu mu sooboon fa la ko yàllay wàcc li yàllay jaay ak li yàllay maye moo am te moom li ko yàlla may moom la ñuy dund mais li ko yàllay fay loolu sëñ bi soxlaa gu ko fii ba ñuy takk garab ba la ko soxla loo wax léegi xadallaahu xaajaat yi bi man jaa ana biha kooku keneen la kooku beneen niveau la nekk Cheikhul Khadim maa ngi jot ay message kilifa yoo xam ne ñi ngi naa ma ñun noo ngi dund nag fi ñu toll nii ñu ngi ziyaare bu baax a baax su ngeen gisee ñaari sole yi seex Cheikh Niass male Fadal Couture euh, muy ku baax koo xam ne noonu lay defal ñëpp ñi nekk ci yoon wi alaaji xam na li may wax ñu ngi koy ñaanal bu baax yàlla taxawu ko sàmm ko may ko mu yeggale ma nga fële ca golfu numéro ma ngi noonu ñu di ko ziyaare bu baax a baax Serigne Mamor Mbacke moom Serigne Abibu muy toog daf maa wax léegi ne ma may naa leen un million ci jataay bi li ma tax ma def ko it li ma yëg ci sëñ Tuubaa ci sama xol maa ko xam loolu nag yaakaar naa ne li ma wax léegi ci bi may tàmbali kon feeñ na ci jëfam kon noo ngi koy ziyaare bu baax mbakke waaye nag kuñ ne sëñ ma nubbee sa maam soo melut noonu rek yaakaar naa ne ñëpp daañ ci posé question waaye loolu gën a tuuti nag ci li muy def ah damay wax ne man Amidoune képp ku ma xam dama bëgg nga mel ni ma mel bëgguma kenn doon taalibe ma doon sëriñ dama bëgg ku may àndal nga mel ni ma mel rek kon Mbàkke jëf noo ngi lay ñaanal bu baax ñu ngi siyaare bu baax a baax euh, sëriñ moo Modou Gueye sëñ Mamadou Gueye mële sëñ Gànna mii daf ma wax barki démb lu mat vingt minutes yoo xam di ma waxtaan ci moom ci taxawaayam bu am solo ak ni muy liggéey li sëriñ Touba sëñ Modou noo ngi am mbégte bu baax a baax ci sa tàbbi ci jataay bi am na ñaari takk der yoo xam ñu ngi ci biir jataay bi ay kilifa lañu dangay jiite mbooloo loolu moo waral bëgguñu leen a tudd ndax léegi li sëñ Ablaye wax contexte bi fi mu toll soo yoree garaat garaate soo tuddee ci mbooloo boo génnee sax gaa yi xajamal la moo tax bëgguñu leen a tudd waaye yéen xam ngeen xam naa maa ngi leen di siyaar ay bàyyilaat lan sol nag suñ noppee bëgg naa leen a boole problème bi ma am a Jibril Ndaw ngeen lijjantil ma ko ñu di leen sonal nag guddi lañ leen di woo guddi bëccëg waxtu wu nekk waaw ñu ngi ci biir jataay bi di ay kilifa yàlla na leen suñu borom taxaw bañ yegg fu gën a kawe bi sëñ Gana di wax léegi ci parcours sëñ Touba dafa doy sëkk ci ñoom ñi nga xam ne tey ñi nga xam ne ni ñoo leen ñoo leen toppoon waaw kay jazakallahu xeyran sëñ Mamour joxe na million bi kon euh, yaakaar naa ne noonu rek lay demee jërëjëf euh, sëñ Jibril nag nee na xaalis day neexal bu jotaay moom xam nga dafa xoromoon oustaz Mouhamed Mbaye waa kër Cheikh Sidaaji nga yaakaar fa ngay ziyaare nga wax ma ci bëccëg ne ma li sëñ tubaa wax ci digganteem ak yonent bi ci diggante raaya kenn mësu koo wax te kenn dootu ko wax xafaaru lix fir sunu bii waf ko kan kabali bi ma man alayya li tarki zawruhu aaru dama lay bàyyi nga ñëw bu la neexee alaaji seex a ngi jàkkaarloog yow bismillah jox ko joxal ma ko micro bi joxal ma sëñ Mohamed micro bi mu ngi nii micro ngi nii joxal ma ko micro bi sëñ Mohamed ay ca bismillah ayca bisimilah bisimilah aouzu billahi samii alim min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim law naasabat xadruhu ayatuhu izaman ahyasmuhu xiina yudaa daarisa rimami sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabia al huda bi hadiyin ila yawmi diini ay dof ngeen dinaa la ko wax ci kanam baat bi nga wax te te dama la koy tegal nag ci baydu ko tedd gi Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul waaye dinaa la ko wax ci kanam. damay gàttal nuyoo bi ndax ay kilifa yoo xam ni sama ay soppe lanu bu ñuy wax seen seen seen seeni i tuñ ngay xool di ci génne cofeel. Euh, rawatina yow Serigne Hamidou maa ngi lay ñaanal yal na la Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul tiitaroo bi ñuy waxtaan ci bëccëg. ma ni ko ñaari ambassadeur Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul ci waxi olof pour mu wàcc sa naasa ala qadri uqulihim nit booy wax moom da ngay wax ak moom ca daraja ba mu toll nit buy dem xew day xool géwal ba mu yaakaar mu ànd ak moom ngir bu demee ca xew ma mën faa am ndam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul da ngeen bokk ci ñi ko war a jottali mu tànn leen yéen ñaar ngeen war koo mën a waxal ba dugg ci xolu jaam ñi. suñ gana maa ngi lay di la ziyaara bis bi nii ibbi Masaalikul Jinaan daf ma woo vers midi une heure du dëgg la ñu am lu nu waxtaane ñun ñaar mu rëy lool ci man muy sama xarit di sama lépp Bichiri nekk sama xarit nekk sama lépp xanaa bu ma waxee ni damaa dem ba njaaree ma takk fa soxna war ngeen xam ni bëgg naa Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul njaareem ànd ak sama goro itam Baye Fall la barki démb dañu dem dañu dem dañu dem HLM Sandaga ma ne ko mën naa laa laaj benn question ci ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul digganteem ak maam Cheikh Ibrahima Fall waaw lu tax maam Cheikh Ibra daan wax laa ilaha illallah Fall yem ci avancé wul arrièreul ndax mën nga maa wax lu tax may laaj murid ma fekk foofu ni leen bëgg naa koo xam te itam am na lu ma ci xamal Mbàkke maa ngi lay nuyu di la ziyaara yàlla boo ñàkk teraanga alal baax na ci mbooloo ndax dafay leeral kanam mbooloo moo dugg kanam boo gis mu leer ña fa nekk ba ñu gëj a lekk nuyu bu baax sëriñ Serigne Jili kenn Serigne Touba sama xarit la moom xam na loolu man xam naa loolu. dëgg la ñaar laa ciy wax danga nga wax léegi ni nee nañu ay dof ngeen xam nga lu tax. waaw Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul sama ñaari seede ngi di sama ay kilifa du xam ngeen xays maj ñuunu lay laa xays mhm. ba muy woy ba muy way ndaw sa mu bëggoon. ci mbëggee rek la ko teg ba ñëpp tuddee ko dofu laylaa bi du Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul nee na ni mu siiwee woon ci dofu laylaa ba dabuma sama digganteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te dafa daan wax amuru ala diyaari diyaari layla u xabilul jidaara koo xam ne ndaw si nga bëgg boo demee ba ci seen buntu kër dañuy tëj kër gi ndax bañ nga dugg ci biir sëñ ji li day jël loxo bi di ko raay ci miir bi di foon miir bi naan ko bu ko tiitaroo ndaw si ne ci biir kër gi te mënuma cee jot laay tiitaroo ñu tuddee ko dafa lay laay bi Cheikh Amadou Bamba ni mënumaa dab ñu ne ko lu tax ah, sëng bu tedd bi wax na ko sànq rabbu ba ko rabbu ba ko jamono kum fi jamono keneen kudul moom nga ne ayya waaye bi ko rabb bi jamee ba deret ji ba mu yëg ni la la ni naa ni maa ngi liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mahat mahabbati al muxtaari sayidina xubbil maganina wal ahlina wal walada juróom benn laayaa ngi ci alxuraan yàlla nee na maa ko téel sa bopp benn bu ne Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul am na garaatam dana laaj meen la inna allaha ala kulli shay'in xadir yàlla nee na maa ko téel liggéey bopp na ci yàlla ba yàlla jox sa sëñ Abdou Xaadir inna allaha ala kulli shay'in liggéey liggéeyal na ci yàlla ba am ci sëriñ Abdou Xaadir fa man kaana dama yëg di wàcc fa man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan liggéeyal na ci yàlla ba am ci Serigne Saliou Mbacke waa li ma yàlla defal lan la lay déranger lan la lay naqaree yàlla ni lu ma bind ci yonent bi yonent bee ci gën mboolem yonent yi 124 mille yi nit ñu baax ñi dama cee gën nga bañ a nangu yàlla ni innal fadla bi yaddi ndax dafa wax yaddi nabi yaddillah yutihi man yasha liggéey na ci ba yàlla may ko Cheikh Mouhamadul Fadal xam nga may dégg may laaj juróom-ñaari at juróom-ñaari weer juróom-ñaari fan jibril juróom-ñaari at juróom-ñaari weer juróom-ñaari fan weeru koor wu jot nga daal di ko wóor bokk kook jullit yi moo yow ku lay wax ni weeru koor teru na takkoo montur gisoo koy waxtaanal ba mu naan la dugg nañu ci weer wi siinu gi yaa ko yëgal sabab ku la koy wax juróom-ñaari at juróom-ñaari weer juróom-ñaari fan mosoo tiim julli ko jot nga julli ko waaye foo jëlee ndox ku la koy jox sa yére di la foo yàlla di ko teral digganteem ak yonent bi yàlla di ko teral digganteem ak yonent bi di dem guerre ñu ni la balaa ngay dem garat bangoog jox nañu la ko yaa ko moomal sa bopp yaa ko téye allamani rahmaanu fi safina bi annani xadimu zil madina te demagoo ñoom ñaar ñoo ma ko jàngal ban bis lay feete dem gi wala ñëw gi dem gi du dem gi lay feete lan la wax xarajtu ban bés la mu ni yow ma sabti lu mu tombeel mu ni saabina achara loo fay def mu ni xidmatil muxtaar ban weer la tombeel mu ni fii sahri safar ca ci weeru safar woowu ci la yonent yàlla Muhammad génnee woon àdduna wuyu ji boromam ku daan liggéeyal yonent bi ku ko daan liggéeyal damay laaj ku daan liggéeyal yonent bi ca jamonoom du Anas ah Anas ibnu Malik moo nekkoon mindaanu yonent bi daan daanal dooleem yonent bi ñu tuddee ko xaadimu rasuul jëlal benn lettre bind ci xaadimu rasul di wër àdduna ba mu daj ba egsiwul Tuubaa ñu tàppe ko du jàll dem beneen réew waaye bu ma nee am na nee leen ma am na cheikh ñu dem ñaari bayt ñetti bayt bu la neexee xidmatuhu anil xuyubi wal istiqaamatan wa safwan luñ ci teg lii baa kawnul raisa li kulli man xat fudilu rausa damir moo gën a jafe ci way tànk yaa ngi koy way damir di wax ak koo gisul woon na bii damir kii wax na ko sànq gis nga naxu bi mu waxee sànq ni Serigne Touba ni mu mel ci naxu ñi jàng grammaire arabe xam nañu ni lam lam lam boo ko waxee fi'lu mudaari'u bii ñëw majzum lay doon Serigne Touba bi mu naan lam yabdu fi'lu mudaari'u bii ñëw mar marfon la ko maas te ba tey borom xam-xam yi d'accord nañu ñi jàng xam nañu boo xarfu nafyin wa jazmin fi'lu mudaari'u bii ñëw ci ginnaawam moom mu ne lam yabdu ba pare mislul Moustapha sirran wa jëhran ah, da ngay xool liggéey bi mu liggéey naal bi mu naal fi mu jaar yëpp loo ma laaj digganteem ak yonent bi xoolal te te étape bu ñëw am na fu muy jaar état bu ñëw am na fu muy jaar bi muy déparé fii di tukki. ku ni woon dinañu dox ci jamono ba diggante euh, euh, euh, quatre ak l'an deux mille nga romb l'an deux mille ba deux mille vingt Masaalikul Jinaan taxaw waaw Masaalikul Jinaan ku ko yibbi di Sëriñ Muntaxa kañ la ko maamam bindoon sama ñaari sëriñ ngi ni toog de lil Muntaxa wajaxtu fi ndakaaru mhm. zikran bihi mhm. xaj kub kibal makaaru xoolal bi mu koy ibbisi ak jamono yooyu ni mu yàggeek ni mu méttee man li may jàng lu ëpp sama baay yi nga may seetaan ba Abdoulaye Mbaye Peex ñuy toog di waxtaan Sëriñ Muntaxa ma koy laaj ni ko diggante wiiri wiiri ak Mayomba lu fa xew bi ngeen fa demee ànd ak moom mu ne bi ko Sëriñ talaat tiimee dafa xëm bi muy dem lu ko yóbbu du iliko gungo waa xoolal ku tedd ki jamono ji mu fay dem lu mu àndal ku mu àndal ñu mu àndal xàmmeewul benn Pape Djibril xàmmeewul benn xar kanamu tubaab xàmmewul at yi mu def xàmmeewul benn xar kanamu tubaab yitteem yëpp lu mu wax karaamati xattu yeddi li mu bind yëpp di bind yonent bi di teg di bind yonent bi di teg di bind yonent bi di teg distance bi mu def yëpp ku ko wéttali kan la àndal benn rek moom a ci neex lenn rek moom a ci neex dama koy faral di wax sama soxna ma ne ko ku waat te du dëgg ci yow balaa ren di déwén yàlla dina la natt ma ne ko wa rabbil kaabati gént naa benn guddi reerandoog sëñ Tuubaa ñaari yoon cere man ak moom kenn raxuñu ma ne ko bu fekkee ni amul bu ma waxati ci yonent bi yàlla bu ko kenn déglu li ma neex ci wayam yëpp yëpp yëpp lenn kese laa ciy déglu mu jar mu tuur rangoñ muy irham jami al wara benn baat irham يا هاديا ردا يا مالك الملك يا من جل عن خلد ارحم جميع الورى يا هاديا ردا يا مالك الملك يا من جل عن خواد ارحم جميع الورى يا هاديا ردا ma daaneel foofu rek jox sëriñ si damay ñëw ngir bëgge si ngir kontaane si xaamidu baat boobu rek moom ma ci neex irham jami alwara xam nga alwara tubaab yi mu àndoon sax ci lañu bokk gis nga yonent bi bi mu demee Taïf wasaaxa adma wasaala damulil xadami ba tànk yi commencé génne deret yàlla yónni jibril ni ko demal nga wax sa waa ji fii mu toll Moussa tollu fi woon fii mu toll Yaxya toll fi woon fii mu toll Daawuda toll fi woon mboolem yonent yi dañ leen a xëbal ñu woote man yàlla ma daw wallu moom nag noppi nag ci mbaaxam ñu xëbal ko ñaanul ñu dóor ko ba tànkam yi di nàcc ñaanul wax ko ni ko man yàlla maa ko wax ni ko na ñaan mu ni yàlla jéggal leen rabbi xfir li xaw mi fa innahum laa yaalamun loolu la Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul utilisé irham jami al wara yaa hadiyan radaa lii nag maa ngi daaneel foofu xam nga lu neex nit buy joxe di joxe di joxe ba caag mu ni kaay ma ma may yàlla di ko yonent bi di ko teral di ko teral ba ni ko kaay ma wan la ki ma may boole koog yàlla amul lu gën a rëy laa ilaha illallah sëriñ bi la indi ñu ni ko kooko jox mu jox ko daa bay maam say njaay mu ngi noonu foofu laay daanelee kàddu yi salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. Euh, mbay ñu gërëm ko bu baax wax dëgg yàlla bi ñuy bi ñuy def euh, di noté diplôme ak décoration décor yi nga xam ñi ngi koy yëkkati muy ay kàddu yoo xam groupe kenn du sëriñ bi ñoom ngeen gis ñu toog nii ñoom ñii dañ daan seetaan émission bi. ba tax ñu taxawal ci kuréel gi xam naa loolu danañ ci ñëw ci jaatal ndax sëñ bàcc mi ngi fi ak sañ mam mi nga xam ne moo jiite waaye sañ bàcc mooy communication groupe bi ñuy ñoo xam ne ñoo dajale seen i pas-pas ay sëti sëñ tubaa ngi ci maa ngi gis léegi soxna mam ami Mbàkke euh, ñu di ko ziyaare bu baax a baax soxna mam ami baara ak soxna Adama Mbàkke mi ngi ni toog ñu di ko ziyaare bu baax a baax waaye buñ ci toftalee ñoom sëti seex yi nga xam ne ngi ci biir incha allah xam naa sëñ bàcc dana ñëw ci yaatal waaye balaa ñuy dem ci sëñ Jibril Ndaw ñu ñëw ci sëñ Pape Djibril ak sëñ bu mbay ak Oustaz Ndiaga Seck ñu door a dem nag ci bu ñuy jaaxal ci deuxième plateau bi ñu ngi si ziare général Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noré nii nee na ma mbaa du ma far ñëw ci plateau bi tubaarkàlla man daal fi ne mënatumaa toog léegi léegi day saan téléphone mënoo ko wax ci biir kii waaye euh, kéemaan la nee na ma am na daal ku ma yebal soxna Daba Mbacké waaw waaw borom danaa ci ñëw léegi ah. danaa ci ñëw léegi ci ci sponsor yi xam ngeen ne tey dañu am ay yoo xam ne ni ñu ngi ci biir dañ koy tàmbalee ak Promobile balaa ñuy ñëw ci sëñ Jibril xam naa ne seen Abdou Khadir Fall mi ngi fii dañoo bëgg jël euh, ca kanam bu ñuy bëgg a jeexal juróomi téléspectateur wala fukk yoo xam suñu wootee daañ leen recharger ci seen téléphone crédit ak connexion ñoo xam dañuy dugg rek bu ñu nee salaamaaleykum ziar nañ dégg nañ rek yow ñoom dugalal nañ leen seen crédit ak seen connexion incha allah rabbi muy euh, lu lu am solo te takku lool su ko defee sëñ bu Xaadir Fall mi ngi fi nga xam ngeen ne Promobile plus la boo xam ne nii ci biir euh, réew mi la juddoo. incha allahu rabbi fi lay màggee eh, buñ ci tuddee alaaji mbàkk yu fay rek dafay mel ni liggéey bu am solo la boo xam ne ñëpp ci war a tàbbi ñu nekk ci réew mi te di sénégalais eh, yomb na te it jàppandi lool ci prix yi ak tawféexe gi su ko defee itam eh, sëriñ maxtaar mbàkke mi nga xam ne ni moo jiitee li nga xam ne ni mooy liggéey bi ak ñi seen ginnaaw ñëpp noo ngi leen di nuyu ak promobilière nga xam ne man tubarkàlla actionnaire laa ca ñi ngi ziar baax sañ alaaji fay moom alaaji mbàkk yu ak grand may Soxna Mari Guèye tey defar nañ ay xéewal yu am solo indi ko ñoom it bokk boole ci li nga xam ne ni mooy plateau bi ñu di ci si gërëm bu baax a baax euh, El Hadj Faye mi nga xam ne ni euh, kenn la ci euh, njabootu jëwriñ El Hadj Mbàkk yu Faye kon su ko defee Sëñ bu Khadir mën nañu ànd xool promobile taxawaayam bi su ko defee ñu mën a joxe li nga xam ne ni mooy deuxième partie cadeau yi ñëw nag ci El Hadj Jibril Ndaw ñu door a daalan suñ gan ñi ndax dañoo bëggoon rek moom mu ubbil leen waaye am gan ni ñu koy waxee ñoom ñoo moom bi suñ ñëwaatee nag door a ñëw ci suñu invité yi nga xam ne ni tey bëgg nañu dañoo déglu Serigne Touba joo xam ne ni euh, dana neexal xol lool te dana féex luñ ci wax nag neex na kon damay bàyyi rek euh, sëñ Jibril ñu dem régie siwaat su ko defee sëñ Abdou Khadir indi li nga xam ne ni mooy euh, addiya ji nga xam ne ni muy fulaar yi nga xam ne kii indi na ko ak puce yi nga xam ne ni fas nañ ci yéenee bégal téléspectateurs yi seetaan ñu dem régie dellusiwaat. ngeen taxaw déglu lii may wax borom Touba dal xam ne borom Touba mooy borom Touba. senegaal lu bees Promobil Promobil di premier opérateur mobile bu Sénégal du xalaat kese de xar kanam la buy jokkoo ak askan bi di mbégte ak bége Promobil weesu na bi Promobil weesu na ndax leen mbir mu ne day am sang waaye sangu piis yi nag ñëw na promobile pro 75 promobile mbégte ak bëggee promobile daal ëpp na ne day am sang waaye sangu piis yi nag ñëw na promobile pro 75 promobile mbégte ak bëggee promobile daal ëpp nag promobile lii may wax borom tuuba ngeen dal di xam ne borom tuuba mooy borom tuuba jug leen taxaw déglu lii may wax borom tuuba ngeen dal xam ne borom tuuba mi nga xam ne ni ñëpp xam nañ liggéeyam xam ne ni mooy sëñ Pape Cheikh ñu ngi leen di sant euh, waa Promobile kon sëñ Abdou Khadir Fall ñu ngi di ko gërëm bu a baax ci euh, taxawaay bi euh, gis ngeen weex nañ tàll ni ñu ko waxee léegi dañ jël ñi nga xam ne ni ñoo war a dugg ci li nga xam ne ni mooy recharge yi nga xam war nañ leen ko defal sëñ Jibril Ndaw dama lay ñëw rapidement parce que gars yi tàngaguñ dañoo ubbi doon sofe far ñu taxaw léegi dañuy ralentir alaaji ñëw na sàppali oustaz Mouhamed euh, oustaz euh, euh, gis ngeen fi mu daanele lan ngay ubbi sof ko ci ñaar ñi nga xam tey ñoom lañu ñu dalal ci plateau bi muy Serigne Gana Messere Makhtar ak sëñ Abdoulaye Diop Bichri sëñ Jibril Ndaw aouzu billahi min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah sayidina muhammad wa nga may ma rek balaa ma ci tontu ñu nuyu kilifa yu tedd yi nga xamante ni ñoo nekk ci jataay bi mm-hmm. ah, di ci jiital yi tamit sama sëriñ Cheikh Abdul Xaadir Jiili Ba ndax ah, woy juram suñu yaakaar Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim moo ko meññi kon nag ñu koy nuyu di ko ziar bu baax a baax di nuyu tamit Serigne Mame Mor Mbacke moom Serigne Abibou moom seex Mandoumbe borom mhm. xabbaan mhm. moom mi nga xamante ni wax dëgg yàlla moo ñu taxawul Cheikh Mouhamadul Moustapha ba mu matal liggéeyal Serigne tubaab bi mhm. kon ñee nit ñu ngi leen ci nuyu bu baax te di leen ziar di ziar nag mbokki taalibe yëpp ñii nga fi dajale mën naa wax ni ay activiste lañ ci yoonu murit ñoom ñëpp plateau bi ñu fi ñëw ñëpp loolu lañ taxawee rawatina ñiy def seen bopp ci benn groupe tuddee ko kenn kenn du sëñ Tuubaa te jataay bi waral ko di beral nuyoo bu baax a baax nag suñu mbokk yi di Pape Djibril ak bu mbay ndax complex bi Bichri doon wax dalu leen fuñ mën a nekk làmboo nañu lépp loo xamante ni intellectuel am na ko waaye tubaab bi defut ci ñoom complexe boo xamante ni dañuy làq seen muridité kon loolu it ñu ngi leen ci félicité bu baax a baax di nuyu euh, oustaz Mouhamed ci kàddu yu am solo yii sëriñ Jaga yow ñu ngi lay siyaar bu baax a baax siyaari soxna yu tedd yi nga xamante ni ñoom it wax dëgg yàlla bàyyi seeni nelaw ñëw boole seeni sañseek seeni alal ñëw teew ci jataay bi soxna yéen ñu leen baax a baax sañ euh, am yow nag dañu lay félicité ndax émission bu ñu ko jëlee jox ko nit direction bi joxe émission la mën direction bi tànn présentateur la mën waaye nag yitte ji ak yéene ji ak dogu ji ak doxal gi loolu moom vraiment depuis Covid bi ba léegi. gis nañu engagement bi nga xamante ni am na émission bu ñu la mos a jox yóbbu nga ko ci niveau boo xamante ni ba pare da ko fay maintenir émission ñaare bu defee six mois dafay dafay commencer di di di daanu mais bii dañoo gis ni léegi mu àgg ci huit mois te day gën a yëkk gën a jëm kaw kon nag loolu sa Pastef la waaye tamit sa engagement la loolu nag vraiment au nom de la direction ñu ngi la ci ñu ngi la ci sant bu baax a baax te di la ci di la ci jaajëfal di remercier nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci ànd ñëpp. Euh, xam naa ngir bañ a guddal rek damay glisser tuuti ci thème bi pour mën a ubbil sama mbokk yi nga xamante ni xëy na dafa am benn école boo xamante ni ñu ak ñoom ñoo fa bokk jaar waaye école boobu suñu am boo ko xoolee dañ ñuy jàngal ay Platon ak i Thomas More ñu doon am ay rêve yu ñu tuddee utopie doon def ay société naan man kat su ma sañoon dëkk ba may nangam nangam lay mel nit ñi nàngam la ñu mel nit ñi nangam loolu Serigne Touba dafa ñëw euh, théoriser ko ñoom ñu defoon ko ay concept moom mu ñëw théoriser ko ni dinaa taxawal cité boo xamante ni dinaa taxawal mm-hmm. dëkk boo xamante ni bu ëllëgee moom mooy doon mm-hmm. euh, symbole bi nga xamante ni ci la lislaam di wane ni fii kat lu ñu sampoon l'islam la loolu sëñ Mouhamadou sëñ Moutara da ko wax waa Europe ni leen na ngeen fexe ba kër Sëriñ tubaa yi ngeen di taxawal li daloon naar yi bi ñu demee ba toj Europe moom fépp moom Andalusi moom fu fu ne ñu euh, yokkat ba loolu génn seen loxo mu ni kër yi na ngeen fexe ba ëllaa yow mi diini kër Serigne Touba lay doon loolu li ko waral mooy Serigne bi dañu woon dinaa defar société boo xamante ni nit ñi bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu soxlaa gisante soxlawuñu téléphone. bu ñu soxlaa voyager soxlawuñu avion bu ñu soxlaa waxante. Mm. loolu mooy lan moo doon dafa doon tarbiya nit ñi ci tawhid noonu Seydina Omar taxawoon di di di di di di ba à huit cent kilomètres wala lu ko ëpp mu toog jàkkaarloo koo xamante ne ñu ngi koy roy mu ne ko yaa shaarija ilal jabal mu dugg ko kooku mën koo dégg sëñ tubaa ni ay nit laay defar yu mel noonu loo xamante ne lu ci waay mën a wax ñu dégg te loolu sëñ tubaa réussir na ko sëñ tubaa toog na fii mag ñi defal ko toolu àllarba di ko bay muy taw am kenn ci mag ñu si ñu xeebu si nañ leen mën a gisee si jëmm mu ne yow asrafil bul tooyal gerte sëñ tubaa gi dawal koy taw fële ñu seen taw bi du ko taw te loolu du dara lu dul connexion bi nga xamante ni sëriñ bi bëggoon na ko taalibe bi àgg foofu mooy lan mooy nga namm sëñ gànn nga toog suñu borom wan la ko wan la ci nu mu mel nga soxlaa dem fenn ñuy mel na nga ubbi ab rido jàkkaarloog moom kon loolu moo doon li sëñ Tuubaa bëggoon ci ñun mooy defoon ñu ay taalibe yoo xamante ni dañuy àgg ci suñu borom di ci dox di ci dox ba lépp lu ñu bëgg a lijjanti suñu bopp ñu mën koo lijjanti. Mhm. def société boo xamante ni du am kiñaan du am wor day am partage waaye tamit bu ñu ñëwee ci wàllu économie. concept yi nga xamante ne moom la gars yi doon théoriser mu jël yeneen concept yoo xamante ne ay xidma ak yu mel noonu ñuy ànd di jariñante commerce solidaire ak yooyu yëpp mhm. commerce islamique yooyu yëpp ñu sëriñ bi jël def ko kon société boobu projet de société boobu la sëriñ bi amoon bu jëmee ci wàllu littérature lim cay bind bind bind bindu si lu dul lu amal nit ñi njëriñ kon nag lan la mooy société boo xamante ni dinañu def recherche de savoir boo xamante ni xam-xam bu baax lay doon bu jariñ te loolu mooy li nga xamante ni moom la Cheikh Mouhamadou Mountakha indi def ko ci université bi ni danaa leen defal université boo xamante ni su ñëwee danañ ca jàng xam-xam yu baax yuy jariñ yuy ommat nit ñi waaye tamit dinañu fexe ba ndaw ñi mën a sukkandiku ci li kon loolu tey jii loolu la ñu war a waxtaane mooy projet de société bi Serigne Touba amoon lan la namoon ci taal taalibe yi mhm. lan la namoon ci jullit yi mhm. parce que moom sax amul woon ay taalibe mhm. muridullaahi la wax kon nag fexe na ba circonscrire dëkkam li ñëpp tële woon doon ko yaakaar mu def ko mu réaliser ko kon Serigne Touba ñëwaat si beneen fànn suñu am te fa laay jeexale mooy wane nit ñi ni jaamu yàlla c'est possible ci n'importe quelle condition bu doomu aadama mën a def sëñ tubaab prouvé na ni du ma julli damaa damaa feebar du ma julli dama sonn duma julli damaa nekk ci xat-xat du ma julli parce que nangam parce que nangam parce que nangam déedéet mu ni kon nag lii dañu ñu koo sant Sëriñ Saaliw ni euh, man mankat dama leen di fàttali li tax ñu indi ñu fi tax ñu bàyyi ñu fi te mooy jaamu yàlla kon sëñ Tuubaa léppam jaamu yàlla la woon kon li ñuy wax ni sëñ Tuubaa ak yàlla yàlla dafa moom lépp sëñ Touba léppam di yàlla. Mm-hmm. kon loolu rek mooy mooy mooy mooy différence bi te loolu mooy lu moo ñu fi bàyyi mooy. Euh, faire de la communauté musulmane mhm. une force homogène, bien structurée, mm -hmm. apte à déjouer les manœuvres insidieuses de ses ennemis. <laughs> ni ko Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma waxoon. kon daal foofu rek laay daanale. jërëjëf di bég bu baax a baax. di nuyu nag vraiment mhm. suñuy kilifa. Mhm. Serigne Cheikh Balla Samb mi ma dendal. ak euh, Alaaji Mbacké Faye mi nga xamante ni. wax dëgg yàlla moo ko fi teg jiital ko suñu kanam. muy suñu baay. di suñu mag di suñu. Euh, lu ne lu ne lañ koy kii ndax woyofam gi waaye nag ñu ngi koy jaajëfal. di ko sant di jaajëfal nag bu baax a baax. sëñ Gànna ak sëñ Bisri. ñoom nag ni ko sëñ Mouhamed waxee. jërëjëf ay ambassadeur lañ sëñ am daal vraiment bég nañ bu baax a baax. jërëjëf sëñ Jibril kontaan nañ. jërëjëf Ndaw suñu gars yi rek pour. xaw ma nooy def laat bu sa maram ak sëñ Mamor Mbacke ak ñoom sëñ Cheikh nii ndax ndawee ni tubaarkàlla. Euh, alaaj Njaga sekk joxal ma ko kàddu gi bala ñoo egg si fii alaaj Njaga dafa mel ni fi sëñ Jibril daaneel rek foofu laay ñëw produit bi Sëñ Tuubaa doon samp tey bi muy jóg ñu bari jàppoon nañ ni lu jafe la waaye lu mu doon lu nekk bu ko dee moom moo koy njëkk moom du doon desit ci moom ndax fa tegoon yàlla ak la doon visé ndax xam na ni ki muy sëf lu mu ko sëf attan na ko ban réussite ban mujj jamono jii ñu toll nii fan la jeexit yooyu toll aoudu billahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim barke xaadimal Mustafa tey moom dama xaw doy waar lool ndax defewoon naa ne lii dina ma du may du may faral di gaaw dal lool waaye nag ndekete woo sëriñ Bamba moom yenn saa yi mu sippi kenn rek am pikir bu mu ko pikir defe naa ne loolu pikir nañ ko ca maag yow ca Kaaba ga ca ak ak gànname sere bi mhm. keroog daanaka mujj dafa mujj tàggook ba nga ni ma daw génn néeg bi mhm. loolu koy def mhm. alhamdulilah ñoo ngi sant yaaram Mbàkke jëf nun yow ku nuy sagal ga nii rek la nekkee nun nag waaw yow nii rek nga nekkee taalibe yi sëñ Tuubaa yi mm-hmm. bu ñu yeggee ci sëriñ Tuubaa danañ la seedeel ni la nii rek nga nekkee taalibe sëriñ Tuubaa yi mm-hmm. sama xarit yi nag moom mm-hmm. du ma sori Pape Djibril jërëjëf am na lu murit gi jafe lu jafe woon murit gi lool andi nga ko moo tax ko jara jàppale la nag parce que boole wuñ nu woon ci affaire journalisme boole wuñ nu ci woon ku dul mbay mii nga xam ni El Hadj Clédor boo ko dégloo day représenté El Hadj Clédor Diagne ci RTS. kee ñëw taxaw samp lool am fit lool wane boppam lool lu mu yëkkati fa mu toog man fa laa nekk maa ko fa jiitu fop télé ba sama émission fi ci moo ci jëkk a jàll loolu la ma sëñ Tuubaa defal waaye bi mu yegsee damaa toog guddi lam di ko ñaanal yàlla ndax la ma doon wut sëñ Tuubaa dama koo defal. léeg-léeg sax ñu ni njaga leneen laag loolu waaye xam nga lu def loolu sëriñ tubaab moo mel noonu bu yoree wenn benn benn melo rekk du mat sëriñ bi loolu nag ñeneen yi xalaat dinañ xam loolu bu yoree lenn lu nuroo kese kese du mat sëriñ bi yéen a ni sëriñ bi kenn la sëñ am man samay wax du gudd tey sëñ Ablaye Diop Bichri maa ngi moom du ñaari nit kenn lanu waaye fi ma lay wax rek dina wax ne kenn gi ñuy waxal Serigne Touba. examen la ko la ñun mënuñu koo seede ñun fi ne ba léegi ndof gii sëñ Mouhamed di wax ci la ñu ne comprendre ñu dara parce que ni mu demee dañoo ëpp doole boo duggee ci xes yi jaxasoo boo duggee ci njabootam gi jaxasoo boo duggee ci taalibeem yi jaxasoo ñun duñu comprendre xam nga ñuy comprendre tubaab yi ñoo def examen bi di ñoom ñoo def examen bi ñoom boo fa taxawee ni sëñ Tuubaa du kenn ñu ñu ne eh boo ko fa waxee tey dee de parce que làbbe ya naan kon nan maroo yaa muslima keroog dañoo booloo fa saynu saylema seen seen fab ba ñëw jox Bamba daa ak xalimaam ni ko siñeel ni joo jihaat yaay sunu maam Cheikh Bamba siñeel radd ak asir ñoo ñoo foofa la foofa la sëriñ bi defee doctorat ba fa la de fa la jële fa la fa bi foofa la ko dese barki dem boo njaay benn examen ñëw mémoire am bi mu koy bind mooy ci màggal gi la ko bind ci Covid 15 la bind mémoire am Covid 19 ci la Serigne Touba def mémoire am est-ce que comprendre ngeen li ma leen wax nii addina bépp jaxasoo di toj Serigne bi wax na ko léegi dara doxul li feebar bi bañ Serigne Touba bind ci mémoire feebar bi jaxasoo lay bañ dendante lay bañ ñàkk muuru lay bañ joxe loxo lay bañ. mu boole yëpp ah mu boole yëpp man dugg naa Touba ba génn ko doo ko fàttaliku ni man yóbbaale woon naa ay ay masque ma ni am na ci loolu duñ fi nekk di ko détaillé dañuy indil problème gis nga sëñ bu buñ ko bëggee àtte dañuy indil problème parce que ku dul kenn boo ko bëggee leeral yow ci sa bopp la nit ñi di baax di la sànni xeer ak fu ñu jëm ñun xamul lu mu doon bari ko mën koo àtte xam nga lu xewa ah? sëñ Gana li ndax ma fonk si Ahmadou Kara Mbacké nooré nii dinaa koy wax kii saa su dama ko bëgg ndax façon bi mu bëgg Serigne Touba moo moo moo moo foor façon bi mu bëgg si Ahmad Bamba moo foor sëñ Hamidou xam nga day wax naan jërëjëfa sëriñ tuubaa xam nga sëñ Touba waxtaane ko toog di ko waxtaane nii si man dama ëpp dafa bari doole dafa dafa nan boo laalee benn sëtam mën nga cee xëy suba ba ñii dañ koy def ca télé ba dañ leen di invité ñu jàpp ci par kenn di kenn di di ko dajale sëñ Tuubaa nga dugg ci mi ñu fi tàmbalee wax ak léegi ci kenn gi rek lañ yem ba léegi mënunoo expliquer dara mënunu koo toj mënunoo tas dara Cheikh Amadou taxaw Mbacké taxaw naan jërëjëfa Serigne Touba ma ñëw ni ko da nga koo piraat ma ne ko da comprendre li mag ñi toppeewoon Serigne Touba ba jariñu moo tax lu mu dugg da cay génn kenn mënu ci dara parce que façon bi mu bëgg sëriñ Tuubaa moo noobul mu ne ma fan la ma ne ko Seex Sàmba Jaara Mbay sama sëriñ moo ne sëriñ bi musuma koo jaawale moom moo tax li may wax moo ko moom tudd turam doy na mam koom te mooy seral sama yaram bind turam may na ma xel tudd turam may na ma xol si rub turam may na ma lool du ma ko wax xolo ko xam eh ca tur rek ah tur wa rek laalul xasida laalul dara bon daal Cheikh Balla Samb. tabarkalla foofu laay daaneel jërëjëf El Hadj Ndiaga Seck damaa daanu dafa am lu ma daaneel loo xam ne fa laay yem. xamoon naa ne xamoon naa ne lu der lu der bi yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg. waaw ginaar ga. lu mu wax ci dama la ko waxan rek. waaw waaja day dàq siiru sa day dàq ginaar gi ba mu dugg ci paxam. waaw mu taxaw ci bunt bi ni ko faf nag. Mhm. mu ne ko lu tax mu ne ko bu ma la jàppan it fii laa la jëme sëñ am léegi bi may ñëw soxnaaram Diop dama ko ni mhm. Thiès la dëkk dama ko ni damay dem Touba TV dañ ma invité ci waxtaanu Serigne Touba mu ni ma waroo dox ma ne ko yor naa oto mu ni ma li ciy dem maa ko ciy sànni. ndeysaan soxna Ram Diop. ñu ngi koy ziar ku bëgg Serigne Touba te baax. jërëjëf kon nag noo ngi ziara di leen jéggalu. jërëjëf Alaaji sëñ Abibou Mbaye def nga benn documentaire boo xam ne nii yaa ngi ko def ci Mayoon ba damay wax juróom-ñaari at sëñ Mouhamed mbay wax na ko waaye juróomi at ëpp na ci nga téye nit exilé ko. ndax cinq ans yu njëkki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul kenn mënu laa fu mu nekk ci daayir waaye nag jàpp nañ koom personnalité ndax koo xam ne bañ koy yóbbu dañ ko décréteel këyit booba Sénégal amagul indépendance prisonnier boo xam ne moo lay wax waxtu wi muy dem wax la waxtu wi muy ñëw prisonnier boo xam ne da ko wutal bateau spécial bu koy yóbbu te booba transport yombul prisonnier boo xam ne ni ba muy ñibbisi moo paasal boppam maag siñ Cheikh Ngounda mi toog nañ ci géej gi di waxtaan gis leetar bu mu bind ak ay abyaat yoo xam ne ni moo sàggul fàggul boppam laaj ñaata mooy paas bi ñu wax ko mu ne damal yëgal tubaab bi ne damay waaj a ñibbi Sénégal yóbbu nañ comme personnalité sëñ Abib Mbaye nan nga jàngate maa yoon ba auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani ah, man day eh, xaw naa eh, luum tuuti ndax bu fekkee euh, sangu yu tedd yu nekk fii kenn ku ci nekk yëkkati kàddu ak fi nga xamante ni bii fa la yëkkati waxtaan wa ak fa mu yemale nga bëgg a ñëw si wax seen ginnaaw dina xaw a doy waar lool bu ñu fi wax nag ci ay bëyit ndax mënuñu ko duñu duñu du ñu wax ni sëñ Gana di waxee mënuñu ko xalaatuñ ko ni sëriñ euh, Ablaye Diop Bichri waxee it xalaatuñ ko waaye nag dañuy wax ci ak yëg-yëg yëg-yëg ak dund loo xamante ni bii ci sëriñ bi day firndeel rek thème bi di kenn du sëriñ Touba. di njëkk di nuyu sëriñ Mbackiou Faye mi nga xamante ni bii day firndeel kennuk sëriñ Touba dama koy gàttal rek masaalikul jinaan ba fa dara nekku muy ab suuf dong goo xamante ni bii ànd naa faak sëñ sa Touré mu am ay teen yu bari yu def ndox teen bu ci nekk boo sëggee laal ndox mi kon ngeen xam ni kon booba lañ fa tàmbalee dem mu agsi fi mu agsi tey kon loolu kenn sëriñ Tuubaa la ay teen yu bari bu ci nekk ñu doon sonde ndox mi di xool ni ñuy génne ndox mi ñuy laal suñuy loxo di daj ndox mi naan ndox mi fee la ñu fexe ba ndox mépp dem kon Serigne Bakiou man dey liñ naan lom de l'année weesale naa la ko waaye man jàpp naa ni l'homme du siècle yow foofu laay yem ci moom duma ci sori ci njàmbaaram di ziar sëñ Baye Cheikh Samb li tax ñu koy ziar it dañoo dem ba Chicago fekk ko fa kenn ku Serigne Touba feeñ ci jëmmam ji ndax caatum sëriñ Touba di Cheikh Mouhamadou Mourtada yàlla yàlla yokk ay leeram dañ ko tuumaaloon tuumaal Serigne Touba ni sëriñ bi bi mu demee ci géej gi dellusiwul bind ko ca musée ba nekk ca Chicago sëñ Cheikh Balla Sam mi xam naa sax nit dëgg nañ xisab ba tàyyi mhm. ci nuyu ko rek ndax dama bëgg bu ma nuyoo rek waxaale leen ñu ciy dox di ci dox ba sëriñ Mamor Mbacke Murtada ñu ngi koy ziar baax moom mi tax ñu wër àdduna naa ñu ci journalisme beeg liggéey beeg lépp waaye nag lépp sëriñ Touba la rek moo tax ñu wër àdduna bi mm-hmm. moo tax kenn sëriñ Touba muy def ay jéego ba sëriñ Murtada ñëw ca musée ba musée booba am na fa benn murit boo xamante ni bii dafa fay boo fa dugg see da ngay dégg mois yi bu ca musée ba da koo fay pour cent ans ci Chicago moom mii mu ciy dox di ci dox ba Serigne Mourtada ñëw fa ak na mu doon doxe ak coono ba ba mu ñëwee ñu xamal ko ni ko kat lii kat nit a ko bind te faw bu ñu dindi ko faw commission daje ci université bi ngir ñu mën a dindi wax ji Serigne Mourtada génn ci loxoom ci poosam kàddanteem daan ni bi mu jugee géej man laa gane àdduna kon weddi wax jooju ni woon sëñ tubaa daa des ci géej gi kon sëñ Cheikh lu ñaa xamul sa liggéey rek waaye liggéeyal nga sëñ Touba loo xamante ni bitim réew ca Amérique moo nga fa des ba léegi mu mm-hmm. ngi toog fii Touba TV di ko di ko gérer de waaye li mu liggéey sëñ tubaa bari na liggéey bu rëy kon fa la yem mm-hmm. di ziar sëñ Jibril Ndaw magalu tubaa gi wees rek këram lañ dem mm-hmm. ziar fa ci ay teraanga yu baree baree bari sant naa ci lool nag dem gi ma dem sa kër ziar la saafoon teg sa njaboot ak yëpp sëñ Mbàkke Mbóoj lépp ci liggéey sëñ tubaa gis nga liggéey sëñ Tuubaa boo koy def dangay sonn rek mais loo defal sëriñ tubaa Serigne tubaa dalay lay fay feneen nga fay liggéey te doo ko sañ a bañ sëñ Mbàkke Mbóoj dafa sonn lool dafa sonnal sëñ Tuubaa lool bitim réew dañ fa ànd ci ay jotaay yu baree baree bari wër àdduna mu yor caméra di ma lépp ci sëriñ bi lu ñuy wane ci sëriñ bi rek ñu ànd ko kon ñu ngi koy ziar bu baax mu jàmbaare loolu mooy li ñu wax les hommes de l'ombre mm-hmm. ñoo ñi nga xamante ne bii li ñuy gis ñi ñëpp mm-hmm. ñoo ne ci gannaaw mm-hmm. kon sëñ mbàkkee ñu ngi lay ziar sëñ Xaamidu yow moom euh, sëñ euh, Ndaw dafa wax léegi say mbir <laughs> man dama koy confirmer rek tey ñu ngi lay seetaan ñu ngi lay bàyyi xel ndax émission da nga koy def télévision da ngay tàmbali émission doo am sikkim doo am ay faas mm. sa karaw ñuul nga koy def di ko def ba am sikkim di ko def di ko def ba am bijaaw mm-hmm. loolu mooy foofu lañ lay évaluer xam ni yow wat émission bi maanaam li sëñ Abla doon wax mm-hmm. ak matt la goo xam koy lang-langee mm-hmm. tëdd ci kaw di ko di ci tëdd ba ñëpp naan ba ñëpp xam ni lii kii kat matt gii kat euh, say mujj na ñëw kon moom émission bii mu yor c'est pas la première fois mu ñëw fi mais xam naa ni mu ngi ci yor mi ngi ko yore noo xamante ni bii euh, am naa yàqin ci ne dina fa dina ci sori. alhamdulilah yàlla na ko Sëñ Tuubaa defal. leneen li nag mooy li nga wax léegi ci ci Gabon. Mhm. Gabon man ba ma fa demee. ay li yoon kenn Sëñ Tuubaa ji. Mhm. Gabon laa ko gëmee. man Gabon laa xam ni dendandoo tollale Sëñ tubaa foofu la yem. ku dem Gabon xam ne Sëñ Tuubaa du moroomum kenn ku ko dendaloog kenn ku mënti doon yaa ngi koy nax anecdote bi mooy am na ci jotaay bi ñàkkul ku ci ku ko fekkee président bi fa nekk nii jël na avion jox ñu sëñ Bass Abdou Khadre moo dirigé délégation bi ak kilifa yu bari ñuy waajal màggalu Tuubaa bi ñu demee ba embarqué avion bi ñëw nañ ba avion baa nga nee. doomi Sénégal moo yor compagnie boobu nekk ci Afrique du Sud. avion baa nga nee ñu seen ñu jëm Mayumba ñun ñëpp ñu yor suñu carte d'embarquement pour tontu sa laaj. bi ñu ñëwee ba dugg toog di xaar pour ñu woon ñu dugg ci avion bi mu ñëw daal ñu ne ah du ngeen mën a dem de Mayumba lu tax du ngeen mën dem mu ni fa ngeen di wàcc di ci bànga maanaam temps bi neexul. et c'était en mille mhm. mille cent 2015 1895 2015 fa sëñ Touba newoon avion mënu faa wàcc ci Gabon ba tey ñu ni mu ni ñun dans l'aviation xamuñu quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-neuf pour cent de sécurité cent pour cent la ñu xam ñu ni ay la yowén mu ne du ngeen dem looloo tey demuñu Mayumba kon na ku ne jàngat 2015 ak 1895 nga bëgg a dem Mayumba mënoo faa dem kon mbooleem foo xamante ni bi dem nañ fa ci wax ba Gabon gis nañ fa ci jeexital loo xamante ni bii day firndeel cëng kenn ku Serigne Touba. bay di yéen a ma ko gën a xam yéen a koy wax saa su ne. xasida gi ma gën a fonk li rabbin xafuurin xat ma anniya zanba wa anni na fa fi bahri maawi mba ba ca jeexital ga raqibun atidun fil jazirati ma yumba laka shukru wa ridwaanu minni wa kon loolu wéetaay moom dong moom dong wéet lool nekk ci barab boobu boo fa demee tey dangay gis jeexital yi man damaa dégg Serigne Fallou Bousso Tamba ñu ngi koy ziar ba mu demee Gabon ak jafe-jafe yi mu def ba àgg Mayumba dem fekk ay jeexital yoo xamante ni bii lii wóor na ko ni Serigne Touba moo bindoon lee léegi nii sëñ bee bind lee te màndarga yaa ngi nii ñun ba dem fekk nañ taalibe Serigne Touba yi nekk bitim réew. def fa lu bari ci barab boobu muy loo xamante ni kenn ku nekk encore une fois mbooleem lu ñu def ci sëriñ bi wane ko mm. ci maayumba loolu dong la lu ñu dem dund ko la gis ko mm-hmm. ba mu jox ñu ab aal mm-hmm. ngeen seen nii garab yi ndox mi ku dégg sëñ Mbaye Guèye Sylla li muy waxe ci Gabon mm-hmm. taw yi mu fa taw litre ndox yi mu fa taw foofu laa leen di joxoñ ngeen dem fa pour ñëw rek ci lenn ci liggéeyal Serigne Touba ni taalibi sëriñ tubaa yi nekkee bitim réew li may wax ci Gabon ba ci kër Serigne Touba yi dëppook lii ngeen def muy kennal Serigne Touba kër ku ne am na waaye kër Serigne tubaa bitim réew nga dem Gabon fekk fa sañ sëñ Touba. dem Abidjan Côte d'Ivoire fekk fa kër sëñ Touba. Amérique ba dëkk yu mag yi bërki démb Russie. Russie magal tubaa dafa jot. yaakaar naa tontu naa ci Gabon de. parce que loolu rek laa ci mën a wax. loolu rek doy na. kennal ku dem Gabon xam ni sëñ Touba kenn la. yaakaar naa loolu mënuñu wax leneen. Mhm. bërki démb Russie dafa am. màggal Touba dafa jot may jokkoog moom euh, kenn ci mbokk taalibe yi xamal ma ni ma dañu doon màggal Touba taalibe yi ku ne yi doog a jógee bitim réew euh, Sénégal ñëw ga ñëw Russie mm-hmm. am ci ko am ci ñoo xam ne dañoo wàcc ci train bi génn nga xam ni Kremlin mooy fi nga xamante ne bii moo fa la président bu Russie nekk Poutine ñetti arrêt moo dox seen digganteeg foofu ñu génn rek gaa yi tatafu leen fi ngeen jëm. ñu ne ah dañuy màggali fekk na ñoom déggaguñu russe. ñu daal di woo mbokk taalibe jëwriñ ni ko ah dañoo jàpp gars yi de. lu ñu leen jàppee ñu ne ah dañoom dañoo ñëw rek gars gis leen jàpp leen. ñu woo koo xamante ni bii doo dégg na russe. ñu ko demal nga fexee tekki la ñuy wax. ngir ñu mën leen a bàyyi. ba ñu agsee ba ñu ñëwee daal di làkkanteeg waa ji ni ko ah ñun dañuy màggal mu luy màggal ci rus mu ni ko suñu suñu suñu suñu suñu yaakaar tey ëllëg laa ko mën a waxee dafa am bés muy màggal daal ñu ñu ko ubbil internet bës boobu àdduna si a ngi koy màggal ubbi ko nga xool mu ubbi internet gis Amérique di màggal Canada di màggal Japon di màggal mu ni waa ñu lu tax lu ñu màggal policier bi mu ni commandant mu ni ñun dañoo war a màggal dal di daal di joxe daal di joxe daal di joxe euh, ordre daal ni foofa ñu génne woon jëm ca màggal ga buñ fa kenn jàpp kenn fii ba suba fii ba suba bu fa jàpp kenn kon leneen ci sëriñ Bengo dem nañu itali wàcc ci kër kenn kër sëñ Tuubaa ji ñëw sonn lool ñëw daal di sonn di wut fu wéer sama mbagg ma dégg ci gaa yi ku ñu ci góor yàlla bi muy ñëw fii ma ni da ma daa yu defar góor yàlla mooy sëñ Mourtala bi muy ñëw fii ma ne ko sëñ Mourtala ñëw na fii ak suñu coolo bii ñëw na ba fii ñu ne ma ñëw na fi de kër googu bi ko sëriñ bi fàggoo bi ñu koy fàggu bis bi ñu ko fàggoo taalibe lañ ne sëriñ bi daal lii ak yàq la de xaalis bu bari bii mu dal ko di ko jënde kër kër rek dafa yàq ca ngoon nga am ku dugg ci tubaab yi ci lislaam ashadu an laa ilaha illa allah wa ashadu anna muhammad rasulullah sëñ Murtada li kii rek jaroon na ko kii rek jaroon na jënd kër gi kon kennal sëñ tubaa ngoog dem ba bitim réew di jëndi kër kennal sëriñ tubaa ngoog leneen li may tëjee maa ngi ziar baax sama rakk ji ab Jibril Fall da tudd sànq Clédor Diagne man damaa ñëw RTS Euh, ñëw rek tàmbali sama xëru murit nekk sesi ñoo fa génnandoo waaye li ma dal mooy damaa ñëw bés euh, ñu ñuy laaj xam nañu bari ñu siiw lool ci presse bi ñuy laaj ku nekk looy def looy spécialisé wu damay wax dégg na ñu may dégg sa spécialité lan la bon télé rajo ak presse écrite waaye lan ngay jël sport culture politique man de wallahi la xasim barke borom Touba dama ne mën mouridisme damay spécial ci mouridisme sëñ Touba loolu ba ma koy wax ak yëg-yëg la nii rek dama ko wax dama ko wax nii rek waaye nag la tax ma wax ko tayuma ko ndax ba ma gëstoo man euh, xëy na sax euh, saabu du fóot boppam waaye damaa xam ni loolu rek sëñ Touba la ndax doomi sëriñ Touba sëñ Abdou Lahad dama newoon tout tànk xiibon lool samay waajur yóbbu ma ca moom ka ma yóbbu woon sax sama tànt la rek mu dem daal di may nëbb ci mu ci ci ab garam boobam yóbbu ma ba ci sëñ ab laat ab ziar daldi di may génne daal di bi ñaanal ma sama doom ji bala mooy faatu sëñ ab laat teg ma fii daal may ñaanal te dama digga liggéey sëñ Tuubaa mu saadax ngay doon di nga di nga wér ndeysaan kon loolu man mënuma ci dara ma ko tey ndeysaan loolu moom moo na ci man ndeysaan kon loolu moo taxoon man it gars yi man lii laay spécialisé wu loolu nag calaan na ci RTS ndeysaan ñu koy bëgg moom laay def mhm. ñu koy bañ moom laay def mhm. fu ñu war a defee portrait jabadu sëñ Tuubaa naa ko def bu mhm. ñu war a dem màggal danaa fa dem danaa fa dem léegi nag jafe-jafe yi dee su ko wax nag jafe-jafe dégg kenn pistonné wuñu kenn joxuñu bras ba ñu dugg fa dañoo jàng fi ñu war a jànge ak saa yi ñëw def ni ñoom di góor góorlu ba dugg fa loolu nag lépp nag lii lépp taalibe sëñ tubaa la ñuy doon di ko liggéeyal bëgguñu leneen waaw dem nañ ba àgg sax ci bu ñu solee costume takk na la kara papillon cravate ñu niñu sëriñ bi kon sant rek kon ñu ngi sant bu baax Serigne Hamidoun eh, di sant bu baax a baax a baax xëy na jotaay bi eh, lañu naan eh, jotaayu murid la ndax yàlla xam na ni woow ma ni ma tem bi nangam la. déedéet. danga ma ne rek ñëwul soxal naa la. yaa Pape Diouri Fall surprise rek. ñu daal di ñëw <laughs> lii daal la ñuy yëg. la ñun lii ñuy dundal. dëgg la la lii moo ñuy dundal. dëgg la jërëjëf. jërëjëf sëñ Abibou Mbaye bu mbay bu RTS li mu wax nii moom lay liggéeyee mooy gëstu sëriñ bi di ci def ay portrait di ci def ay documentaire di def ay journal màggal te sëriñ bi jaral ko ko mooy suñu wëllu mhm. lu ndaw rek mhm. mhm. euh, dama gis gaa yu baax yi am lu ñu wax lu am solo ci wàllu mbindum sëriñ Touba ci lu ma bëgg a partagé ak yéen lim ay borom xam yu bëri ñu bind ñu ni ay ton ak ay kilo waaye ñoom ci luñ bind ci luñ bind alcool jigéen amour nangam nangam kon suñu waaji moom waaye léegi ma leen di jox ab bind benn xasida boo xamante ni ñëpp a ngi koy am dara ma gis ci loo xam yàlla bëgg naa ñu koy boole ci waxtaan wi xam nga sëriñ bi daajal jël wa la xalaa xuluqin azimin tëddee ko ko loolu ñëpp xam nañ ko waaye xam nga lu ma jaaxal sëñ gànna ni sëñ bi tàmbalee araful waaw xam nga da ko ubbee xasida gi waaye ni muy tàmbalee waaw di jeexalee waaw wasaxtu bi rabbil xarsi si juuri wal xaf maxal Moustapha wallaahu lii muxdin saf wi mu dem ca aruumu noonu lay demee alif lay tàmbalee alif lay lay lay tëye waaw loolu ñun dañoo jàngal ci école riim dañuy riim boroom xam-xam yëpp dañuy riim ci jeexal bi rek loolu la ñuy wax acrostiche acrostiche maanaam baatu Muhammadu nga génn ci xasida sëñ bi nag li ma jaaxal ma bëgg koo partagé génn mooy gars yi li ñu xam mooy di riim muy jeex mais sëñ bi da koy tàmbalee di ko jeexale ba mu xaadimaat jeex dëgg la <laughs> jazaakallaahu jërëjëf sëñ Abibu ñu gërëm ko bu baax a baax eh, ni ko joxal ma Pape Djibril eh, su ko defee eh, sama sama ñaari sama sama ñaari gaay yi sëñ Djibril tey ah, sëñ laat bu sa maram ak sëñ Omar Bamba ak sëñ Jili ñang kennal ak sëñ Ceddo dama gis tubaarkàlla sëñ Abibu yóbbu leen fu sori xam nga ñoom dañoo nekk di défendre liggéey bi ci xam-xam waaye murite gi gina ci biir moo këpp looloo waral tey sax ñu invité leen boole leen ci invité d'honneur yi xam naa danañ ci ñëw ca kanam sax waaye fi sëñ Abibu daanele falaay laay sañ sëñ Pape Djibril sëñ Pape Djibril dafay mel ni moom ba muy dem dafa waxoon ne may solution mais booba nit ñi mënuñu koon comprendre li fekk delsiwul ndax bambaane maa ngi dama dalu islaam sëf leen ma jóor leen ma danaa ko jaamu loolu responsabilité la loolu responsabilité la mooy li ngeen di problème bi ngeen am nii su ma dellusee lay jeex su ma dellusee ku ma ñam danga may jàllale waaye dooma yàbbi bentu wa tubtu wa xasaltu xasla fali xalaawatan tafooqal xasla lim fi fekk ak lim dajj ak lim indi kon mooy sëñ Tuubaa la solution lan mooy solution bi asalaamaaleykum Euh, maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di sant sunu borom bu baax a baax si euh, ci coobareem ñu teew si jotaay bi mu nekk jotaayu ngëneel jotaayu cant ak jotaayu yokkute ci zahir ak ci baatin man sax dama tànnoon rek ñaan naa ko sañu Amidun moo ma ko mayul waaye dama tànnoon rek toog di déglu <laughs> ndax euh, sunu borom dafa dogal su may kilifa rek laa fekk. Mhm. si côté yëpp. Hmm, ndeysaan. Euh, di njëkkee koo xamante ni sunu borom dafa dogal. Mhm. sunu borom boole maag moom. Mhm. daanaka léegi mu def plus de quinze ans. muy Serigne Omar Bamba nekk si jotaay bi. dama koy ton yenn saa yi ne ko ci moom laa jànge contradiction hmm. waaw mu nàmpatal ma ci bu baax am générosité ba tey ji bàyyiwul nag waaw ba bërki démb rek woo na ma ne ma nangam ak nàngam ak nangam. Mm-hmm. bu ko defeeti nii defee ko nii. Mm-hmm. barki démb rek moo si mujj. Mm-hmm. kon sëñ Omar euh, ñoo ngi lay ñaanal baax suñu boroom yàggal la fi. amiin amiin. Ceddo Murit Saadix tamit kazalika noonu la mel ci man. sëñ Abdou Lahad Bousso. Euh, sëñ Jibril Ndaw moom tamit euh, jokkoon nañ fi une fois wala deux fois mu am générosité bu mag moom tamit waaye ma yàgg ko suivre ci ay documentaire ma gis yitte bi mu ciy def. ak euh, Serigne Ndiaga sekk moom wax na cofeel goo xamante ni am na ko suñun waaye boobu it lañu am ci moom hmm. abi bu Mbay moom dama daan toog fële ca caajaay boobu maa ngi jàng primaire waaw Buuba Nduur daf may tooñ souvent ne foo dem tudd fa caajaay eh, xam naa dama leen yéene yiw rek moo tax hmm, hmm, euh, waaye euh, dama daan toog di ko seetaan moom ak xaalisek waaw ma leen di ñeeñee gu doy waar waaw ndax tawféex bi ma gisoon ñu am di liggéeyal sëriñ Touba ci niveau boobu. Mm-hmm. boobu mosuma xalaat sax ne dinaa dem ba nekk journaliste. mosuma mm-hmm. ko xalaat. waaye daal yéene woon naa ko. Mm-hmm. bëggoon naa ko it. waaye occasion boobu moo tax ba ba ñëw fekk ko RTS. mu téye sama loxo nag wax dëgg moom ak ku ñuy wax sëñ Layra Diop nekk États-Unis ñoom ñoo doon ñu. ñoo doon ma corrigeel su may papier. wax na wax naa ne fu mu gis ñuy wax ci sëñ Touba wala njabootam dina dem defi portrait bi. waaye ba ma fa ñëwee tàmbali dafa bàyyi woon loolu jox ma ko. di ma ci tàggat nag di ma ci encadré. ngir ma am goût ci recherche. donc sëñ Abibu tamit ameel nañ la njukkal ameel nañ la àllarba it. xam naa ñëwagul waaye ameel nañ la ko. donc di gërëm kilifa yi nga xamante ni ñoom lañ fekk ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak santam. Mhm. sëriñ Abdou Khadre euh, moom tamit majalis moom suma xarit la suma wëllëre la moom keroog dama egg Conakry ma ne ko bi may wàcc ci avion bi dama wàcc rek sama xel dem ci Serigne Touba moom laa njëkk a xalaat wallahi lazim xam naa tawféex bi ma ci am ndax bi ma nekkee ci avion bi dem wakkaana xaqan lay jàng moom mi daal di may wax ñaan gi sëriñ bi ñaanoon bi mu agsee Conakry daanaka Conakry la ma fa nekk yëpp sëriñ bi laay teewlu <laughs> waaw ndax xam euh, Euh, njàmbaarteem ak euh, fitam ak euh, doxalante bi nga xam doxalante woon na ko ak sunu borom ngir li mu namm liggéeyal yonent bi salallaahu alayhi wa di gërëm bu baax nag sëriñ Gànna Masere ak sëriñ Abdoulaye Diop Bichri ñoom bokk ak ñoom jotaay rek tawféex la wax dëgg ndax jotaayu ngëneel la <laughs> yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko wax fépp fu ñuy tudd gaa yu baax yi sunu borom daf fay wàcce yërmandeem kon fépp fu ngeen nekk da di jox opportunité ña fa nekk ngir sunu borom wàcc ci ñoom yërmande ku lay defal loolu nag wax dëgg fay ko dina jafe donc di gërëm sëñ Cheikh Diop Mbaye bu baax ci taxawaayam di gërëm ñëpp ñu ci bëri xam naa leen xàmme naa leen tamit question bi nga laaj nag xam naa ne ñemewu ma cee tontu ndax ay borom xam fi nekk <laughs> li may wax rek mooy màggalu Tuubaa gi ñu sëñ mun euh, Muntaxa Bachir di ñaan sunu borom mu yàggal ko fi wéral ko projet yi mu am yépp sunu borom defal ko ci tawféex damay wax ne dafa indi réponse civilisationnelle te ci ci ci ci Serigne Touba la ko jëlee. ndax boo xoolee tey jii ba li ñu sonal ci guddi yi ñu toll. ba débat bi nga xamante ni moom moo def fi mu ne nii euh, moo moo sonal Sénégal. mooy ndax stratégie bi ñu jëloon ci xeex Covid bi ndax baax na wala baaxul. ñu ci bëri ne dañoo roy rek tubaab yi. bu ñu nee confinement ñu ne confinement bu ñu nee état d'urgence ñu ne état d'urgence. bu ñu nee nangam ba ba ci distanciation sociale bi ñu doon wax. ñun dañu wax ne loolu dëppoowul ak sunu aada ak cosaan. ndax distanciation sociale soo ko waxee ay tubaab mën naa bañ a sonn ci ñoom mën nañoo bañ a sonn ndax tàmmuñu jaxasoo. bu métti ndax individualisme à l'état pur moom moo fa am. waaye bu fekkee ne da nga ñëw fii nga xamante nii daanaka lépp dañ koy bokk. nga ne leen taqaloo leen bu leen jegante ñu ne est-ce que kon concept bi bi muy ñëw ñun waruñu ko woon a xalaat ba def ci li nga xamante ni moom moo dëppoo ñun ak suñu dund loolu la sëñ taxaa def ak ngëm gu mat sëkk ak taxawaay bu mat sëkk daal ne stratégie bii ngeen jël ñun jàpp ñu ne boobu moo gën te jamono bu nekk nag sauver na l'essentiel jamono bu nekk bi ñu eggee ci tëj jàkka yi gis nga na mu doxale mm-hmm. bi ñu eggee ci màggal gi ak tout sa que cela représente gis nga it na nga xamante ni noonu la ci taxawee mm-hmm. beneen euh, solution beneen kii bi nga xamante ni indi na ko ci approche bi mm-hmm. ci biir màggal gi ñu waxtaan ci lu bari bokk na ci université bi nga xamante ni moom moo ngi koy moo ngi koy moo ngi koy moo ngi koy taxawal fi mu ne ndax loolu dina dina dafay expliquer jotaay bi ndax jotaay bi réponse la tamit ci difficulté bi ñu am léegi di ci di waxtaan ndax les technologie de l'information et de la communication ku ku gars yi xam lool moom moo ko bind muy Dominique Volton boroom xam-xam la dafa wax ne léegi technologie de l'information dafa wax dafa bind benn livre tudde ko McLuhan ne répond plus McLuhan moom mooy chercheur canadien boobu nga xamante ni dafa waxoon ne léegi comme technologie de l'information et de la communication am na àdduna mhm. bi dafay nekk village planétaire léegi daal lu xewandoo ñëpp ko yëgandoo ñëpp dinañ gën a jëflante dinañ gën a saafonte Dominique Vulton toogaat Volton toogaat lu yàgg bind beneen téere daal di bind McLuhan ne répond plus mhm. ñu ne ko lan moo tax nga bind téere bi mu ne ndax bi technologie yi bare dafa gis ne nit ñi sax léegi dinañ toog ci jotaay man ak sëñ Habib bu mën nañoo joxante rendez bu dem ci restaurant ba waaye bu ñu eggee ci restaurant ba day nekk ci téléphone am ma nekk sama téléphone ba du waxtaan donc instance de discussion yi ak de dialogue yi dañuy manqué lu bari loolu nag su amee yéen moom ngeen recréer nii loolu tamit beneen réponse la boo xamante ni cela veut dire que am nañ nécessité di waxtaane li nga xamante ni moom la ñu am te Serigne Touba nekk ci koo xamante ni ni nga ko waxee wax dëgg mën naa defar suñuy guddi ak suñuy bëccëg defar suñu tey ak suñu ëllëg ci lépp li nga xamante ni indi na ko ci kaw suuf te sunu borom subhaanahu wa taala daal di ko koy joxoon ngir mu ñëw liggéey ko ci par rapport ak thème bi muy kenn du seriñ Touba sëñ Cheikh Mbacke euh, Gaynde Fatma da daan tukki lu bari tukki ba ñëw ci benn tukkeem sëñ Fallou daal ne ko Ahmadou xanaa sunu waa ji de gisoo fenn ku mel ni moom. sëñ Cheikh Mbacke Gaynde ma ne ko Mbacke gisuma fenn ku mel ni yow. gisuma fenn ku yow. sëñ Fallou da ne ko. Ahmadou xanaa sunu waa ji de gisoo fenn ku mel ni moom ndax tukki yi bari na. Mhm. mu ne ko waaw Mbacke gisuñu fenn ku mel ni yow. mooy mooy lii sëñ Gana doon wax ne hors série la. <laughs> wala hors classe <laughs> waaw donc loolu nekk damay dañ taw feex boo xamante ni. Mhm. Euh, sunu borom defal nañu ko. Mhm. bu fekkee nag sunu jëmm yi nga xamante ni euh, il faut que ñu taxaw ci. Mhm. xam kenn ku ci nekk da ngay xam sa bopp. xam li la sunu borom defal. te abreuvoir bi ñu am mooy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. dëgg la sunu borom seede na ne keroog bi ma demee bi ma njëkkee wàcc Maroc. dama ne du ma fi génn tey te ziyaari wu ma Cheikh Ahmed Tidiane Chérif te Serigne Touba moo tax ma ziyaari ko keroog ba ma demee ca barab ba sindi di laa fa jàng te moom mii moo ñu bëggloo nitu yàlla yi moom moo ñu bëggloo lu baax moom moo ñu tamit bëgguloo sunu réew bëgguloo ñu suñu continent waaye moo taxit ñu bëgg am njëriñ ci kaw suuf l'ambition d'être utile ndax pour man ci ambition la yem te li ñuy waxtaane nii yëpp dafay dellu si sur le sens de la commémoration mmh. fàttaliku ban njëriñ la am ak ban impact la mën a am ci sunu quotidien ba dimbali ñu ci ñaar bala may ñëw ci ñaar yi damay wax ci li ma buggoon wax léegi te Cheikh Samba Diarra Mbaye bi sëñ Njaga doon tudd léegi man moo ma ci dimbali ndax xëy na li tax ñu woo ñu fii tey feeñ nañu sunu borom defal nañu tawféex ba ñu feeñ ci liggéeyu Serigne Touba waaye ñun ñoo ciy defaroo ndax Cheikh Samba Diarra dafa wax ne bu leen ma yéem yéem leen ko moom du man maay wax moom mooy kii di wax waxande laa wuñ tëj wax bu buñ ma tëjee may làmmiñam mm-hmm. donc ku nekk nag da ngay xam sa bopp mm-hmm. parce que yow ku nekk boo wéeteeg sa bopp nga déglu sa bopp mm-hmm. di nga xam li nga mën ak li nga mënul say force ak say faiblesse ak say impair ak sa matadi nga gis li ngay wax nuru loo xamante ni dafay am impacte bu positif mel ni day defare mel ni am na leer gu ci nekk loolu da ngay xam ne du yow dafay da ngay xam ne du yow léegi na kam doon dangay am ak moom relation boo xamante ni mooy cant ak njukkal delloo njukkal mm-hmm. ñaar yi nga xamante ni jàpp naa ne commémoration daf ñu ci dimbali te muy dellu ci projet de société bu Serigne Touba bu fekkee ne ci solution la ñuy wax mm-hmm. mooy daf ñuy permettre ñu régler ñaar yoo xamante ni bokk na ci li gën a sonal mm-hmm. pénc mi wala espace public mooy la problématique du vivre ensemble nan la ñuy def ba wuute ay xalaat wuute sax ay pas-pasu diine wuute ngëm te mën a seq jotaay ba sauver l'essentiel loolu sëriñ bi daf ñu ci dimbali jàngal ñu ci lu bari euh, sëñ Bachirou indi na ko fu bari ci Minanu Baaxil Xadim egg na sax wax ne kilifay tubaab yi dem na ba bu daan tukki sëriñ bi lay dénk waa këram ci koo xamante ni dañu wax ne dafa nekk résidence surveillée mais mais li nga xamante ni moom moo li nga xamante ni moom moo doy nga xamante ni moom moo doy foofu mooy mooy moom état d'esprit am lu yéeme la te lu mat a jàngale la. mooy su nit nekkee fii ci kaw suuf nekk ci ay xat-xat rek. ñu koy bundu ci lieu de. travail am ak yooyu moo sëñ Abibu mi buntu RTS la ma njëkk wax ne mhm. an wa duru min rahman buntu RTS la ma ko njëkk a waxee mhm. fekk boobu ñu taxaw di waxtaan mitit mhm. ak jamono bi ni mu tëddee waaye fi ne da ngay gis ku nekk ci liggéeyukaayam nee na yee dañ ko fay bundu dootul may kenn jàmm ku nekk mu njortal la lu ñaaw ba mu yàq sa digganteek nit ñi donc vivre ensemble bi yow yaa ngi koy yàq wala nga nekk ak nit ci espace jàpp ne am na ci loo xamante ni yéenewu la ko wala bëggu la wala jàpp nga ne mën na laa lor. Mhm. ba tax nga def ko noonu sëriñ bi moo ñu indil ndimbal ci loolu yëpp. Mhm. waaw ba nga xamante ni moom ci boppam li mu lay jàngal mooy jamono bu nekk mhm. nan ngay def bay jëriñ nit ki te doo ko lor nan ngay def même dans une relation ba nga nekk victime bi mu gënal la nga nekk bourreau bi leneen état d'esprit bi ma doon wax mooy lu mu nekk ci xat-xati mosul jàppee boppam prisonnier <laughs> danaan sama tukki bi rek. waaw alors que ñële ñoo ngi jàppoon ne dafa nekk dans les liens de la détention donc nan la maintenir wala nan la amee taw feex boobu nga xamante ni. ba ci fi ko téyee foofu la gën a amee liberté ba gën a wéyal liggéeyam. loolu tamit nekk jàngat bu doy waar leneen li mooy problématique du vivre ensemble mën nañ ci wax ba suba li tax ma koy waxtaane mooy dafa yëngal. lu baax a baax a baax consensus yi ñuy am yenn saa yi ci biir pénc mi beneen bi mooy la crise identitaire mooy ni ñu nit ki mën a réere boppam ba daanu ci li Cheikh Hamidou Kane tudde l'aventure ambiguë mooy nekkatoo yàpp nekkatoo jën li nga nekkoon fondamentalement bàyyi nga ko li nga bëgg doon mënoo ko doon waaw li nga mën a doon mënoo ko doon sëriñ bi nag daf ñuy dimbali ci jamono bu nekk mu lay fàttali. yow Jibril Fall yow yaay kan. fan nga war a teg sa tànk fan nga warul teg sa tànk lan nga war a def lan moo yell ci yow lan moo yellul ci yow. jamono bu nekk. mu nekk épée de Damoclès. tawfeex boobu la nekk ci ñun. donc li ma bëgg a wax rek mooy. yitte bi nga xamante ni am nañ ko tey. ndax moom yitte. E, effectivement rabbi asxaabaka bil himmati. Mm-hmm. moom yitte rek mooy mooy fondement mbiram. waaw itte ju mat sëkk. dëgg la léegi nag damay wax ne himma boobu. xit ma rek moo koy moo koy conforté waaye da nga koy teg nag ci pas-pas bu sell après nga am pas pastef bu dëgër dëgg la mbiru sëñ Touba loolu la te loolu buñ ci eggoon ñu waxtaanee Babul Mouridine bi nga xamante nii nag man suma waa kër suma njaboot ak yëpp foofu la ñu bokk donc du ma jeexal nag te te santuma mm. euh, góor gi nga xamante ni man moo ma yar moom lañ ma tuddee muy sama maam. nekkoon jàmbaar nekkoon Baye fal xam naa waa jaajaa yi ñuy seetaan yëpp dinañ ko seede. nekkoon nit ku baax lépp mu jox ko Serigne Touba wax na ma ne bi mu demee ci toju xeer bu njëkk ba. ndoka nee na ma bi mu ñib def na fa ñetti weer. Mhm. changé wul yére. mais nee na ma bi mu ñibbisee nee na ma mag ñi mu fekkoon caajaay bi mu dellusee nga xam mënuñu woon a dem ndax mage mm-hmm. yére yi dañ ko xooj di ko naan mm-hmm. <laughs> ndeysaan waaw yére yi mu yóbbu woon ndeysaan waaw wax na ma it wax na ma it yi Chérif Assane njëkk a am Kawsara nee na ma moom moo ko yenoo caajaay yóbbul ko ko Kawsara kon tamit li sëñ am abi bu doon wax amuñu pexe lii mooy sunu domaine de définition ci lañ ñaan yàlla dund ci lañ ñaan yàlla dee ndax sëñ Muntaxa dafa wax lu am solo pour dellusi ci thème débat bi dafa wax fii ci Masalik bi projet bi boobu jeexagul mu wax ne keroog sax wax na ko ba tuur ay xéwal mu wax ne sëriñ bi fi ko sunu borom jaarale ba mu agsi ci moom moo tax muy kenn loolu nag dinaa ko wax waaye du yàq dara noonu la ko waxee te loolu li tax mu wax ko mooy boo amee perception boobu kenn ku ci nekk la mu am di ko ko yéene te bu aju woon ci yow it nga yokk ko dëgg la sëñ Habib wax na ne moom Gabon la gëme ne Sëriñ kenn la mhm. waaye man keroog ba may dem sar saara mu ngiro ngiro bu métti lu ne daj naa ko fa ci laa xam ne daal kenn du moom kenn du moom dëgg la donc di leen gërëm bu baax di leen sant jërëjëf di ñaan yàlla suñu borom mu dimbali ñu amiin amiin amiin amiin rus ñu it amiin amiin bàyyil ñu fi Cheikh Mouhamadul Mountakha Bachir amiin amiin ba mu yàgg lool ba li nga xamante ni naal na ko mm. te mu am solo lool ndax dafa wax ne dafa bëgg université bii bu pare mm-hmm. fi ak trois cent cinquante années mm-hmm. mu ne imam malik shafii ahmad ibnu hanbal ak abu hanifa bu ñu leen tuddee ñu am seen seex ci Touba. ambition bu rëy la waaye ambition boobu da koo donn ca maamam dëgg la soxna jaara ba mu ganee àdduna daa di ñu koy waaj yóbbu kër sëñ soxna euh, sëñ Mamour Anta Sali la mu wax dafa ambition foofu la yam dafa wax ne jigéen ñi bind les plus belle pages de l'histoire de l'islam su ma bokkoon ak moom boroom kër dinaa nekk dans les dispositions compétir loyalement maanaam du ñu ma gën doom mhm. waaw te gis nga xoolal distance bi géographique mhm. xoolal distance bi ci mhm. soriwaay ci wàllu dëkk ak dëkk mais xoolal ci jamono ni ñu soree temps ak espace mu am ambition boobu donc sëñ Touba tamit ambition la def ci ñun donc te ambition boobu fi mu war a feeñ mooy que ñun ñëpp ñu góorgóorlu euh, ba Sénégal ak Afrique jouer rôle bi mu war a jouer ci àdduna ndax moom tamit damay wax keroog xale yi ci université bi ñuy célébrer Thomas Sankara ma ne leen Cheikh Ahmadou Bamba moom mooy le précurseur mhm. moom mooy le franc tireur mhm. par rapport ak ñoom Thomas Sankara moom moo wane yoon mhm. te euh, sëñ Abdoulaye Diop Bichri wax na ko foofu laay daaneele opposé wul violence ak non violence ci ci njàngaleem dafa opposé violence daal ne lenn rek moo mën a transformer mbir moomu ba mu nekk yiw ak tawféex mooy xam-xam ak ragal yàlla dëgg la euh, macha allah Pape Djibril euh, liñ la séentoo woon ci ñëw gi dafay mel ni dafay mel ni yegsi nga ci ndax euh, euh, fi nga daaneele fi la sëñ bu daaneele damay faral di dégg la grand conférencier El Hadj Mbacké Faye muy faral di wax ne tubaab bi li muy jàngal gaa yi day jël kaasub ndox toqal ci toq deret boo gisee day changé couleur bi waaye neen na sëriñ bi lijjanti na njëkkanteek moom kaas ba booy naan doo ko yëg tooke jooju la sëriñ bi di dindi ci biir ba tax mu désincomplexe ngaa yi nga xam ne amuñu benn complexe ci sëriñ bi loolu nag mooy wane liggéey bi ñi ngi ñi ngi sant bu baax a baax ci seen intervention yu am solo yooyu ñi ngi siyaare sëñ Abdoulaye Tage ak soxna ajaratu moom i Kebe mi ngi feeñal mbégteem ak yéeneem euh, ci jataay bi ak taxawaay bi ak pas-pas bi ñu ngi koy siyaare baax di ko ñaanal yàlla defal ko tawféex sàmm ko euh, ñi ngi siyaare baax xam ngeen ne tey invité d'honneur yi nga xam ñoom lañ amoon ci plateau bi wax naa ko léegi ci bi muy tàmbali muy Serigne Mamor Mbacke moom Serigne Abibou moom sëñ Manoumbe bi jotaay bi tàmbalee rek la wax ne man de yëkkati naa million teg te loolu lépp sëñ Touba rek a tax mu def ko ñu di ko sant bu baax a baax di ko ñaanal. su dee seetaan beneen télé sax seen sëñ Abdoulaye Diop Bichri wala sëñ gànn wala El Hadj Cheikh Diop Mbaye daf may woone ma looy def ma ne ko maa ngi sama kër mu ne ma ñëwal jël nangam dem yóbbu leen te loolu miraaran la koy def des fois mu ne ma bul bul sax bul sax yegg ci dima tudd muy joxe ba yulli poset bi ne ma damay ñibbi mënatuma fee toog waaw boole koog jooyu métti mi ngi ànd ak magam Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Abibu moom sëñ ma numbe ànd ak sëñ Modou Mbacke déndéey moom Arabie Saoudite la nekkoon di borom xam-xam ñëw ci réew mi jàng li ñëpp jàng waaye daf ñu wax ne ñun ay murit lañu sëñ Tubaa defoon ñun waa Kasim bu Ndumbe moo tax sañu ñoo feeñal dara ñi ngi am mbégte bu baax a baax ci seen teewaay ñu ngi siyaaree sëñ ji li ña ngi kennal sëñ Tubaa yaakaar naa ne li may wax ñëpp ci am waaye problème bi mooy njëkkante bi boo nee kennal ñu ne la xanaa sëñ Jili Ñang la loolu nag moom lu garaaw la lu mat a lijjanti moom waaye daf maa leeral lu sëñ Tuubaa wax maamam sëñ Afiye Ñang ndax maamam sëñ Afiye ak sa sa Cheikh Amadou Fadal ñoo bokk soxna Awa Bousso waaye sëñ Tuubaa moo ko ne woon Afiye lan nga bëgg mu ne ko xanaa di la gën a bëgg di la bëgg rek bëgguma neen man moo tax nee na ma ñun suñu bëgg dañu ci demaaleel géew faaw nun sëñ bi rek lañ mën a bëgg fi mu toog nii dem na fi ay yooni yoonu yoon miraaran boo ko xoolee xam ne murid la bi ma ko njëkkee gis ci baas may waxtaani sëriñ bi dana ñokkee dugg ci otom summi lim sol ñëw jox ma dem toogaat moom noonu lay def ci sëñ Tuubaa ba keroog muy jeex loolu tax ñu ne ko jataay bii sa jataay lay doon kon nag ñu ngi lay ziyaara bu baax sëñ jiili mu ngi ànd ak euh, euh, euh, sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Baara Cheikh Amadou Fadal Mbacké Eh, moom itam di ku baax di koo xam ne léppam la ñu di ko ziyaare baax a baax ñu ngi nuyu baax sëñ Xaadim Taal original moom itam di koo xam ne nii eh, ku bëgg sëñ Tuubaa la te mën a jàpp ci liggéey bi yabal na sëñ Fallu mi ngi nii toog jàkkaarloog ñun ci jataay bi ndax dama xam ne bugguma feeñ ci biir jataay bi ñuy ziyaare sëñ Ibrahima Ndiaye mi nga xam ne ni mooy transitaire la di ku baax ku bëgg sëriñ bi moom itam di taxaw ci émission bi eh, di nuyu bu baax a baax a baax itam sëñ Moustapha Fall Murid ñu ngi koy ziare bu baax a baax di nuyu suñu avocat maître Bay di Mbay ne fii ci HLM di suñu xarit yabal na rakkam soxna Adama mi ngi nii toog dafa ma ne man mënumaa feeñ ci mel nii di koo xam ne kilifa gu mag la waaye bëgg Serigne Touba rek ko jaral euh, yitte ju bare bare ji nga xam ne def na ko ci ñu ngi nuyu baax Pierre Moussa Thiaw di takk der moom it ndeytaan di koo xam ne wéradi yaram moo tax ñëwul waaye ñu ngi koy ñaanal yàlla yëkkati ko defal ko tawféex euh, bala maa ñëw ci li nga xam ne ni mooy euh, sëñ gànn damay ñëw ci sponsor yi nga xam ne ñoom la ñu àndal ci jataay bi Euh, wax naa léegi promobilière bi nga xam ne ni ñoom ñu ngi liggéey ci wàllu batiment ak euh, villa ak li nga xam ne ni mooy euh, mooy wàllum terrain kër ak yi nga xam ne ni mooy jàppandi ci wàllu dëkkuwaay Eh, ñu di leen sant bu baax di leen gërëm ci jàpp gi ñu jàpp ci liggéey bi di ko tekki loxol sëñ alaaji fay moom alaaji mbàkki yu fay ak grand mbay sa ñang ak mboolem ñu ñu àndal ci biir promobilière di baax waa promobile ñëw nañ léegi ñoom itamit ni ma ko waxee léegi may nañ fi ay ay ay ay crédit recharge yoo xam incha allah danañ ci ñëw ci yaatal di leen gërëm ci seen taxawaay bu baax a baax ndax piis bi yaatu na law na waaye nag ñi nañ ci gën a def ay plateau ngir wan leen ay bànqaasam fan la nekk ci réew mi eh, tudd naa léegi original sëñ xaadim taal xam ngeen ne lépp ci ci ci biir télévision bi buñ ko nee dañ koy def ngir sëñ Touba mu ne bokk naa bind leen ma lu ñuy laaj rek nag ma ko jox ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm euh, di euh, sant bu baax waa Café Touba daat ñoom ñoo fi indi café yi nga xam ne ni niñ koy defaree sell na te méngoo nag niñ ko murit yi bëggee kon nag noo ngi leen di gërëm ñoom itam ci teew gi ñu teew ci jataay bi sëñ Daawuda ak sëñ Basiiru Mbay ak sëñ Abdul Ahad Lay Daaru Salaam Déco soxna Daba Mbàkke di sëtub maam Cheikh di koo xam lépp lu jëm ci wàllu décoration moom loolu la ko suñu borom cëralee waaye nag ku bokk Daaru Salaam di décorer moom wàcc na la ñuy wax ndax yaakaar naa am na loo xam ne sëñ Tuubaa da koo mayoon maam Cheikh Anta maamam soxna Daba ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm madame Diouf ñoom it plateau bu ñuy def dañuy ñëw àndandoog ñun ndox mi woyof na waaye neex na lool te neex a jàllale ñu ngi leen di sant di leen gërëm euh, central équipement électroménagère nga xam ne ñoom itam lépp lu jëm ci wàllu cuisine ci professionnalisme ñoom it dañ liggéey liggéey bu am solo ñëw na ñoom itam tàbb ci biir liggéey bi ñu di leen gërëm di leen jaajëfeel Jamil Karo Jamil euh, Deko ñoom itam di ñoo xam ne nii dañuy yëngu ci wàllu meuble di ñoo xam ñu am solo lañ jàpp nañ ci émission bi waaye di jàpp itam non seulement ci télévision Touba TV mboolem ku nekk foofee ca Jamil Deko ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant di santaale euh, waa store téléphone téléphone yi ngeen gis ci kanam ñoom ñoo ko fi indi euh, gis naa léegi sama xarit sëñ Mourtala ñoom tamit di ñoo xam ne nii téléphone bi yim làmboo ci biir Euh, yu ama am solo la yoo xam ne nii bala nga koo xam rek da nga ko découvrir ndax bokkul ak téléphone yi ñuy jaay euh, njaayee ni ñoom xeetu sëñ ma Massamba Ndiaye yi ñu yor bokkul ak ñoom yi ñuy jaay ñu ngi leen di gërëm bu baax ñoom itam seen taxawaay ci émission bi euh, sëñ Xaadim Lo établissement Touba Nawel ñu di ko gërëm bu baax a baax moom itam ci jàpp gi mu jàpp ci télévision tubaa TV di ko ñaanal yàlla defal ko euh, tawféex moom itam yàlla suturaal leen yëkkati li nga xam ne ni mooy entreprise kon sëñ Xaadim Lo di ko sant bu baax a baax muy établissement Touba Nawel euh, di gërëm bu baax a baax a baax a baax ndindi kër gala kër galas Euh, soxna Mariane Mbendi Mbendi ñu di ko gërëm bu baax a baax moom tamit li bépp tissu boo soxla ak façon bu mën a doon moo xam bu tàngoor moo xam bu sedd boo fa demee di ko fa fekk ñu di ko gërëm moom itam ci taxawaayam ci télévision euh, Touba TV ñoom ñëpp nag ñi ngi lëkkaloo ci ginnaaw euh, soxna Daba Mbacke di satub maam Cheikh Anta borom gaawaan ñi ngi gërëm soxna maam Fati Mbacke Ibra soxna maam Fati dafay defar ay xeeti délicieux lañ koy waxee yu neex yooyu nga xam ne ni am na ay neem am na fataaya am na jus yoo xam ne jus naturel yu am solo yoo xam ne ni njaayeen ni dañ ko mën a jëfandikoo euh, madame Mbacke moom itam euh, ñëw na fi indi ay teraangaam ne ma lu ñuy defal sëñ Touba dama ci bokk bokk ci li nga xam mooy émission bi euh, numéro téléphone am mooy 77 469 20 67 77 469 ñu di ko gërëm bu baax ne moom itam ni ma ko waxee léegi waxtu wu nekk mi nga ànd ak ñun ci émission yi ci sañse yi numéro téléphone am di 77 096 17 16 097 ko gërëm di ziyaare baax a baax di ci sof suñu kàddu sëñ Fallou Sey Lambaye Couture moom itam xam ngeen ni waxtu wu nekk day ànd ak ñun ci damay faral di ko wax ci émission yu bari damay bàyyi ba émission def lu mat une heure de temps ma ne ko wutal ma lu ma sol maa ngi ñëw su mu ñëwee lu mu gaaw gaaw dana ma topp tool loo xam dana ah, méngoo ak jataay bi ñu di ko gërëm muy sunu xarit nag personnellement ñu di ko ñaanal bu baax yàlla defal ko tawfiq sëñ Moustapha Fall Mourid Sadikh ngi topp jataay bi nee na damay ñëw waaye du ma bokk ci biir jataay bi dinaa ñëw rek toog ci ginnaaw ñu di ko ziyaare bu baax a baax di ko gërëm di gërëm bu baax a baax sunu mbokk yi nga xam ñëw nañ sëñ Mamadou Gueye mi nga xam ne moo ànd ak uh, ki nga xam ne ni mooy uh, sëñ Gana Messere maxtaar moom it bokk ci jàmbaar yi sëriñ bi uh, di gërëm bu baax a baax waa kenn du Serigne Touba góor yàlla yi ngeen gis ci ginnaaw ak ñi ne ci biir ñoom ñëpp ñoo liggéey seen bopp commission organisation bi bu ñu leen gërëmee teg ko ci loxol soxna na Dimme ak soxna Nogay Ñang dafay mel ni dana yóbbaale ñëpp ñu di ko ji leen gërëm ci seen organisation finance soxna Mambeylo ak soxna Bintu Jaxate ñu di leen gërëm ñoom itam ci taxawaay bi ñu am ci liggéey bi euh, ak euh, euh, ni ñu ko coordonné mu rafet di gërëm bu baax soxna Sugaawaan Diop moom moo jiite commission sociale ànd ko soxna soxna maam Ami Mbacke Baara ñu di ko gërëm bu baax a baax moom itam ci taxawaayam communication sëñ Bàcci Fay soxna Njaay Si bi ma ngi ca Belgique ñu di ko gërëm bu baax a baax moom soxna Saalihaat moom sëriñ Saali ñu di leen sant ñoom itam ci seen coordination bu am solo sëñ euh, sëñ Ibrahima Koundoul ma nga ne la toog sëñ Ibrahima sëñ Touba dafa def ci moom lu kéemaane karo bi mu génnee def teejam alaaji Mbàkke dafa ma wax ne na ngeen koy invité lu bari ndax moom jànkatu xasaayit la def teejam ci sëñ Touba ba pare di médecin di kilifa nag ba pare bu toogoon fii daf may wax ne su ma demoon ba doon président de la république sax du ma di dem ci baas yi di jàng xasaayit kon yàlla la sëñ Tuubaa gën a fal sëñ Ibrahima Koundoul ñu di ko gërëm bu baax mi ngi ànd ak sëñ Mor Seck sëñ Abdou Wade Bur ñu di ko gërëm bu baax a baax moom it andi na fi ay teranga yu am solo eh, ànd ko mbokk yi sëñ Mar Seck eh, verre yi ngeen di gis ñu daka takk maag sëñ Abdoulaye Diop Bisri daf ñu ci defar ba pare naan par ñaar ñaar laa koy def rek bu ngeen takkee ba doyal tekki takk bi sëñ ji Ndaw mi ngi naan ma yóbbu mu ci ma la yóbbu ci sëñ Mar eh, tubaarkàlla sëñ Mar ñu ngi koy ziar 3T euh, 3 euh, tri ñi ngi leen di gërëm sëñ Souleymane ñoom ñoo defar xeeti warga yi nga xam ne ni euh, bokkul ak warga yi nag warga yi daa am ay parfum yu wuute am na boo xam ne jinjeer la am boo xam ne lem la àndal am boo xam ne was lañ koy wax yaakaar naa ne moom yooyu yëpp dañ ko boole def ko mu kéemaane lool bañ tàmbalee ba léegi ñoom it gis ngeen ni ñu def seen liggéey ñoom ngeen gis nii ñu ay mbokki taalibe dañu daje ñoom bis rek bi ndax ci liggéey bi la ñu bokk sëñ Souleymane ñu ngi koy gërëm bu baax a baax ak euh, suñu directeur général bi nga xam moom laa dal ñu di leen sant bu baax baax di leen gërëm kon sëñ ji jàpp naa ne bala maa ñëwaat ci euh, intervention ñi nga xam ne ni dañ leen a war a décorer ñu am ci ay kaddu muy sa maram ñi ma ko waxee léegi di Serigne Thierno Mourou Sadikh di Serigne Omar Bamba di Serigne Abdoul Khadir ba Jili nga xam ne ñii ay soldaari Serigne Touba lañu. parce tey fi tey képp koo xam ne ni yaa ngi jóg di sol sa dàll lépp lu jëm ci yoon wi ndax ñoom duñ jóg ci benn site. fu waay mën a wax danañ la jël ci suuf wax la lañ lay wax ci teggin teg ko ci xam-xam te bu boobaa di nga xam ne sëñ Touba li sëñ Mbay Jaxate sëñ Musaa Ka waxoon ko ne ko defar nga say bokk defar ay jàmbur ba ñëpp jàkk nga jàpp sa jàmbur waaye nag li gën a réussir ci moom mooy ay ndaw la defar te lu naqaree defar la sëñ Gànna bu ma del suwaatee ci yow balaa ñuy ñëw ci intervention yi damay ñëw ci dama laa mas a dégg nga ne sëriñ bi moo neex nga ne ku ko mos dootoo ko yàbbi nga sëriñ Touba moo dàq lem am na feneen foo waxaat ne eh, xam nga sëñ Gana ay ay kiyam ay ay xeeti termam doo ko gis fenn ndax moom nee na waxtaanee sëñ Touba aw ma ci doo daal ñëw ne di kii déedéet dama ñëw maasale jàll nee na man gaa yi ay islamologue lañ ay kii lañ waaye man moom bambaloog laa <laughs> nan la sëriñ bi mele noonu neexaay gi. jërëjëf sëñ Amidou maa ngi sant sama gaa yi. waa leen góor jërë ngeen jëf yéen dey am ngeen jom waaw leen góor ndax nun danoo egg ci sëñ bi foofu aloor ak mais ak isi ak d'abord dañu ci déranger wu dañ lay xool rek xam ne danga ko musut waaye waaw leen góor doo leen ko rëcc nag embauchement yëpp da ngay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 waaw leen góor jom ji nag na yàgg dana metti nag des na leen wokk des na leen xuri des na leen sànni des na leen gàjj waaye lu mu yàgg-yàgg jotoo leen ko moom de te yéen boo leen combat am ñu leen jàppaleen moom nag victoire individuelle kenn du kenn moom dong te kum tax koo xam ne jëmm ma tax nga fanaan biti bis dana ñëw mu la ci néegi la say bokk mënta dugal waaw góor jërëjëf sañ Mbay sëñ Mamadou Mbay waaw góor waxoon naa ko Pape An dama ne ko woon yow sama xarit nga waaye bis bu ma déggoon nga ne sëñ bi benn baat cos boo ne ko xoos ma ne la xaraas xaraas xarita wale waaye ku baax la moom mi te yaru te dal moom mi ku ñàkk ki ñaan moom sëñ Mouhamed mi ku yiw waaw léeg-léeg day def ma yónnee ko message na ko yaa ngi tooñ jigéen ñi ñooñu parce que man man booy théâtre man naa laa seetaan di ree garaawul amul problème boo nee capp ci sëñ bi nag maa ngi déglu ba ci dugale programme bokkul rek ma ah boo bokkul moom gis nga loolu tax ñu neex bi bu dugg séeréer dama ne la ah, tey de affaire bi dara sàkkaane maa ngi nuyu sëñ Modou Kara sëñ Ahmadou Kara Mbacké Nouré nii démb daf wax baat bu doy waar par mu ne ma man li may yéem ku sëñ Tuubaa jur sa baay nu la nit di waxee lu jaadu mu looloo ko jaaxal nu ko nit mën a daal maanaam ku doon sëtu sëñ nu ko keneen mën a waxee lu jaadu nee na loolu ku tedd ki ku mu doon way juróom loo ngemee loolu la bëgg a xam loolu ay tolluwaay la ay yëg-yëg la maa ngi koy sant bu baax di ko ñaanal yàlla mm-hmm. ndax am na yitte lool ci ci ci ci liggéeyu Serigne Touba bi mm-hmm. te dana leer ca kanam incha allah mm-hmm. sëñ Amidou xam nga sëriñ bi maanaam neex dafa am lu tudd neex te lu ëpp ci lu neex ci put la yam lu ëpp ci li neex ak put la yam lem boo ko sottee fii mar boo taqamti ko di sentir ci put gi bu tàbbee ci biir bi di doo ko yëgati maanaam jëmmi neex nag sëñ bee dàq neex ah ba neex ñëwee ba ne lii mooy neex sëñ bee dàq neex waaw euh, ah, sëñ Tuubaa moo tax dafa am ku ñëw sëñ maam Balla Mbakke moom maam borom Saam dane man saaxa taama xubbihi ansaahu kullu xalaawatin wa ma yaxwaahu looy lijjanti mën a tomm tomm caf nga bëgg sëriñ bi loo saxati yàbbi ko dara duutu la saf dara sëñ ba jaxat dana ko sëriñ bi yaa gën alal yaa gën barab gënu nit ku mooy ci yow mucc am mboole mébé di asal kon yaa gën lépp dàq googu mu dàq lépp ñuy wax nañ ko léegi sëñ euh, abi bu may wax na léegi gabon mbokkum sëñ Abdou Lahad bu Somé mu sëñ Modou Xëri Bousso mm-hmm. doomi sëñ Masamba Fati la sëñ Bousso bee ko jur sëñ Tuubaa yar baayam yar ko sëñ Tuubaa ko woo ci njeereem ci biir néegam teg mu kolaas gi di ko wargal sol mbaxanam curi cera sol baxa bu baxa baxa sol baxa curki jiitalu dara na ko ma nettalee dara sama diggante ak nasaraan bi fukki fukki wax ak ñeent yooyu point yi ko sëñ ba daan na ko am na bis dey tubaab bi dafa ñëw na ma ca gam ndax yaa ngi seen garab yee sëñ bi ne ma ne ko waaw mën ne ma garab yee de juróom ñaari wëlli fa samay maam suul rey leen suul leen fa te wëlli yooyu seen daraja yeggoon na ci fi jant bi fenk ba sow lu fi xaw xam nañ ko yaa leen di juróom ñetteel nag sëñ bi ne ko duma ñoom duñu man te doo sa maam ñoom lu ñu ñoom lu ñu du ñu lu ma ñoom du lu ñu man te yow doo sama maam nee tubaab bi na ko bu 6 heures de matin jotee nag ma fekk ca quartier ka maa ngi mbind bi sëñ Abdou Lahad Bousso Thierno moo ma ko jox nga xam ne sëñ Bachirum sëñ Saliou sëñ Modou Mamoun Bousso imam ñoo toog di ko laaj sëñ Modou Xëri mu nett leen ko ni leen ko sëñ Tuubaa nettalee Cheikh Abdou Lahad Bousso moom mu jox ma ko màggal Touba gi taxaw naa ci buntu jumaa ji defal ko ci émission ba pour mu nettali ko adduna bi dégg waaw moo tax ma waxaat fi mu jógee nee bi mu waxee loolu bis waxtu wi jot ñu dem di jëli sëñ bi war ko yóbbu ca quartier ga nee am ko waru fas ñëw ba tolloog sëñ bi ne ko kaay mu ñëw mu ne ko Sénégal laa bàyyi ko waaye man la jibrilu alayhi salaatu wasalaam na ko tubaab yi sama borom moo yabal ngir ñu ñëw fi yow ndax dafa am lu ñu nam mooy bu ñu la yóbboo ca quartier ga bu ñuy tàggatu dawal fas yi ci seen kaw fël la fetal la suñ borom jox ñu ndigalul na ngeen dem yéen taxawuñu ko nee na faral njiitul tubaab yi gis ahlu badri gisal ko boppam ne sëñ bi xanaa ñii yaa leen fi indi sëñ bi ne ko ne ko ñii xanaa sa ñoña mu ne ko maa leen fi tax a ñëw yaa leen fi indi mu ko maa leen fi tax a ñëw yaa leen fi indi mu ne ko maa leen fi tax a ñëw ñu ne ko ndax man nga noo signeel fii ne doo fayante nguurug nasaraan ba faw nu delloo la ci réew ma may la nga moom sa bopp di dundal diine xam nga dañuy def buñ màggalee wala murid yi waxee dara ñu naan murid dañoo dëgër bopp déedéet dafa am lu ko waral dafa am lu ko waral sëñ bi mu ne ko danga nga nuy signeel fii ne doo fayontoog noonu mukk doonu topp dara nu bàyyi la nga dellu ci réew ma may la nga dund sa diine nu la neex xul mm-hmm. huwa allahu ahad la signé allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad tubaab bi ne ko ciy teg wax ñu nan mooy sa njaboot sa ñoñ mu ne kuy wax ashhadu an laa ilaha illa ana muhammadu rasulullah lettre boobu am na lu fi xew diggante sëñ Modou Moustapha tubaab yi ba ñuy tàmbali indi benn benn lettre boobu la ñu Cheikh Moustapha wonoon ca la ko waxee na ko am na bis dafa am tubaab bu baaxoo buy ñëw fi man day indi ab dawkat ab xaj mhm. ca loolee bu koy nett sañ sëñ bi ko nettal moom daan na ko bis ma ne ko bu fi indaale sa dawkat bii ne mu mel ne lu ma naqari lay wut dem indiwaat ko fa bis nee na sëñ bi sëpp xalima gi wëccax mu dal ci xaj bi xaj bi ne jëppi takk daw aw nii tubaab bi daw aw nii tubaab bee waxal boppam ne li tax ma daw jaar nii wóor na ma ni xaj bi takkee bu ma ko jegee woon takke noonu te loolu sëñ Moulay Bousso la ko bind di doomi sëñ sëñ Moulay Bousso doomi sëñ Mbàkke Bousso ata bi kilaabin mubtarin mahwa qattihi fa harraqaha bi naari massul kawaaxid kon kon kon loolu mu am ci mbir moomu digganteem ak sëriñ bi sëñ bi ko nettalil boppam it julli géej gi na ko bi waxtu yu jot xam nañ ne diggante takkusaan ji dafa gàtt ñu ñëw bëgg ma caa tas keroog laa ma a ñaan saa borom jëf jooju keroog laa ko mas a ñaan yàlla tukki bépp keroog benn yoon laa ci mas a ñaan yàlla jubbi ci géej daan ko la tax ma yeesal njàppit ka ma takkee sama laxasaay gi sama këru mbakke bari gi te man nga ca mbind ma sama këru mbakke gi bari gi ba ba muy dellu si waat defum fi loolu yeesal njàpp moo dul jox julli rek lu dul waxtu bees bam sànnee darba it daa bind loolu wa ma al fulki yabdu raakian xayra sajidi parax paraxeewu ko de yabdu raakian xayra sajidi bu sujjóot danaan tekk bu rukoo danaan tekk mu da ko nettalil boppam ci benn bu ci nekk fam jaar moo wax sëñ Mbàkke Juuf na ko guddi gi ma jëkkee fanaan gabam wéet naa fa bu mel ni néew boo tabal ci bàmmeel ay bokkam ñibbi gisuma fa gisuma fa ku yàlla gisuma ko xam waaye ba ma fa saxee diir nag koo wax lu mu nuru danaa ma ko nar a def yàlla ma yàlla gabam gi rey moom mii wéet rek nekk moom dong gis nga bala ñoo régler situation solution yeeg programme yi dañu nangu bu yàlla ba noppi te bàyyi yox yoxi gi ak dellu ginnaaw gi ak ragal gi ak ñàkk ngor gi tudd toog toog war a wax sëñ beeg jëfam di am koy sóor te koo sóoraale ngir la mu am ak na mu mel buñ la tegee ci kuusu ba mel na la na la taxaw nga lànk fi ne ku ci ñun ñii di wax ñëpp naan diw diw diw diw ku ci sëñ Tuubaa ne woon naa la boolee diw mu rek la situation nga lang ndax ay rees wu kon lu nu war a ñàkke fayda ñàkke ko fulla mu jëfal boppam xoolal amul luñ koy kiriyal déedéet luñ koy kiriyal mm-hmm. sëñ Mouhamad Mbay mi loolu moo nu xaritoon moom mi wax na ko léegi looloo ñu tax a doon xarit dañu ubbi ma Masaalikul Jinaan ma jàpp télé bi dégg ñu wax waaw am na ñu wax seen sëriñ nangam ma ne ko eh génn ci mu ngi nii toog di ma seet loolu sa yoon ñëw ci c'est la dernière fois mu ko déggati du sa affaire waxal la leen mais kooku bëgg bëgg la jënd sëñ bi domaine la bopp lu mu wax na ko bindal boppam lu mu jàpp ne wax nañ ko li ci de dese kopp xam nga dafa am lu Habib wax léegi tey sëñ Ablaye Diop bu ne diw bind na ca nangam diw bind na ca nangam diw bind na ca nangam diw bind na ca nangam bind ak luñ wax mais katabtu wa kulli faaraqa dan ba wa shirka wa xamu sana rabbi ladi bi'dahu tarka la ko tax di bind tax muy wax ida katabtu anta zaar su baaxi wa sabahat malaayku tibaaqi كتابتي من لوح ربي تنقل لا يمتري فيه نبيل ينقل إذا كتبت أو قرأت ابتسم خير الورى والدر حزما kooku kooku fu mu bindee nan la bindee sa mbootum xalimaay booti lawxul mahfuus borom kundi la gàggante mbakke yaa fees bu ne supp xalima gi ci daaj yi aras jaayu kursi jaayu bu dee cëpp xalima gi ci daa ji càpp ndaay fa mu nekk du yegg suuf god di yegg yuuli sam ko ba mu fees dël mu daay mu jaay faxasu ak wokkutu ak taqamti ko geesu gisul kenn yooyu matt di matt mu ne sëpp neb jaañ du tee xalima gi kiij takk loxo ba mu dëgër di nga tuñ mi ba mu nag ci deret ji di toq muy kiij kiij kiij kiij kiij kiij ci mbind yi woo xam ne kenn bindeewu ko moo tax ku bind ni mu bindee mu bindee foo bindeewut bindee loo bindeewut bindee foo bindeewut bindee loo bindeewut genn virgule mënee su ko korusi ci mbindum sëñ Tuuba ana ñuy wax Yuusuf ibn Ismail an-Nabahani borom jaami karaamatul awliya jàngkat yi xam nañu ko ma nga dëkkoon ca Liban nekkoon ku jàmbaar dafa dugg xal xalwa laaj rasulullahi ndax am na ku tagg suñu borom ndax am na ku tagg rasulullahi ku toll ni li ma ko tagg man adna bahaan yi ne yonent bi na ko ku ñu Ahmadou Bamba kenn juddul asakaam te booba sëñ béggi ci géej gi sëñ Tuubaa jógee ci géej gi ba dem njéeréem na bahaan yi nekk ca Liban demal ci karaamatu Cheikh Ahmadul Miski na bahaan am jafe-jafe xaalis te gisanti wut ak sëñ bi ci zahir ne ñoo bokk jamono na bahaan moomu bi kiiraay yi dañee fa arsala ilayhi maalan kasiira sëñ Tuubaa yónnee ko xaalis bu bari dox ko nabahaani nabahaani na cas xalimaam na xaw a njaareem uluman lil ilahi wa fadlan la yamunnu fadlan xayri mamnunu awal qadima lisi lawlahuma sajadat ala aljibahi wa lam tuqra bihi noonu in imraan faatahu almuxtaar min mudar wa faatu qaalim muxtaar maxmuunu nee na njéeréem a làmboo xam-xam ak ngëneel ku fa nekk sëñ Tuuba bu du loon ko fa njéeréem si jaada du am ganu jë alxuraan kenn ko jàng daal na ko rasulullaay raw ko fa njéeréem raw perte nga lu baaba bun a addaymaani wax xadimul mustapha xawsul animi lisaanul xaali tashhadu lil qadimi bi mithli cheikh lam nasma xadisa wala fi saani fi dahril qadimi ku mel ni moom nopp musu ko dégg alxale yu baaba bun mahamad at tijaani ala yu lu wax haasal qadim min alkamali ajaiba wa maqaamu fii al uyunu taxaaru lam tasma al asma qattu bi mislihi wa shabihu lam tubsiru al absaaru nee na sëñ Tuubaa lim lamboo ci yàlla ñëpp ci gëlëm xel mënu koo daj nopp mësu koo dégg Abdourahman al Azadi al Alawi lan la wax ñëpp la posé question ñëpp la laaj ñëpp la wax na ñëpp tontu la wax alaa yaa ibadallahi xuumu li tashhadu wala taktamu ma taalamuuna fa taatadu saaltukumu billahi man wa raaytumu ala al ardi misla alcheikh yarkacu yarjisu yasjudu wa in qulu ma in qultumu ma inna dahra mislahu fa xawlukum xaqun wa illa tafannadu shahidtu bi an cheikh ahmadu lam yakun siwaawun karim ala ti al yujadu adduna laaj naa leen la wax adduna maa ngi leen di laaj na ñëpp wax dëgg bu kenn nëbbu waaye waaye ngal la ndax mas ngeen a gis ko mel ne Ahmadou Bamba déedéet daan na boo leen ci dëgg gisuñu ku ñu mel wax ngeen dëgg ku ne gis naa ko fen nga daan na seere naa ci yàlla ne ku mel ne Ahmadou Bamba ba sa teg tànkam ci kaw suuf yéen ñi jàngkat yi tubaab ngeen sëñ tubaab li mu gagné combat bi am na ci gën a leer ana chef de canton yi nga xamoon ana buur yi ana tubaab yi lu ñu fi bàyyi gaar bu yàqoo tabax bu yàggook dëkk bu sëñ tubaab ma seeg daje yu ceddo yi bañkat yi xeexkat yi rayante yi na fa sëñ Tuubaa samp fa cheikh dama cheikh ma sàmba Diop sama nga ne dama cheikh Daaru Asan Njaay nga ne jumaa yooyu jolli ñaata dëkk la réew mi am yoo xam ne murita ko moom économie bi dox ñu jàng alxuraan dara du xew mu gañe lépp ah. gañe melokaan yooyu yëpp loolu teg nañ ci seen bët ah. say bokk jaay seen bopp jaay seen lépp sëñ sëñ Mamoor mi nu nu denal mais ana tey ku dàq bay sëñ abi bu Mbàkke sëñ sëñ Cheikh Mandoumbe xabaan ku dàq bay Cheikh Mandoumbe amul mais bu dee judd moom sëñ Mandoumbe bokkul boog sëñ Tuubaa bokku lépp mais dafa dem ba wax sëñ Tuubaa na ko jaay naa samaw sant jaay naa leen bokk jox la saa bopp gis nga la taxoon mag ña bàyyi seen kër yi ak seen dëkk yi du lii du man man lanteeg dendalante gam gam lante te moom daa xam boppam moom daam daam waaw daam dafa xam boppam <laughs> sëñ ji li organiser mbiram xoolal organisation sëñ Tuubaa rek boo tax bu ma déggee ñaan murid am programme ma ne leen aw xas la sëñ bi melutoon noonu kees gu mës a dugg sëñ Ceddo kees gu sëñ Tuubaa mës a dugg du soxla ca kees ga ca des lu mu yittewoo da fekk ci biir kees gi kees gu mës a lu mu da koy fekk ca kees googee buy organiser mbiram nu mel loo mën a jaay xam maa maanaa am personnalité raw ñëpp xoola tey alxuraan ji nga xam ne fu ne la ñuy taxaw naan alxuraan ku ne naan alxuraan li sëñ Tuubaa def ci alxuraan li ko alxuraan jaral Muhammadul Aziz al Aliyu lu wax dane kum neex dencal kum neex nayal téyel sa alal kum neex deel bu fi amul du nekkee daal alxuraan moom dana jar faale yu ma ko yor seen njëg maa in ubaali ida ma danna du maali anni ba ajjil daqat li mashabil xaali maa daama xawsul wara xayyan yubajjiluhu xaqan wa yabsulu fi gaaliya almaal fi kulli yawmin tuwaffi alfu mansilihi tutla bi amthaliha min baadi amthali wallahi ma saadahu illa biha sharafa wa baslu ma lam tanahu kafu bazali ñu bëgg am complexe ragal duñ tudd sëñ Tuubaa ah ah tey jii barki démb bi ne ku génn si kër huit heures ñu duba la ñëpp a tëri te kenn ko wax te ki ko wax bu soxlaa fi ñun lay ñëw génn ci mbedd yi taxaw ci piko bi naan ñii soli jox leen ma ko ñu jox ko ko ba noppi mu fattu ci biir ne yéen bu leen génn ki xëyoon bàyyi këram yi Cheikh Moustapha toll ci jàng Cheikh Fallou toll ci jàll Cheikh Lamine Baara soxna Mariama Kunta Cheikh Sidi Mouhamad mu bàyyi fi njabootam gi ay këram gent ku suur yi xalat wala ahlu an yi tafaaraqat lu ko ko yóbbee li mat ma diu xas bëgg na réew mi dana avancé ta fecc kat sax bu amee placement ñu ne kii dafa dàq fecc dañ ko war a nangam boo basketee gagné ñu ne nañ ko fonk boo mënee sido di mbootante boo daanee nit baanu daan la boo ñibbisee ñu ne am na médaille d'or wala médaille d'argent parce que doomu réew mi sëñ Tuubaa fi ne fi rek lu mu wul ne sëñ la sëñ Tuubaa ne fii rek lu mu wul ne sëñ la ku ne xëcc bokk mënoo tàggalee di di sëñ Mbàkke bu so kenn gënu koo jege sëñ Tuubaa la ku ko moroomum Serigne Touba mësul am ginnaaw nabi te ab xarnu duutul am ku dend ak borom Touba Serigne kenn la natteel fu la neex koo ku nattal lu la neex jëlal fu la neex xooleel fu la neex en 1895 keroog ba mu taxawee ci bureau gouverneur ne xadamtu ma banaahu man jaxat min al bi xul huwa laahu ahad xadantu bil ilahi bunyatal fira wala ulaaqi abadan man kafara dafa tekk jéngi dog mbuumi jaam yi may nu indépendance may nu jàmm ah, ku jàng ñeenti addis ak juróom benn aaya rek xatt ah, nañ ñi xëccal sab sikkin dafa ne diine sikkin bu gudd la di bi bu xat te bu kaamil ba lakkoon ci guddi gi tey nii ñu ne alxuraan jeex na tàkk sëñ mun taxaana balaa fajar ñu bind yokk alxuraan jaa gi ci dund gaa yi <laughs> comité boo xam ne li nga mën a investir ci l'islam mais seetal comité boo xam boo xam ne daara ya vingt nangam milliards ama salikul jinaan ñetti guddi ndakaaru la fanaan tànk yi riixee rab yi di ko jam ñu dagg ndakaaru jox ko ñu ne ñu dem ba mille deux mille vingt mu am masalikul jinaan soral yu jolli booy dugg di ko seen booy gën di ko seen force te mënuloo ci dara ban comité nga xam boo xam ne université 37 milliards te ki ko moom ñépp la ci yéen a yéew maanaam li murid yi financé boo demee Touba téeméeri juma ak ñaar fukki julli ak juma lépp sëñ Touba am xasida yi di jolli ñuy jàng sëñ cubaa di ko waxtaane mais nun bu ñun ci suñu biir bu ne kennal sëñ Touba nga gis benn ustaas bu na waaw kennal moom kennal yàllaa ko moom sëñ bi gënoon noo xam ne yàllaa ko moom tere yu baqin bi xam nañ ko demoon nañ ci armée li sëñ Touba du rayee xam nañ ne sëñ Touba du yàlla nga sëñ Touba du rayee kay tërale baqee kookaay yàlla xam nañ ko mooma xadim mooma mani si mam moor ki bur yàlla wax ni mooma Mustafa wax ni mooma ku newul mooma du ma saf xadimul xadim mooma jibril dana ñëw ci moom Mustafa dana ñëw ci moom jibril dana ñëw ci moom Mustafa dana ñëw ci moom jibril dana ñëw ci moom Mustafa dana ñëw ci moom yëgula xaadimul xadim mooma laa dagg loolu ah. waaw jëwriñ nee na nga mayaat ko ci ñaari ñaari bayit ah. nee na xaalimul xaddim mooma nga mayaat ko ci ñaari bayit bala ngaa daaneel bilaay walay mooma xaadimul xaddim mooma bilaay walay mooma ana sa tey borom tuuba bilaay walay mooma xaadimul xaddim mooma bilaay walay mooma ku bëgg sëriñ ba ma defal ni xaadimul xadim mooma ilaay alaay mooma xaadimul jibril da daa ñëw ci moom jibril da daa ñëw xadimul xadim mooma ilaay walaay mooma xadimul xadim wax leen jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba kennal Bamba lu war la jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba ma maam Cheikh jërëjëf xaar dinaa dama euh, damaa bëgg balaa balaa Baye Cheikh jël kàddu gi sëñ Gana daaneel ndax am na lu jëwriñ alaaji Mbàkke yu nii Baye Cheikh waaw dama la koy jox léegi damaa bëgg bu Gana daaneelee ma ñëw ci ndax sëñ Gana fi mu tolloon daa am solo jëwriñ nee na ma maa ngi seetaan mënumaa taxaw mënumaa toog te sëñ Cheikh Balla Samb mi fu ñu ko séen day mel ni séen nañ ma fa ndax mooy seen sakk yéen te mooy seen cër te sëti sëñ Touba yii ma gis ci plateau bi su ma ñëwoon tooge bi mën naa soppeeku maa ngi toog nii mënumaa taxaw mënumaa toog yëkkati naa nag addiya ju am solo daane bëgg mu koon sax wax waaye man sama deret ji sëñ Touba ciy daw pikiir ngeen ma nag diggante sëñ Ablaye ak sëñ Gànnaak sëñ Cheikh Diop Mbaye ne ma dinaa leen boole léegi baay Cheikh bul ma tuddal nag lim bi ndax damay bañ suba réew mi bari bari bari problème waaye moom moo yor ab télévision mooy fay courant mooy fay salaire su émission bi bëgg a jeex mu ne ma dooma dimbili may ma 30 minutes buñ paree ma neexal la moo lay fay moo fay télé bi moo moom courant moo moom lieu bi waaye dooma dimbali yokkal ma 30 minutes ma neexal la loolu amul fenn kon li sëñ Gana di wax sëñ Touba neex loolu ka koy def yëgatul sax di fu mu neex doo ma dimbali yokkal ma 30 minutes ma neexal la talay fay te bu ko neexoon léegi mu ne nañ dagg heure bi maa moom sama signal waaye daf ne tele bii bu demoon bay tëj ñu teg na taaloo sëñ tubaa xasida daw ci suuf sax rek baax na sëñ tubaa rek laa ci laa ciy wut wutuma ci lu ma am wutuma ci lu may lu sama njaboot di am ëllëg wala luñ ci donn kon nag euh, alaaji Mbàkke yi ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal su ngeen gisee ñu di ko tànn ci yu baree bari ci ci émission bi sax di ko di ko ci tudd dafa di taxawaayam moo tax dañoo toog di waxtaani sëñ Touba bàyyi seex seede na ci li may wax ay kilifa yu mag ci réew mi toog di ko xaar mu jékki-jékki daal ni waaw man ndeket ndek am na ñu may xaar ci suuf ah jëwriñ te ngaa dem wuyu leen mën a déedéet ki nuy waxtaane ki nuy waxtaane moo tàggat ñooñu ba ñëw te lu ma ci mën a amee moo ma ko gënal te loolu pas-pas la nee na ma njabootu sëñ Touba gii ma seen ci palaatoo bi de mënumaa ñëw bokk ak ñoom palaatoo boobu waaye nag fii ma toll nii maa ngi yëg loo xam ne mënuma koo wax kon nag nee na maa ngi leen di ñaanal maa ngi bokk génn yéen plateau bi Baye Cheikh dana ci ñëw léegi léegi bi ñuy wax dafa am ñoo xam ñi ngi message ci suuf bëgg a bokk ci group bii di kenn du Serigne Touba ndax lii lépp nag ñoom ñoo ko waral ndax ñoom dañuy def émission maag sëñ laay ñu woote ne lii lañ ko def ab liggéeyal Serigne Touba yaakaar naa sëñ Bàcci Fay mi yor seen communication dana ci ñëw ñu daal di taxawal loolu tudde ko groupe kenn du Serigne bi ni mu toll léegi kenn xamul mu toll ba Moscou nag ba Russie ba Corée du Nord Corée du Sud ba Japon fépp am nañ fa ay éléments te lépp liggéey sëñ Tuubaa ko ko waral may wax ne euh, léegi bi may tudd am nañ benn commission boo xam mi ngi tudd euh, chargé relation extérieure euh, soxna Kumba Saaxo moo ko jiite numéro am képp ku bëgg dugg ci groupe bi ci moom ngay jaare moom moo la ciy dugal mën ngeen woote ci 77 533 67 49 77 533 67 49 ci ngeen di jaare ngir dugg ci biir group bu kenn du sëriñ bi ndax moom moo yor lépp lu jëm ci relation extérieure soxna Kumba Saaxu taalibi sëñ Mamor mii la ndax pas-pasam ak liggéeyam ci sëriñ Touba ak moom mii li muy taxawee ci liggéey bi kon noo ngi koy gërëm bu baax a baax ak commission yi ci seen ginnaaw sunu yaay jii di soxna Awa Saw nga xam ne mooy ndey daara groupe bi ñu di ko gërëm muy nit ku am taxawaay ci biir liggéey bi ndax su ngeen gisee ñu di leen beral ñoom ñi ni ñuy taxawee moo tax ndax guddi bëccëg te tey ñoom ñi kenn ku ci nekk koo ci xool ba ci góor yàlla yi am na ci ñoom tey laa leen mës a teg bët sax te noo ngi liggéey à distance li ko waral mooy Serigne Touba sëñ Mor Seck seere ci li may wax ñu ngi leen di gërëm bu baax ci seen taxawaay kuñ tudd kuñ tuddul nag na ngeen xam ne cofeel gi ngeen nu ëmbal bu ko raw lañ leen ëmbal te ñoo xam ne sëñ Touba rek a tax soxna ñaañam a nga Paris di adjoint topp ci sëñ moom moom mi mooy secrétaire général bi ah ak mboolem ñi nga xam ne ni ñi ngi ñi ñi ngi ci biir groupe bi kon képp ku ci bëgg a tàbbi foofu ngay jaaree ngir mën a bokk ci groupe WhatsApp kenn du Serigne Touba ñi ngi ziyaara baax soxna Adama Ndiaye di ko gërëm bu baax ci teewaayam ak mbooleem ñi nga xam ne ni ñoom la sëñ bay di yabal ngir ñëw ci biir euh, liggéey bi ak njabootu sëñ tubaa gi nga xam ne itam ñi ngi ci biir liggéey bi ñoom it ñi ngi leen di bu baax a baax di leen ñaanal taxawu leen sàmm leen ndax yéen da ngeen am yéenay pas-pasu liggéeyal sëñ tubaa nu ñu am pas-pasu liggéey sëñ tubaa ngeen ànd koog ñun ci nag dignité te it liñ jotagoon a def dafa am solo ndax dañuy dajale seeni alal dafa mbokki taalibe yu nekk ci prisonniers yi dama dem camp pénal di leen yóbbul àddiya joo xam ne nii groupe bi ñoo ko dajale ba ma demee dañ maa génneel lu mat fukki prisonnier ñu ñëw di waxtaan ak man ñu ñëw toog ñuy waxtaan man ak mame mi ñu ànd ñu ne ñu ñun bu ngeen gisee yëguñu waayu prisonnier bi yéen Touba TV yéen a tax parce que bu ñu toog di leen seetaan dootuñu yëg sax ne ñun ñoo ngi ci prison ndax ñun sëñ Touba rek la ñu dund bañ fa tàmbalee waxtaan ñu daal di daanu jël ñoom ñëpp mënatu tëtee sa bopp kon loolu mooy yëg-yëgu sëriñ bi mooy def ci yow neex neex ba doo yëg métit métit ab murit du stressé ab murit du mer du gedd ab murit du tàng parce que ñun kiñ àndal mooy àjjana ñun 100 francs 15 moo yem ci ñun bassin ak percale yem que li ñuy dund muy neex moo dàq loolu li ñuy dund muy neex moo dàq loolu fuuf sëñ Alsaan maa ngi koy ziare bu baax a baax sëñ Gana ma bàyyi la nga nga nga nga ubbee foofu ko defee boo daanelee sëñ sëñ Cheikh Balla dana joxe yóbbante bi sëñ Ablaye dafa am bu ma ko bëgg a posé boo xam ne moom dama bëgg ñu ñaanal ko ndax sëñ gànn mi daf ma wax ay seere ci moom muy nit ku modeste nit ku oyof di borom xam-xam dama koy wax ne sëñ Touba moo la liggéeyloo ci li ngay féete fi mu féete ndax ni muy génne xam-xam li ma neex mooy ñëpp ñoo la ëmbal googu cofeel mooy sëñ Ablaye ku modeste la ku baax la ku woyof la waaye ku mën a génne xam-xam la te loolu lii la sëriñ bi soxla ndax nun démboo njaay danoo wax ne jàngunu aka noo jàng li sëñ gànn wax buñ bi téere yépp boo taxee buntu commune bu Touba masala boo laaj daañ la ko tontu loolu la sëñ tubaa réussir li sëñ tubaa réussir du ay hadis yoo xam ñi ngi warante naan dëgg laak du dëgg ak saxiix laak buxaari yi léegi la ma sëñ murtada bu sa imam moom sëñ bu sa imam yónnee message ak sëñ abo basiru moor moom soxna jàbbaaram sëñ basiru ne ma jataay bii képp kuy dund seexul xaddim fi ne yaa ngi dund àjjana te kenn da leen raw ci àddina kenn ëpp leen xam-xam prix bu ñu dem ci Dubaay ba mu mënoon doon bu ñu demee dañ jël prix waa sëñ Tuubaa mun a nekk ci réew mii bu ñu tegee prix alxuraan murid di jël ko bu ñu teree bu ñu tegee prix shangir waykat murid di jël ko lu ñu teg ñu jël ko ba pare ñu ne jànguñu aka ñoo jàng fa kasratul ilmi bi xayri adabi jaalibatun ilal ada wa temps bi loolu rek ñu tënk sëñ Gana neex neexi sëriñ bi waaw jërëjëf sëñ Mourtalaam sëñ Fallou euh, sëñ Amidou sëñ Murtalaam sëñ Fallu moo doon woote léegi ne ne nee na ñëpp ñëpp a bëgg ñëpp a bëgg nee na nee na sëñ Murtaxaa nee na sëñ Tuubaa malaaka yëbbu ko ab yonent yëbbu loolu la ma fàttaliwaat léegi waaw moom sëñ Murtalaam sëñ Fallu muy muy woote lii bëgg waaw loolu li ma doon leeral léegi xam nga euh, bëgg bëgg lu bëgg bëgg wax loo xamul dafay indi problème dof ci sëñ bi nag moo gën dof ci leneen te tey dama ko wax sëñ Thierno mii dafa am bis ñu dalal ko ci télévision guddi lool keroog yaakaar naa bi ma lay jot léegi guddi na ma ne la waaw góor waaw góor waaw góor xam nga la ko waral ab gunóor bu xoolee ban tas ko ci miir bi day toj. te liñ jàppe ak yeewu jàppe ko xam parce que yow tam ndaw loo xam ne yéen a bokk génération tey ñun ñun jàppe ay dof ay ndaw ñu nekk fii tey mais bu dee ci adduna li ñu installé yilif ko yow mënoo ko yilif lu ñu réaliser yow mënuloo ko réaliser te boo nu fekkee fa ñu dëkk ñu di dongo yu takk ndigg daw di di wéy ginnaaw tey ki ki ki am mbërum lam moo sañ a jékki-jékki yëkkati loxoom na cur ah. nga am sëñ Tuubaa te nu nga ko wax te mag ñi duñuy dof léegi wax nga ko sëñ Mouhamadou Lamine Gaye sëñ sëñ ma Gaye jëm wax ji mu wax lu ko gën a rëy ba mu ñëwee nuyoo ba noppi lu mu tekki nuyoo ba min ni salaamu ka yaaquutin awit durari waaye fan la ko jëm ila xadimi la ila euh, ila la si saara abdallahi xaadimahu cheikhi malaasi xiyaasi man xala watari haza siyaaratuna yaa rawdatal xutaba yaa xudwatal ah, mu tol noonu wax loolu ñëw na ko man ñëw naa wéeru si fi yow waaye li ma tax ñëw nag soxluwuma benn benn gan gi ma doon fi yow soxluwuma benn benn bu mooy ngërëmul yàlla ñi ci moom di bokk maam Mor Jaara borom saam téeméer rakk la daan nafila sëñ Dame Abdourahmane Lo ñaar rakk la daan def kaamil bi di mbokki sëñ bi lu tax ñu mën a xëy jaay lii te damay wax ne tey boo boo wooyee boo wooyee kenn ku sant Mbàkke tey mu ne la Mbàkke wuyowut Mbàkke sëñ Mor Anta Sali wuyowut Mbàkke maam Maaram Mbàkke sëñ Tuubaa lay wuyoo ah sëñ Tuubaa ji lay wuyoo li nit ñi jël ba def ko tey dencuwaay nga xam ne tey bu ñuy wax ñu ne diw boroom xam-xam la mais tey ñi ëpp xam-xam ci àdduna bi tey jii bokk yi xanaa Arabie Saoudite bu ne Makka na Madina xanaa delluwaay la waaye waaye fan suur loxo mu te jël yéen fii wa ci man jalla suwaad al jahli fi sudaani saka al imaamu cheikh ahmadu man gada mutarabbiyan bilhamdi wa shukran cheikhu tariqati walxaqiqati walhuda haadi wara bilhaqi billahi wallahi wa taalaahi li naari wa sëñ Tuuba am nañu bu ñu ko waxoon seen i sëriñ télé boo jàppati ñoom ngay dégg ñu ubbi ko te noonu dañ koo dañ koo teg ne xam na naar yee daanu rek xam nga noonu dama ne naar yi moom dañoo daanu gis lu leen gëlëm loo fi leen noonu wax yi nit lu mu rëy ci sëñ Tuuba ak loo ko wax lu mu rëy rëy fa ko toll nga ko waxee mooy jotoo daam yow fi nga toll ne fi rek fi nga waxe waaye moom li waxal boppam a gën a rëy barra anil baaxi min al man aw ma problème yàlla ma ci seppi ma tege ne problème aw ma ko man barra anil baaxi min al ashkaali <laughs> ah, problème yeeg jafe-jafe yi ak yu dëgër yi man bokkuma ci xam nga léegi danga ne bëgg ko bis Cheikh Ibrahima Diop dana ko muhibbuka du bishrin azimin mu abadi wa man sa lësi yàq lii ko foofu kamiilu ku la bëgg foofu ko fekk ci mbégte sëñ Tuubaa rek nga gis mu ñaan na yàlla wuutu maanaam naa wuutu way ñàkk baayam ci biir xolam naa wuutu way ñàkk alal ci biir xolam ci sëñ ngay gise ko amul añ amul reer tawat mënta jóg nga ne ko noo def mu ne bëgg sëñ Tuubaa ñakk fatte way jur fàtte lépp ngir xolam sax gi ci sëñ sax léegi ñu ne réew mi gis nga dama koy wax bi màggal gi wax ngeen ko léegi màggal gi jub see damaa mujj di reetaan télévision yi ndeysaan débat yu neex a ci am nag ñëw indi sab karawaat costume ko takk ko ñëw toog màggal gee jub si di ñàngal ñu laaj la waaw léegi daje bi war am tuubaa bu amee yow màggal gi borom bi mu koy taxawal fa ko lijjantee nga jekki mooy alors yi ma doon wax <laughs> laa ko jëlee woon ci màggal gi waaw léegi yow màggal gi Euh, est-ce que loolu yoon na war nañ koo def ak waruñu koo def parce que réew mi nangam nga naaw puisque ngay wax dama ne puisque sa alors mais d'abord je crois que mais mais fekk demewut noonu waaye ka fa Touba moom ka fa Touba de Cheikh Mouhamadul Mountakha mi yëg yëf yi. nar naa màggal moom. biñ ñëwee ne ko nangam ak nangam xam nga lu xam nga lu mu wax ña leen ko wax bu bu leen bu bu doo leen gis lu leen tee nelaw lu leen tee nelaw. bu mu leen tee nelaw léegi nag bu fekkoon na noonu doon li ñuy wax dafa doon li ñuy wax dafa doon dëgg bi màggal gi jàllee xam nga lu ñu waroon wax ah waa léegi waa Touba nu ñu def ba sëñ Touba dimbale ñu ba te cey bu fekkoon ne màggal gi jàll na dara xew kon nees koy waxe mais léegi lan moo tax bu ñuy joxee misaal bu ñuy joxee misaal duñ ko joxe barki dee mu dégg naa ko naan non dañoo war a kuy tere da ngay tere ñëpp wala booy digle nga digle ñëpp parce que Touba màggaloon na ku mën a assurer régler sa problème ba ni ko defee woon nga mane ko ne defe loolu rek la <laughs> loolu rek la ah te mënunoo fexe ba wax naa ko benn bis ma ne leen tey fukki junni ak ñaar ci dongay laxasaay ba lislaam sosoo ba léegi nga gis ku sañ ko tarbiye buy tarqiye nit di tarbiye nit fukki junneeg ñaar nga bàyyi ko fi ci dongay laxasaay du ñu yalwaani yaa leen di wodd yaa leen di dëkkal yaa leen di dundal yaa leen di faj te duñ fay dara ah Cheikh Saliou nañ xool loolu rek yi sëñ Tuubaa ñàkke doone morom lu ci nekk di am kon il faut que ñii yàlla dimbale tey ñu ne ñoom ñoom ay ay ay ay journaliste lañ taalibi donc dafa li tax ma di ko wax mooy dafa am lu mu marqué ndax li ngeen doon nii nu ngu ko wone da ko am ñu ko doon ba noppi nunguwuñ koo wone man gis naa fi réew mi ñu ñuul ba mel ni pënu ñu di leen waxi wolof ñu naan noo nuñ ko waxee woon ak ak nuñ koy waxee ci wolof pour dama lay wax Sénégal ni mën a gaaw a jaayee lu bunta taxaw juddoo Kajoor gi Bawal dégg nga la miin cere ak ñebe ji xam ko ñibbi si Ndakaaru jàng tuuti rek toog ci plateau nu nga too dégg am yéen ngeen toog fii tey na dajji toog fii kii ne ngeen ne ci télé yoo xam ne ñëpp ràññee nañ ko ah ngeen mën a taxaw jël engagement ci wane na nun sëñ dañoo jaral ah mais sëñ bi loolu du ay caaxaan bu doon def nag gis nga bu doon def ku def effort ñu sant la félicité la gërëm la accompagner la lu nekk dana sotti waaye ak a ñaaw fi ne léegi la nga dégg fi ci réew mi ñoo xam ne yàlla nañ dee nañ bu yàgg bu ko defee ñu ne léeg-léeg ñu nettali histoire ci ci ci ci ci télévision wala rajo ñu ne cay diw cay diw xam naa fa mu nekk bu fekkee woon lii aka bañoon sëñ Tuubaa te dee na ban suul ko bu yàgg mbirum sëñ Tuubaa di jàll waaye tey aka neex ñu ne mais wax nga léegi ne Clédor Clédor Diagne mais c'est pourquoi ngeen cité ko ah njàmbaar taxawee sëñ Tuubaa nii Mouhamed mbay mii def tey jii ñëw nekk taalibe Cheikh ñëw taxaw fii am courage su ñëw ne sëñ Tuubaa ku ñu koy tëkkaleel nanga ma xam naa suba sax da nga bari ay engagement ki waxal parce que man xam naa ko ba ah, ah? dégg mais c'est que gis nga loolu xam nga lan lay jur mooy yow defaloo ko sa bopp gis nga irham jami alwara jooju rek yow da nga ci am point bëgg sañ Tuubaa ndax ci waraa nga bokk keneen am na ci point bëgg sëñ Tuubaa ndax ci alwara te ban ban ci yan circonstance la sëñ Tuubaa doon waxe irham jami alwara waaw ndax Sëñ Tuubaa daa toogoon rek jekki-jekki naan yàlla irham jami xal wara 1903 ñu takku xare indi Daarul Manaan mu door a jóge ci géej gi juróom benn weer juróom ñaar na mënti gu njaboot ji coono yi jot a gut laaj ñi mu jot a laaj mbir xew ñu song ci kërug Daaru Manaan mag ñi jël téere leetar yi nga xam ne ay rapport yu doy waar la gas ko suul ñëw taxawu kërug Daaru Manaan gii ñuy dagg sakket yi dañuy dóor jël si cëb laat mu dagg ba ca suuf di bënn gaale di salfaañ kër gi Muhammadu euh, ibnu Aliyu Yanqubi di jàng rabbi bi ma yashuru adana qad fajaa bak si yaa malikal mulki sëñ Tuubaa nee suñ borom yónni jundu leel gaalibine yi na jóg leen yaa malikal mulki jooju mooy yaa xayu yaa qayyum ji Rasulullah waxoon badar lu ci Ahmadu teg rek def leen ko mu ne irham jamial wara sëñ bi xoolal ku ñu bënn say sakket di bënn say gaal di safaane say téere di jaxase sa njaboot nga naan yàlla yërëm leen irham jamii al wara waaye xoolal ni mu ko yaa malikal mulki yow buur yi yaay seen bu yaa man jàll an xawadi waaye waaye xam nga ne yow jommante nga ak fayantoo kat xoolal yooyu ku gudd waaye yaa jàll an xawadi yow jommante nga ak fayantoo irham jamii al wara yërëmal ñëpp kon loolu bu ñu bëggee suñu yi réew ñii avancé dañ leen di wax sëñ Tuuba te bàyyi parparloo bi te bàyyi caaxaan yi dégg nga jigéen ju nekk sañ naa yàqale mais boroom kër benn lay doom dégg góof yi nan ànd bennoo xaritoo ba sa soxna nga ne ko weccool ak sa morom te damay wax ne liñ bëgg rek la ci réew mi pour mu yomb jafe na ku sa ñaari soxla jubawul mënoo defarum pénca koo sa ñaari jub soxna dañuy xuloo ba bedooy kër mënoo leen a réglé nga ci pénc mi naan noo bi daa a doon benn parce que dañoo war a àndu ah, ñaar sa kër yow ba pare rek na sa ñaari soxna normal rek <laughs> li ma wax xam ngeen ko bopp mënut a tojante fenn ba noppi ñu bëgg ñëw na léegi penc bépp na ña bu ko defee ku ne nangu na oto boo jëlee appuyage bi fi ne am na oto buy am na oto bu pneu yu usé mais téewul ñoo bokk rang bi mais da ngay nangu ne oto day ñëw oto signalé jàll daw jàll mais tey ndax dana tax benn oto gàdd gedd gedd euh, appuyage bi ne du ci jaar wala léegi dañ naan léegi kon bu gaaw bul gaaw léegi nag parce que kii otoom daa yeex yow da ngaa war a dawal ndànk kii otoom day saxar da ngaa war a dawal ndànk kii otoom amul climatiseur bul ko taal déedéet yàlla mooy séddale te moo séddalee nii maam Samba Diarra Mbaye nee na wujjee xew ne moom kenn du wujjam jamono jii jamono Cheikhu Bamba dana wujjee ka xew waaye moom kenn du wujjam jamono jii jamono Cheikhu Bamba daal di wax ne sama woote bi ku xëy mu tabbib noppam tamit tàngam lu da boppam ku doy xolam ba bàll ku ba xam di leen yëgal ki ma fi gis ki ma fi gis ku ko fi gis te àndut ak moom ku ko fi gis gënu fi ba safur xorom na ngeen ma laaj ki ma fi gis sangub jamono laa fi gis dal leen di ànd ak ki ma gis bu kenn dugg turam say xusuyuuxi ahmada mag ñi daqo dox loolu xool fa maa lil qadimi l barri min ahdi aadamin ila al yawmi fi kulli kirami mathilu fa maa lil qadimi l barr min ahdi aadamin ila al yawmi fi kulli kirami sëñ Tuubaa man ngaa natte lu ne amul moroom ni mu defi mbokkam def koy jàmbor boo demee kër Cheikh Issa Dieng na ngay sukk daraam borom njënd ak lagat boo demee kër sëñ Balla Fally Dieng na ngay sukk karaam te am na ñuy aw juróom lañ jox seen maam ñu di leen jox seen maam aw juróom lañ jébbal sëñ Tuubaa ñuy takki million di lañ joxewoon ñu leen jox ay kat kat am ñoo xam ne seen bopp lañ joxewoon sañ bi tàggat mbooloo mu leen di topp sëñ Tuubaa ngore te bu woon kenn du am dara kon bu mu bëggee waxtaane sañ Touba boo gisee tey ku mel ni Alaaji Mbàkke Fay ñu mel noonu bu ñuy waxtaane sëñ Touba man Gana Messere man sama pa man sama bopp laa wax sama bopp laa wax mooy man ci sama bopp li ma wóor mooy bu ma noppee man a wax sëñ Touba amul morom man daay noppi waaw fi ne kenn ku ne kenn ku ne waxal na boppam ruq bi ko daam fekk ba tax muy kenn mu génne la fa kon bu ñu amee lu ñuy ragal te jii xoola kii toog ñu ne ñu ngi waxtaan suñu wax nga ne million fi ne am na ko dafa tiit bi mu ko déggee ñu la joxe million waa jamono waaye kii daal dof wala waaye ah du waaye million nuñ koy joxe ah léegi li ci gën a neex mooy boo ko dee jàngat yow léegi million bi ki nga ko jox li tax nga joxe ko mooy ki tax nga joxe ko sa maama ko daan xëyal di ko gontal ba mu fay ko loo mën a toogee da joxe million kon buñ caaxaanee lii sëñ Amidou sëñ Ablaye li nga ci wax ci laay daaneele léegi sëñ Ablaye Diop ku baax la man dañuy jokkoo téléphone lu bari xam yàlla dafa ma bindee man du ma am ay noon ak kii kàcceem kàcce li wax man noon bi may am moom mooy ku jëm ci lu dul bi rek nangam parce que li problème mooy bu ma la xamul damay màndu ci yow loo ma woon loolu laay jàpp te kenn melut nu ma naqari ndax ni mel neex na ma fi ne ku ma bëggoon a wecc ko ma lànk baax na jërëjëf baax na ni ma mel baax na kon wu ma kenn na mel moom nit ku baax la nit ku woyof la dañuy dañuy dañuy ñëw fi béréb génn baa ma ñëw ñu jokkoon te téléphone ma ne ko waaw ab Ablaye nangama nangam dama ko yox fii léegi-léeg ma gis ku waxtaan fii benn waxtaankat ci yoon daw attaqué ko di ko song dama lay woo na la xoolal wahabiste ak salafiste yaa ngi boo amee looy attaqué demal ci ñu bàyyi ñii sëñ Touba la ñuy wax bàyyi nit ñi bu leen nu fontoo mënoo leen noo tey wax wax sëñ Touba àdduna adduna ñett ci gën a sonn ku mën a tooñ te doole mën a tooñ ba noppi amoo doole tabe te amoo xaalis am xam-xam ba noppi te moo barke barke sab xol day tàng gone yi toog fii di wax ñu leen jox nangam ñoom jénguñu amuñu nangam ma ne yow jàngal ba say téere jeex waaye mënoo raw suñu Ablaye Diop bi sëriñ bi saaga wu ne lay dégg saaga wu ne lay dégg léegi yow xanaa té junni bu ñu nit may wala oto bu ñu nit may ngay mën a gis kar gi ñuy kar di toj suñuy pare-brise na di bënn suñu pëney wata di kar suñuy doom di leen duma di nu saaga ak di nu di ak dinu santaane ngir nu dee lu ne di xew ci réew mi lépp ñu dinu ko def ah loolu lépp yéen kenn du la naqari danoo amuti ay bokk léegi-léegi suñuy soxna baa suñuy doom sab doom sab taaw day yor sa téléphone na nii ba yàgg seen bàyyam ñu saagu te sëñ Tuubaa tax mu saagu ko waaye xanaa war ngaa sedd xol bu sedd nag baayam toog ci jotaay ñu ne may nañ ko fa dara sa xol sedd war na caa sedd saaga yi nag ni mu méttee ak dóor yi xase waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi seen sëñ jiili ñang moom sëñ jiili kennal ku baax la li nga wax moo nekk ci moom ku bëgg Sëriñ Tuubaa te triché wu ci damay toog ba ba guddi 11h midi minuit ma ne ko sëñ Jili maa ngi ñëw sa kër. Mhm. mu ne ma loo bëgg ma ne ko xam naa comme guddi na mhm. da ngay xool ay piisons rek ñu defar ko toppatoo parce que man sama sëriñ sëñ Mourou Makhtar moo ma waxoon ne ma na del sol lu rafet ndax nitu aja nga tey moytu lu xeeñ lu naqari ak fu lëndëm mm, ak fu xat ak fu tàng yooyu sëñ bi dama ko tere sama sëñ Modou waaw damaa tere yooyu ah waaw waaw yooyu sama sëriñ ma ko tere moo tax bu guddee bu waxee dama koy wax picc wala nangam boo ñëwee laal ci ba noppi booy dem mu gungewaale la te moom bu lay jox dara kenn du ko xam day jekki jox jox la dara te yàlla tax looloo tax ñu di ko wax ku bëgg Sëriñ Tuubaa mu jaral ko jooy lii nga wax ni am na benn bis dañoo dajee ci ay ay jàng mu sol jasineer bu rafet te gaañ am nañuy jasineer nag wax dëgg yàlla ah mu simmi bu ma jox la na jiit léegi yow na nañ dama jox la tubooy jàng la ca des sëñ Touba jaral na ko lu ne waaw ah, kon nag sëñ Afia sëñ Jili noo ngi lay sañ sëñ Mamadou Mee impôt et domaine la nekk taxaw ci réew mi am ci yitte am ci taxawaay waaye bu ku bëgg sëñ Touba la ko xam ne day daw ci sa ginnaaw ngir jëmmi sëriñ Touba te xam naa ko bàyyi bàyyi Cheikh mi xam na ko mu nekk koo xam ne ku ku ñu respecté la te man damay wax toujours ne néew na lu may wax nit sax joxe na def nangam wala nangam. waaye li koy def mooy ginnaaw ñiy caaxaan ah <laughs> damay fan yi damay seetaan ci télévision yi benn télé boo xam ne am na koo xam ne day ñëw rek di wax yàlla bu ko neexoon loolu lay wax maanaam dama ko seetaan di reetaan di ma ne est-ce que kii xam na ne maa ngi koy reetaan léegi ma ne li tax affaire bi man ma kontaan ci mooy ginnaaw boo nee sëñ Touba nee na ñuy kaas am ku waxut dara nag ne fee di yuuxoo ko si mim ñu di ko may xel sa xol di jeex ginnaaw da ngay bañ di ko def sëñ Abdou Lahad mi dama koy waxtaan moom na ko Cheikh Bamba mais ak sëñ Thierno yaakaar naa waxtaan nañ ko par téléphone ma ne ko man ñu leen jàpp la ndax ñoom li ñuy régler situation bi dafa sérieux waxoon naa ko fi ci benn conférence bi yàgg may leen am na ñooñ boo saagantee ñoom da koy yàq da nga koy bàyyi ba jàpp ko hors antenne indi conteneur yu bari sëf ko ko na tekk ak moom boo leen xëyee ngeen àndox dem waaye kilifa sëñ ma Samba Kane yi seen i maam yéen ñii jeex ci Serigne Touba moo ay saagante ak a waxante lu ñaaw kon li tax may mujjël yi mooy damay daaneel sama kàddu Baay Cheikh Balla noo ngi lay sant bu baax alaaji mbakk yu fay noo ngi koy sant alaaji mbakk yu moom fi mu yam ak noonu fi mu yam noonu ci teraanga mënee su ko mënee su ko weesu ah tey jii kenn ku ci nan oto bi mu la jox mënoo koo fexe ba jënd bu toll noonu loolu koy doy na doy na mënagoo koo jënd joxagul la bu ñu toll kon loolu doy na teraanga te bi mu la koy jox am na ñoo xam dañ doon kaas waruñu leen koo jox jàngkat yi fekk dañ noonu ñii lañ ko war a jox parce que ñun campagne bi noo koy def te kuy jébbalu doo jébbalu ci ñun fi ne bu nit doon jébbalu fii léegi du jébbalu ci ñun te ñun nooy def campagne bi wane ne sëñ Tuubaa amul morom sa boo ñëwee nga man sëñ Seex mi laay jébbalu sëñ Habib laay jébbalu sëñ ah te def campagne bi di ci daj lu ne kon yelloo nañ la kon sëñ bakk yu fay noo ngi koy sant bu baax noo koy ñaanal yàlla na ko yàlla jàppale gërëm waa télévision bi Alaaji Cheikh Jibril Ndaw kasaalika moom nii rek lañ yàgg a doxe man nag euh, man na maa jéggulu toog euh, daaneel sama kàddu ay sama xol la sëñ am yow ku baax nga ndax conférencier yi conférencier ngi ni ñëpp waxtaan kan nga ni ñëpp nit ñi bëgg nañ la encore waaye lii nga boole fii tey bu la neexoon doo ko def xam ma man yéen weer wu jot bët wala bët bu set yéenay def seen kenn du Sëñ Tuubaa mais tey bi mu amee nga ne ñëwal ñu bokk toog jataayoo ko te damay gis toujours bu ñu tuddee tey bu newoon tey nit tudd na Saliou Samb wala nit tudd na tey Mamor Mbaye nga jóg taxaw di ko défendre ah lu waaye wax ci lu baax nga jóg ànd loolu nag wàññiwul dara ku ne na nga mel na nga mel fay na ko sa baax gu rëy gii sa tedd nga jiire waaye nangam wii leneen lii te yàlla noppi na ci nit ñi kenn ku ne la nga war a am programmeel na la ko ba nopp waaye lii dafa rafet lii nga dajale fii tey loolu rek la ko may gis naa fi ñoo xam ne man maa ngi door a bokk ak ñoom ay plateau que ñu dajaloon sëñ Maam Mor mii amul jot ñeneen kilifa yi fi nekk amul jot sama waajee làqatukat la ñii fi nekk ñëpp waaye tey jikko jii nga wone moo tax ñëpp ñëw man nag mënta signalé gauche di jàdd di jàdd droite waaw ah, makka lañ fasante coloré jàppante ko ci diggante suñu diggante te la lépp yàlla tax man nag fas yéene wu ma waxal kenn lu ma gëmul dégg nga lu ma la wax ñu wéet buñ toogee ci bitti dama la koy wax jéemu maa dirise ci dara xalaatuma ko sama yónniwut ci kenn xaw ma ci kenn lu bon déglu wu ma mbirum kenn laaju ma mbirum kenn wootante wu may téléphone whatsappante ma yo gaaram palaasante ma man daal lu waaye am ci sëñ Tuubaa di ko wax mooy lu baax wax ma moo mën a jàllale jàllale boo ko mënul toogal ma toog bu ma wax ayib bi kenn ndax maa ëpp ñëpp ayib ni ma gàtte laa bëri ayib kon du ma lijjanti ayib bi kenn jërë ngeen jërëjëf euh, sëñ Gana euh, waxtaan wi am na solo dañoo dañoo jóge fii ci bis bi jëm Màkka mu ne ma du ma fasanteeg yow kóllëre Sénégal sama xarit nga nag waaye kóllëre gi ma bëgg a fas dama bëgg ba ca barabu yonent bi laa koy fase ñu julli suñu ñaar ràkk jàng li ñuy jàng ba jóg taxaw mu téye sama loxo ne ma la ma la waxoon lay feddali fi ñu toog di ko di ko fas sëtu sëñ Tuubaa romb mu ne ko waaw koy sëñ bi Mbàkke kaay seere ñu waaw loolu muy nit ku baax koo xam ne li ma sañ ci moom moom laa sañ ci sëñ Saliou sàmb moom laa sañ ci sëñ Abdoulaye Diop Bichri su ma jëlee sama téléphone su ma leen woowee ne leen nangam dañ naan yow waxal ni nga ko bëggee rek ñu defee ko noonu loolu nag ak boole la te yéen ay soldaar ngeen su gisee ñuy am fierté ci yéen mooy ay soldaar soldaar yi mooy sëñ Touba ko amul fit doo ànd ak moom gis nga boo ñàkkee fit jërul sax ngay génn bay boo nga toog booy ànd ak moom da ngay am fit ndax moom bi mu li mu li mu sóoru fit dëgg ko tax mu yeggale ko kon nag ñu ngi lay gërëm ci sa woyof ak sa teewaay ci biir jataay bi wax naa léegi am na ñuy laajaat euh, li nga xam ne mooy numéro bi ñuy duggee ci group kenn du sëriñ bi 77 la 533 67 49 533 67 49 sëñ Alaaji Njaay Seex Ndindi nee na mi ngi leen di gërëm nee mi ngi topp jataay bi sëñ Maxtaar sëñ Maxtaar ñi ngi lay ziyaare bu baax a baax Mbàkke ak euh, sëñ Alaaji Buso sëñ euh, bu Buso Maxtaar nee na mi ngi leen di topp ak soxna Xayraat Mbàkke moom sëñ Modou Kara ak borom baax euh, mi nga xam ne mooy taawu général Cheikh Amadou Kara Mbacké Noreyni soxna Awa Sarr ma ca Amérique mi ngi leen di topp bu baax nee na mi ngi leen di ziare soxna Saalihat nee na bég na lool ci seen jataay bi xolam sedd naa yóbbante bi da nga ca yegg sëñ Gànna yaag sëñ Ablaye soxna Aji Diop ma nga ca Floride nee na na leen 10 mètres jasneer yéen ñaar addi sëñ Touba euh, nee na bég na lool xolam sedd na moo waay juram ñoom ñëpp ñu kontaan nañ bu baax a baax ci jataay bi euh, sëñ Ablaye damay ñëw ci yow sëñ Baye Ndiaye ministre d'état dafa waroon a bokk ci biir jataay bi tey waaye yitte ak ni jamono bi demee waaye day dugg ci biir émission bi laajal sëñ Ablaye mi miraaran di wax ne man sëñ Touba ci yéen laa koy jàppe ndax ndaw ñi mel ni yéen keneen ku ko amoon ndaw ñooñu ci leneen la ñuy ne waaye sëñ Touba ndaw ñi mu yor ci sëñ Touba rek la ñuy ne amuñu beneen yëg-yëg ñu ngi koy ziare bu baax a baax moo ko madame Ndiaye soxna Seynabou Thiam nga xam bëgg sëñ Touba rek la def sëñ bay day day wax ci sëñ tubaa bay lay lox mos na dugg génn jëwriñ dugg daal di ne ma man moom moo tax ma dugg ndax li tax ma dugg mooy ki dugg kan la ministre d'état la ñu ngi koy ziare bu baax di ko gërëm sëñ Mamor Mbaye yoonu géej gi nee na mi ngi topp jataay bi bég na lool jëm na dugg ba sonn moo ko euh, ki nga xam ne ni mooy sëñ Moustapha ak sëñ Cheikh Anta Samb sëñ Ablaye dama lay dugale fa balaa sëñ Cheikh Ngounda di barkeeluwaat su ko defee Baye Cheikh mën a dugg foofu indi li nga xam mooy kaddu yi euh, sëñ Thierno waaw baax na kon su ko defee sëñ Cheikh Alaaji Cheikh Diop ñu mën a tëj ndax leen mu yegg fi nga xam fa la ñuy tëjee li nga xam ne ni mooy jataay bi ndax sañ Bàcc war na yëkkati ay kaddu jëmale ko ci euh, groupe bi ak ni muy demee sëñ Ablaye fi sëñ Gana daaneel rek fa laa lay indee mës naa la dégg nga wax ni sëriñ bi dafay wax ci day woy bay woy ci euh, baaraxlit berekle mm-hmm. nan la demee loolu waa kay jërëjëf sëñ Hamidou jërëjëf alxaaji Gana Messere yàlla yàlla yàggal taxawaay bi waxtaan wi neex na daaneel nga murit yëpp ñëpp sunu xol sedd yàlla na yàgg wax ji mooy sëñ Ibrahima Diop almasar yi dafa tontu ñettaay bépp dafa wax ni fa kullu matxin baliigin qiila fi rajulin fa anta saaxibuhu yaa yuha rajulu bépp tagg boo tagg nitu yàlla wépp tagg boo wax ci yenant bépp tagg boo wax ci ku fi mës ñëw def kéemtaan lu tagg wa jote jote kooko moomu ko sëriñ tuubaay borom fa kullu matxin baliigin qiila fi rajulin fa anta saaxibuhu yaa ayuha rajul loo taggee rek nitu yàlla sëñ Ibrahima Diop Masar nee na da nga abale rek waaye boroom mooy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul mu wax yow mi nar a sonn yow miy gëstu yow miy jàng téere yi yow miy tukki yow miy wëreelu ngir xooli ku mel ni Serigne Touba li ko yàlla may kaay ma teel laa jox bunt sëñ Ibrahima Diop Almasari nee na adamta nafsaka fii ma lasta tudrikuhu wadaa umruka fii hëmmin wa fi nakadi law tirta na sama wal ardi mujtahidan fii nayli maa xussa tóola dëhri lam tajidi yaa ne atabta nafsaka sonnal nga sa bopp yow waddaa umruka sa dund tam nar naa sànk ci problème fii hëmmin wa fi nakadi lu la nar teg problème bi ngir bëgg a xam mayu sëñ Tuubaa ki mu ne law tirta boo doon naaw bay na sama wal ardi ci diggante suuf ak asamaan mujtahidan ngay farlu ci naaw gi fu ne nga wër ko pour xool li sëñ Tuuba mu ni tóol a dëhri lam taji di boroon jeexal dund doo fekk ku am li sëriñ Tuuba amee kii kenn rek la ci yàlla def wax na ko léegi hors série la hors pair sëriñ Tuuba benn képp la ci yàlla am amut ñaar mbokk yi sëriñ Mbay Jaxate dafa wax ni la dee fi wut lépp a ngi tey jii ñu denc fi yow la dee fi wut nekkatul màkkaa ki faasa ki xaay fu as njariñ ma sa nekk ak barke jug na fa tey ay xotta des yow mi bàmba yaa di nga lu man di xew noo ngi lay yaakaar ak ay bége nun sarax nu làqu nu yaa gën ay nijaay gën i baay yaa ëpp julli gu baax ak wird ëpp tasab gën fopp koo rek aj ak dem jàkka yaay sunu waay te kooku du gone maam Xaadima Jaxate Kala moo ko jur 1875 la gane àdduna génn 1948 bi muy wàcc liggéey ci xuru Mbàkke fekk na mu dénkaane juróom ñaari mbubbi Serigne Touba lañ ko solal robaale koog moom mag ñi seen naafili ju bari ja seen jàng alquran ju bari ja seen roy sunna ju bari ja seen bëgg lu baax lu bari lañ daan def li ñu gën a toyloo ci seen dund mooy morsob xaadimu rasul si Ahmadou Bamba kon war nañ ñu yoon ni yàlla lépp la jël jox ko Serigne Touba mu am bis mu woo Serigne Moussa Ka te ay kéemtaani sëriñ Touba lañu ndax ñoom ñoo jàngale Serigne bi ba dootuñu ci réer mu woo sëriñ Moussa Ka ni ko dama bëgg man ak yow ñu jamoo moom la ñuy wax ci mbedd mi duyoo dama bëgg bayit bu ma woy sëriñ Touba na woy bayit tontu ma ñu woy sunu waa boo xoolee woy ya dañ caa kennal sëriñ Touba lii nu woote. sëñ Mbay Jaxate ubbi woy wa dani ma tagg Bàmba ak waxi Bàmba ak jëfi Bàmba ak gaayi Bàmba mhm. sëñ Musaa Ka ni ko ak doomi Bàmba ak sëti Bàmba ak mbokki Bàmba ak ñoñu Bàmba sëñ Mbay Jaxate jëlaat ni ko Bàmba di kenn xanaa loolu du kenn Bàmba di kenn waxam di jenn jëfam di jenn kenn du Bàmba sëñ Musaa Ka jëlaat ni ko gisunu nawleem déggunu nawleem koo gis da ko yéem xalaase Bamba sëñ bay Jaxate jëlaat ni ko gisunu fenn déggunu fenn xamunu fenn ku niru Bamba sëñ Musaa Ka ni ko amul ca diiwaan amul ca daymaan xadimu àddinaan laa tudde Bamba sëñ Mbay Jaxate jëlaat ni ko gisunu kenn xamunu kenn yëgunu kenn ku niru Bamba sëriñ Musaa Ka ni ko Bamba amul maas waree fu koo raas moo raw fii ba faas sanga di bamba sëñ Baye jaxate jëlaat ni ku bamba jàngal nga mën a jàngal képp ku dikkul ziyaare bamba sëñ Moussa Ka ni ko maa ngi di taalif te jàng maw liif te yeewu nas lëf ngir leeri bamba sëñ Baye jaxate jëlaat ni ko ku àndul ak moom dara la dul moom yàlla bëggul moom ku dëddu bamba sëñ Moussa ni ko ku àndul ak moom di dàngu ciy ruum di mus mbëttëg mbuum tey ñee ku bàmba kon li nu ragal a wax ñun ci pénc mi mi ñu gën a màndi ci yàlla gën koo xam ñoom wax nañ ko sëriñ Tuuba sëriñ beet waxal na ko boppam laqad sabaqtu fala yaxfa ala ahadin illa ala ahadin asqaahu mawla xaadim rasul nee na maa jiitu xam nga laam gi laamu xas mu la dafa waat xat gi xaduk tàqiiqi la ñu dégg grammaire xam nañ luy xaddu taqdiir xad day dox ci ñeenti mbir am na xaddu taksiir am na xaddu taqrib am na xaddu taqliil am na xaddu taqiiq alxaq xaddu taqiiq la employé sëñ Tuubaa dafa jog ci li muy wax jàkkaarloog ñépp yee leen ci boppam laqad sabbaxtu maa jiitu man sëriñ Tuubaa falaa yaxfa nëbbuwul ala ahadin ci benn mbindéef illaa ala ahadin asqaahu mawlaahu lu dul ko war a dem safara rek mooy bañ sama jiitu waaye ku war a dem àjjana te nangu li yàlla dogal xam nga ni maa jiitu baana li kulli man lahu wilaaya kaw nii li xaaliqil baraaya aaya leer na ci képp ku ñu am na wilaaya kuy wàllu yi nangu na sama jiitu moo tax wàllu yépp ni ko yow am na ku ni ko wa man yusaawiika wal asyaaqa martabatan fa laysa yadri min ayna tookalul katifu xustal xisaal allati tasmoo rijaalu biha lakinnahu katafaaka al ilmu wa sarafu gànnaar la dëkk dëkkul sax Sénégal dañu ko yow Cheikh Ahmadou Bamba ku lay tëkkale ak benn nitu yàlla xamul fi mu jëm dafa réer ku lay dendale ak kenn dafa réer ni ko lu ñuy tagge nitu yàlla yépp làq nga yépp toog ci waaye njub képp la doy ak ragal yàlla ak topp sa borom yow ku mel ni yow amul Cheikh sàmba Diarra Mbaye ñëw bis ni ko xam naa ci say noon juróom-ñaar yooyu dinaa ko fi lim ngir gaa yi xam ko bu baax ñoog naari gànnaaraa sëriñ Tuubaa ni ko yu mu doon mu ni ko soytaane àdduna duniyaa bànneex bakkan alal bi mu doon reggaay nelaw yii de kit nga ak ñoom fa gànnaaraa sëñ Tuubaa muuñ ni ko luy kit mu ne ko mooy amuñu ci yow wàll amoo ci ñoom wàll mu ne ko bu ma kenn doon xam-xam nga ma xoolal yii ma wan ginnaaw ku ko ma sa ginnaaw àdduna nërmel ñépp sëriñ Tuubaa ni not naa àdduna sànni ca sama ginnaaw soxlaa lu ma àdduna dara ku dul sëriñ Tuubaa lijjantee ko àdduna bakkan a daaneel ñëpp Serigne Touba ni not naa sama bakkan malaktu nas yàlla wax wa zahzahtu laayin damaa not sama bakkan dàq seytaane mënul dara sama mbooloo xaadimu rasul nee na sama mbooloo seytaane du ca tab fi mu ne fii seytaane amu fi wàll baa al laayinu yaa isan ka xirdi li xayri zaati baakiyan bi tardi saaqal laayinu li siwa zaati alxafiis yafiru min tafakkurin ma alxafiis nee na sama mbooloo seytaane du ci dugg reggaaya jaaxal ñëpp sëriñ Touba wan ginnaaw ay lekk mag ñi mu yar sax boo jëlee sëñ Mbàkke Buso daana ko tëj cib néeg di ko tarbiya sëñ Mbàkke Buso mujj li mu doon am kàttan daa dem ba faible ngir ñàkk lekk ku tax ak sëñ Touba lekk dootoo dootoo ko toppatoo nelaw li gën a neex mu wan ko ginnaaw soxlawuli nelaw moo tax sëñ Moussa Ka ni melooy Bàmbaa ngii waaju xamul na déglu te roy roy luy jikkoom moo xam boroomam day jox aji laaj di dimbali ay dëkkaaleem du tooñ ca ku tooñ mu jékkal ngir boromam day may ku ko bañ di woo ku ko foñ di neexal safoo ku ko soof ku dul kuy mooy borom day faj aajoo ki xam liy mbóot di génne guru ci tuskara jox boromam day fekk ku ñëpp xeeboon ay cosaanam mu fal ko ba ñëpp faale ko mook boromam day fekk ku mel ni man jàngul liggéeyul mu seexal ko sol ko xam-xam ciy boromam melooy biiree melooy kaw yaag melooy biiree dëppoo nañu du déglu bon du déglu kutul borooma du mooy ngir tiit du bookarim dég lu mu rëy rëy du bëgg du bañ du faale kutul boromam du jàq du rët du jaaxle du fàtte yonen mësta tawat lu xew ci kutul boroomam du daw noon du yox yoxi ngir pexem nit du sukkandikoo ci mbamb ku dul boroomam lu mbir rëy rëy da koy faf dolli ak ngëm du yoqi du daw day mbir mu farak boroomam du wopp ba tax mu wàññi jaamu yàlla du tiis ba tax mu war faratay boroomam du dégg nodd mbaa kàbbar te téewul lu taw taw ak lu liw liw ci boroomam du tabje ba tiim du wuute mësul di maamum du gàpparu bis du wéeru julil boromam du yeexal wenn waxtu te mës fay faat la koy wax raw na montar te mooy boromam loolu amul ci islam ba mu débuté ak léegi ku masa boole yooyu jikko ku lu Seex Ahmadou Bamba Xaadimu tayit lii nu mel ci Serigne Touba noo yay gis nga Serigne Touba ku am dara ci loo xam ci yàlla danga xam ni ko yàlla jiitale daa am fii benn waa joo xam ni bawol bawol bu mel ni man rek 18 jot mu dikk ci cathédralu Dakar bii taxaw fii tuur ndox bi muy saw di tuur ndox ci miiru cathédrale bi nekkete labbe baa ngi sëpp di ko xool. labbe bi di ko xool ba mu yàgg mu ni ko hee waa ji ni xeneet mu ni ko fii tuurukaay ndox la mu ni ko déedéet mu ni ko ni ngeen fonke seen jumaa ni la ñu fonke sunu fii ñun catholique yi lu tax nga tuur fii ndox mu ni ko damaa juum rek te amu fu ma dugg mu ni ko tonnil ba mu set xam nga murit ni muy oyofe rek waa ji ko léegi allah daal di jël loxo yi nar koo tonni labbe bi ni ko non saw sobe la bu ko laal ak sa loxo demal nga wuti ndox sotti ko ci ba pare mu dem jënd muus mbuusu ndox sotti ko ci kaw ngaanuwaay gi bëgg koo an labbe bi ni ko déedéet c'est pas utile léegi maasale ko nga dem bu ëllëgee bu mu la dal na nga fokki fonke sa bërëbu jaamu yàlla lañ fonke fii fii la ñu am dégg nga ko mu ni ko man kay juum naa maa ngi lay jégguluwaat labbe bi reetaan ni ko xanaa murit nga fii 18 ci Dakar xanaa murit nga mu ne ko waaw effectivement murit laa mu ne ko ndax xam ngeen Cheikh Ahmadou Bamba ku mu doon mu ne ko ñun ñépp ko gëm te xamuñu li mu doon mu reetaan ne ko dinaa la ci dimbali dégg nga olof mu ne ko waaw mu ne ko olof li muy wax tëj fël ndax xam nga ko mu ne ko daanaa ko gis ci mag ñi ñu koy wax ni mooy ni jinax di def jinax day gase fii dem fu sori mu génne fa fëll fa looloy tëj fël mu reetaan ne ko effectivement yenentu yàlla Muhammad le prophète islamique dafa gase war a fëll senegal di Serigne Touba ñu réere lii làbbee ko wax 18h fii ci Dakar wax ko murit kon ñi mus dara ci Serigne Touba xam nañ ñi amut moroom moom it waxal na ko boppam ñu xool njabooti boppam njabootu boppam la ko dalee ci sëñ Modou Moustapha ba ci Cheikh Mouhamadoul Mourtada doo ci dégg kenn di wax sama baay ñoom ñëpp taalibe lañ doon ci moom ku ciy wax dalay wax ne la sëriñ bi rek bu tuddee turam ñaari yoon tuuri xéewal gis nañ ko ci sëriñ Saliou ñooñu gën kennal sëriñ Touba lii ñuy def di ko ragal a def sëriñ Touba kenn la kenn la ci aspect yépp yoo jël amul ci yërmande ji mu làmbool jaam ñi ko mas a def wax ngeen ko léegi ci bayit yi xam nga irham jami al wara mindee fi wax te boo delloo ci xikmatu Cheikhil Xadim xam nga waxul law alima al sénégaliyuun waxul lool de law alima al sénégaliyuun mënoon na ko wax bu sénégalais yi xamoon maahuna la baadiru ila talabihi waxul lool dañ law alima naas bu nit ñi xamoon li ci man sëriñ Touba génnewul kenn koy nit te yàlla sàkk la sa bopp bi jëm kaw say tànk jëm suuf su ngeen xamoon li ci man da ngeen di daw di ko wut si waaye réere gu ngeen ko réere moo tax ngeen di dem feneen fu mu nekkul di ko fa wuti kon wan nañu ni li ñuy soxla ci teraagay àdduna ak àllaaxira sëñ bee ko moo tax sëriñ Baye jaxati ni ngëneeli àdduna ak àllaaxiraa ngi fi yow ku bëgg a jiituy moroomam te mu fekk si la kuy kër-këree ka wutuk mbaaxit ci waaju la mooy am ti la muy kër-këree kay wut te wuy siwu la yaa woote ngir yàlla ñun ñoo ngi ku gànt torox te yeggatil ba xolam sedd te nuy siwu la woote la woote ku dul dem naari sawara mujj ni hoo ba mel ni un waa de kuy dem naari dégluwu la wàccal ka jëm naari muy tëx tëx lu naan duma gëm sëriñ bi ngir li mu xam xam naa ko ngir gëmu la te yow ku lay weddi tey sax ak ku lay gëm a tànnee fi waa penku ak waa soowu topp na la boroomi daaraa la fi raamal ak taxanal sa diina li wér na ku koy linkaar itam safu la boroomi daar ñoo la fi raam akay ay taxanal xoolal sëñ Mëndu Mbe Xabbaan du rakki sëriñ Tuubaa bokk ak moom benn maam looy wax Seydou Mbàkke Sayid Sayer Soxna Buso maam Maara Mbàkke ni sëriñ Tuubaa maam Mor Anta maam Balla Aysa maam Maaram sëriñ Tuubaa maam Mari Mariyaama Buso maam Jaara Buso sëñ Ahmadou Soxna Bousso Mbàkke maam maaram fépp la bokk ak sëñ Mandumbe sëñ Mandumbe tarbiyewu ci sëriñ Touba 52 ans mu takk ko laxasaayam mësta dellu ginnaaw benn bërët la ko daw lu sëriñ bi bëgg mu jox ko ko du calculer jox ko léppam mel nit jaamam jaay juddu baat lépp dem na ba ne ak a neexoon ma sant Fofana ba du ma xool sant wi ngir liggéeyal sëriñ Touba kii na nanu yoon sëñ Mbàkke Bousso lu mu doon réew mi ku ko raw yeewoowul ci réewum senegal sëñ Mbàkke Buso dëgg la sëriñ waxuma sëriñ Tuubaa la mu ko wax fa minni ilaa man maala qalbi li luqyaahu habibi anisi man radina sajayaahu sëñ Tuubaa gërëm na ko waaye naar bi ñuy woy sëñ Mbàkke Buso am na ku ni ko ilaa sayyidin xallaahu rabbul wara tifla wa xallaahu bil aadaabi ajmaiha kuxla wa sayarahu bahran muhitan bi kulli ma faxaarun wa badran fi samail ola yajla imaamil huda bahril ulumi lazi doy bi mbàkke bu sël mamduhi bay nal waraakullaa muy raamal sëriñ tuubaa te mag ñépp maase ni sëñ mbàkke bu so ku ko gën a dégg fiq amul ku ko gën a ragal yàlla amut muy mbokk sëriñ tuubaa sëñ Musaa Ka nee na sëriñ bi day day mbokkam tadib xaritam di wéttalam di àndandoom di waayam xarit dalay xaral ci wàllam ni la am wéttal dalay wéttali foo fi mën a jëm sëriñ bi yor na jox ko yar na jox ko jur na jox ko fab doomam jox ko loolu mu dëxëñ ci woy wow sëñ Mbàkke Buso sëriñ Tuubaa jël na doomam may sëñ Mbàkke Buso muy soxna Moomi Mbàkke sëriñ Tuubaa yar na ci këram may sëñ Mbàkke Buso muy soxna Absa Aydara sëriñ Tuubaa jël na doomam may doomi sëñ Mbàkke Buso muy soxna Xadijatu mi bokk sëñ Abdul Xaadir lépp ak soxna May Kubra mu may ko sëñ Asan Buso ca Xadaa Serigne Touba yor na yeewi jox sëñ Mbàkke so muy soxna Faati Asan Jóob fi mu egg ak moom kenn mësu fa sëriñ Serigne bu so di ko raamal di déglu ndigalam di wax ni moo yar sunu xol yi moo nu tàggat ku dul Serigne Touba mënatul laa yëg fi mu jaar ak Cheikh Ibra Fall fi mu jaar ak bàyyu yoon wi ku bañ jàng ci moom taalibe doo defaru ki dimbali ñépp sëriñ Ahmadou jaw Paxa dafa nuy si sëriñ Touba yoor yor ñëw bay toog sëriñ Touba ne ko Ahmadou Diaw mu ni mbakke mu ne ko bul toog foofu saytaane fi toogoon di wax ak man te dama laa gërëm bëgguma nga toog ci place bu saytaane toogoon sëñ Ahmadou Diaw Paxa ni ñokket ne ko alhamdulilah bi ma àndeek sëriñ bu xàmmee place su saytaane di ma ko moytuloo daal di toog nee sëriñ bi ni ko seytaane yàgg na fi tey fexe na ba may naa ko ñett ci sama mbooloo nee na safara lay teeri jeeg ñoom. sëñ Ahmadu Jaw baxa ko loolu mat naa xam kat Mbàkke ñu mu doon ñoo ko may mu ne may naa ko jigéen ju ni man la yaakaar te nanguut a sëy may naa ko mag mu ne man la yaakaar te nanguut a jaamu yàlla may naa ko ndaw lu ni man la yaakaar te nanguut a liggéey nee na seytaan nee na iblis nee na day dem ak ñoom ba biir sawara mu tàbbal leen fa sëñ Ahmadu Jaw baxa ni ko Mbàkke dangay ngay mag moo tax kenn mënu laa yedd waaye kon de man dinaa wax ak yow mu ne ko yaa wuutu yanant bi yaa war a dimbali ñëpp ëllëg yow la yanant bi dénk lépp te ëllëg soytaane warta am ndam ci kanamu yanant bi kon bu yanant bi demee dénk la jaam ñi te ëllëg ñëpp yow la ñuy àndal mag ndaw góor jigéen soo ko jëlee baxoog soytaane mu tàbbal leen safara ëllëg soytaane taxaw di damu ci wetu yanant bi yanant bi di sëgg warta am te yaay yaay yaa wuute yanant bi mbàkke soo ma tàgg woon doo ko may sëñ Tuubaa ni bërët ni ko wax nga dëgg Ahmada Jaw Paxa xaar ma jéem koo dabu ci ubbi buntam fatu ci biir ab biir mu génn moom xaadima rasul ne ko waaw góor Ahmadu Jaw def nañu ay yitte ba nangu nañ li ñu joxoon saytaane dàqi naa ko ba sonn waaye damaa far yónni Ibra Fall moo gën a gaaw buntu gabon la ko nangoo jox na ma li ma ko joxoon kookoy bunt yoon wi loolu tax ma ma saña wax lool xool leen ni mu àndeek sëriñ Tuubaa lu sëriñ bi digle def na ko lu sëñ bi tere mësta buur jëm ca lu mu yor jox na ko Seexul Xaddim defu ko moroom defu ko nawle te rëy ab juddu lool xeeb juddam toog ci suuf di ko raamal da ngeen gis ku mel ni Cerno ndax Cerno daa am ku mel ni moom nga xam ni bi ko sëñ Ibrahima Diop Masar di misaal dafa wax ni ku mel ni Cerno amul dafa joxoñ Cerno ni ko man jaara Cheikh ya Ibrahima faati yaraa min almakarimi maa la fil bilaadi yura man xalla dayfan ladayhi naala matlabuhu min kulli maa yustahi min tayibaati qira wa man ataahu li ilmin wa tilaabi hudan aw li nadan yalxa baxran saara musdaxira ixwaanu cheikhi xadimil mustafa kubara lakinnahu bi tifaqin akbarul kubara fa lasta talqaahu illa daafi an dararan aw qaadiyan wataran aw taaliyan soora aw muxiyan sunanan aw muxtiyan minanan aw muxliyan mikanan aw hëdiyan zumara aw saafiyan saqaman aw naatixan xikaman aw jaaliyan zulaman aw mubdiyan busara ni ko xalil awaaqa kullan yaa muridu wa ji ilayhi bi sidqi wa taslimi fiihi tara rusdan bila iwajin diinan bi laa xarajin usnan bi laa samajin xaqan bi xayri mira lépp lu ñuy teg ci nit ku mat insaanul kaamil mu ngeeg borom daarul mooti sëriñ Tuubaa formé ko muy raamal seexul xaddiib ni ko yow rek laa yaakaar xool leen keroog bi mu génnee àdduna moom Cheikh Ahmadou Bamba 1927 ñu denc ko sëtam ba taxaw ci xabroom bi ñu yàgg na ñoo yee ci sëñ Tuubaa kan sëñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma taxaw ci xabru bi ni minni salaamun alal qabri lazi irtakafat fiihi l ula wantahat fiihi nihayaatu ya ashrafa rawdi xad dammamti ashrafana siyaadatan man lahu fi lfadli gaayaatu dammamti joodan wa atlan kaana daydunuhu yusran iza asrat fi dëhri ajaatu sàmmamtu turbaki yaa xawsi wa yaa faraji wa yaa dawaa'i iza tuhdil xatiyaatu yaa man yamunnu bila man nin mataalibuhu mi'saaru fatlika laa tuxsi abyaatu sa un dixième yow Serigne Touba xalima mënu koo bind ndeke li ñuy wax ci sëriñ bi li muy rëy rëy waxataane gu ñu Serigne Touba mbaa xam ngeen loolu un dixième Serigne Touba mënuñu koo wax li mu làmboo moo ëpp li feeñ sëñ Moussa Ka nee na li daanal nit ñi ñuy yuuxu ak a jooy ci Serigne Touba nee na xetu ñam la xet nee na junni yi ñaay la Serigne Touba togg xet geey xeeñ ngénti daanu waaye ñamagu leen ndab li sukkagu leen sëñ Touba sëñ Moussa Ka nee na musagum leen. musandi leen te xam ni mbir mi mbanit la mbanaga gun ko junni ñay la sëñ Tuubaa junni ñay la togg jox nu rendez-vous ëllëg àdduna bii da koo soxlawut moo tax ku ne ci sëriñ Tuubaa mu balaak sag bi lépp nga am ko waaye soxlawut waaye tey ana kan ci turu islaam moo liggéey liggéey boo xam ni moom mi ko liggéey coono la jël il faut ñu wax loolu sëñ Tuubaa coono képp la jël banoog barke bi ñu ciy dund mbiram yaatu tey ba partout dans le monde mbiru sëñ Touba la ñuy waxtaane demal Brésil tay boo taxawee Brésil murit yépp a nga biir Brésil tey demal fu ñuy wax Sao Paulo demal tey fu ñuy wax Bahia demal fu ñuy wax Santos demal fu ñuy wax Grêmio tey Brésil gépp mbirum sëñ Touba ba Brasilia mi capital bi looloo xew Afrique du Sud Pretoria Serigne Bamba lañ fay sant Johannesburg moom lañ fay defal ay daayira ki kër looloo xew Mali diggante Sikasso Jeema Kati Buli Banna Wolofu Bugu Bajalan Badala Bugu Andala këru Serigne Touba moom rek a ko am ci sénégalais bul wax Burkina Faso looloo xew Ouagadougou bul wax Cameroun looloo xaw Douala ak Yaoundé bul wax Cap-Vert looloo xew Praia xew ci île yépp bul wax Arabie Saoudite fi yenant bi tëdd tey màkkatal mukarrama mu ngi waxtaane mbiru sëñ Touba man taxaw naa ci bërëbu yanantu bi di jàng xasida ak sëriñ Touba gu ñuy wax eh, mashrabu saafi fii mathi Mustafa al Kaafi ma koy wax nag ci waxin woow posé maa ndax du ma jàng kat benn naar bi ma déglu ba mu yàgg mu yuux nekk ci xasida gi la dégg ni ma kan moo bind lii ma ne ko Cheikh Ahmadou Bamba mu ne ma xayartu mu ne ma xam naa ko bu baax dégg naa turam dal naa ko abal xasida gi mu xool bi ma ko mu càmbar càmbar moo ma wax ni ci sama dund dajee gu mag ku bind nii ci yenant yàlla Muhammad amul xam nga li ñu dal mooy dañoo complexé te dañoo war a décomplexé suñu bopp journaux yi ñuy jënd ci marché bi di ci def alal ju dul jeex ñii ñu def ay idole di leen roy di leen di leen topp ci lépp di leen suivre ak sëriñ bi ni mu nu libéré sëñ Abdourahman Mbàkke mu sëñ Abdul Quddus dani bidaayatul xayri minhu qul nihayatuhu ilayhi min rabbihi waa lil munibina bidayatul fadli minhu qul nihayatuhu ilayhi min rabbihi xibbil mutiina xubbul xadiimi ala soodaani muftaradun is xarara sooda min riqil mudilina xat xarara sooda min riqin faqaadahumoo lillahi billahi bil maxduumi haadina xat anqaza sooda min jëhlin wa min kasalin bil ilmi wal katxi fanqaadoo ma an quudaa lillaahi min xaadimin xad amma xidmatuhu kullal bilaadi wa kullal xalqi wa diina nee na moo dimbali nit ku ñuul moo ko libere moo ko jox indépendance sëñ Abdul Karim Touré nee na cheyqun ana gaaba fil adaay li mu wax nag ñun ñu ko wax sëñ Abdul Karim Touré nee koo naw mayam nee na koo naw mayam ba andi ko gam-gamle kook Sëriñ Tuubaa mel nga ni ku ma andil jigéen xam ngeen kii bi nga xaalu na nee sëñ Abdou Karim Touré nee na cheyqun ana xaaba fil aadaa'i jaahadahum xataxtawa maxtawa an kam wa an hëti cheyqun lama zahara al islaamu irtafaa wasdaada nuuran wa adlan naafian hëti kon nag man jaa yusaawi cheyquhu bi cheyqi fakaza bi cheyqihi inda cheyqi kan nisa jaati ñu ne ko lu tax mu ne i cheyquhu tuula laylin fil manaami wa cheyqi fi shuhudin rabbin bil munajaati fa qul li ka fal yalus bi cheikh yaza xabla laza masa ayrin daara zaljaati nee na sunu sëriñ rek a génn terrain neutre am nga sëñ Touba bu gañee woon senegal dañ naan sénégalais yi par par loola ak diwa ca jàpp ak diwa def nangam waaye sëñ Abdou Lahad moo waxal boppam ni fam doon ñaane ku ñuy wax amin sax amu fa kon terrain neutre la amee victoire sëñ Touba terrain neutre la dem Gabon sept ans yéen ñëpp xam ngeen sylve équatoriale bu Gabon ni mu am na fa xeetu jaan bu ñuy wax mamba noir am na fa ay xeetu jargoñ yu dangereuse yu fa nekk am na fa xeetu weñ yu ñuy wax les mousses jaezae qui transmettent la maladie du sommeil ci wàllu pluviométrie xam ngeen li ñuy taw Gabon bokkut ak Sénégal climat humide lañu ñu am ñoom fii di climat sec Serigne Touba jóge ci sahélien yi wàcc ci foofu def fa 5 ans ci benn àll di fa tagg yonent bi ko kenn mës ta tagg di fa wéetal yàlla di fa jullee ci njàpp mu tooy du teg cin duñ ko tegal cin du tooñ kenn sàkkul ndimbalu ku dul boroomam xëy suba ni dayqii wa faqrii xat azalahuma maan bil Mustapha man sabqahu laa yujhalu ñibbisi fii 1902 indi victoire pour tous les Sénégalais pour tout le peuple libéré ñëpp jox leen indépendance jox nu islam ju leer fi mu ne ku ku nangulul Serigne Touba amoo benn dalil foo ko teg amul sëñ Moustapha Saliou dani kuy wuti lu gën a wóor sunu waa ji doo ko am wax na dëgg lii yàggul di gaa yi Serigne Touba fii la wootee 27 la ñibbi set daa amagum 100 ans déedéet doomi sëriñ Touba gis nañ ko ba 2007 Serigne Saliou la tudd mu def lu kenn mësta def wax nga ko léegi fukki junni ndonga ak ñaari junni sëriñ Saliou ñetti tonu ceeb par journée sëriñ Saliou ñuy mokkal alquran di bari xam-xam di woy ci arab yaru mokk nangoo liggéey yor société bépp mu ne jox leen ma ndaw ñi ma def ca ñoom la sëriñ ma doon def ca mag ña moo tax sëñ Abdoulaye ja sëñ Abdoulaye Jaxate ma mu bokkaloon jenn daara mu sëñ Amsatu Jaxate ba mu koy woyal moom sëñ Abdoulaye Jaxate mu ne xiyaasul baraaya cheikhu saalihu yuslihu umóoral wara laa yamtari fiihi muflihu mu ni wasiq naa bihi loosoo bihi man yalus bihi yafus bi amaanin laysa naar yuflahu nee na kii xettali mbindeef yëpp ñu ne ko mu ni mooy sëriñ Serigne Saalix loolu leen kenn weranteewu ko ko war a texe mbindeef yëpp la xettali jël leen ci ay tartar yóbbu leen ci teraanga ki ci texe nee na ñun wéeru nañ ci sëriñ Touba weeru leen ci sëñ Touba nee nee na nañ ci sëñ Saaliw wéeru leen ci moom ku wéeru ci sëñ Saaliw kenn du la laab ëllëg gi la sànni biir sawara waaye sëñ Muntaxa mi borom xilaafa ak lii la wax sëriñ Saliou dani ko uhibbuka yaa cheikhi kii dàq jàng ñëpp sëñ sëñ Muntaxa ëpp ñëpp taalibe raw ñëpp bi muy wooy bàyyam sëñ Saliou dani ko uhibbuka yaa cheikhi wa musliha haalina salaahuka min ahlil ilaahi musaahadu wa sulhuka maarufun la dannaasi waatihun xayaatuka islaahun wa dawman tujaahidu masaalihuna fil inqiyaadi li qasdikum wa nasratukum fillahi gaflan tutaaridu wa ma nasmikal bi fii kulli kaidin waxat xustahu fillahi wallahu mujid nee na amul ci nguuru yàlla gi kenn ku umpale sëñ Saaliw moo doon xettali mbindéef yi kon nag la sëñ mu Ka wax laay tëje dani da daan naaw ci jaww moom sëñ Tuubaa ndi njanaaw di xotti di lay asamaaw lu mu wax fa diiwaan ñu ne waaw muy fal di folli ci lu sax day bind guddi du nelaw bu jëmm yépp nee selaw mu dem ci pays bu ne xelaw bu bët sa setee mu dina wax kii ku ko gis sax ku la gis ku gis ku gis waa ja ko gis su ngeen demee ca booba bis mu ramb leen fa kenn torox doomam yi ëpp nañuy sëriñ seexam yi doy nañuy sëriñ ay taalibeem raw nay sëriñ kuy roy na roy ci lii ma wax fu ñuy jëlee te kuy tarbiya ba noppi daal di tarxiya ba noppi daal di tasfiya ba ku mu gërëm dootul torox fu ñu jëlee ti kuy taxliya ba noppi daal di taaliya ba noppi daal di tëhliya ba ku mu gërëm nga ni ax ah, nanu ànd ak sëriñ bi tag gore sëriñ bi rek a fi nekk jërëjëf sëñ Ablaye ñu gërëm ko baax fi mu daaneele mm-hmm. ndax yaakaar naa ne résumé nga mm-hmm. jataay bi mm-hmm. jataayu murit nag danga naan fii lay tàmbalee fii lay yem waaye boo demee ba fa mu bëgg a yem day mel ni fa lay door a tàngee Euh, sëñ alaaji seex jombaay mi dëkk bu sori lay jànga ji boobaak léegi mu ngi toog sañul sax soññee ma bëggoon ñu yeewi ko ndax euh, tey fi tey dafa am lu baree baree bari loo xam ni moom mënatu ko ndax itam maa ngi gis mi ngi ànd ak madame Mbaye ñu di ko ziyaare bu baax a baax a baax sama xarit bële euh, ak mboolem awkat yim àndal sëñ Modou maa ngi koy gis ak gaa yu baax yi ci ginnaawam yëpp kon alaaji dama lay yeewi balaa boobu Euh, jëwriñ damay bàyyi sëñ Cheikh Balla yoxee addiye ji su ko defee ñu door a ñëw ci sañ bàcc dafa am ay diplôme d'honneur yoo xam ne dañ ko defaroon diplôme yi nag li liñ ci groupe bi liggéey def ko ci mooy diplôme bëgg Serigne Touba loolu nag yaakaar naa ne dem na tuuti en or sax lay nekk tiitër dëgg-dëgg mooy ngay dox ñu naan kii daa bëgg sëñ Touba loolu tiitër lay doon waaw waaw sëñ Xaadim Fall mii mu sëñ Saaliw maa ngi koy ziyaare bu baax a baax a baax muy murit baax xam naa ko bu baax sëñ Saliou yar ko defal ko lépp muy ku am cër ci sëriñ bi kon su ko defee eh, soxna Mambé sëñ sëñ Mama sëñ Bàcc da ñuy topp tool diplôme yi ñu distribuer ko dañoo bëggoon joxe ko par cër waaye day gën a jël temps te suñu gaa yee dañoo bëggoon kenn ku ci nekk barkeelu ci donte benn kàddu la ndax ñoom dañuy couleur jataay bi léegi dañ koy tàmbalee rek ci sëriñ Mamor Mbàkke mii moom sëriñ Abi bu moom sëñ Manumbe euh, ñu jox ko da nga koy seetal ñu jox ko Baye Cheikh mu jox ko ko alaaji mbàkk yu nag mi ngi leen di gërëm kàddu yi ma wax léegi ci biir téléphone bi ñëw ma ko wax ci kaw nee na ma nag ma gërëmal Abibu ak Pape Jibril parce que ñoom damay xool reflet ci sama bopp ci ñoom ne leen nag maa ngi leen di ñaanal te dinaa leen jéem jàpp nag ndax man damaa bëgg kuy wax ci sëñ Touba ngay wax li nga yëg ndax sëñ bi moom amul benn école bu ñu koy jàngalee koo laajoon sa bëgg sëñ Touba fa mu ne cee kenn xamu ko koo ko laajoon mun laa fu mu ne ci yow da nga koy yëg di ko sentir rek jekk yaa nga médite mu ñëw ci yow nga bég ni sëñ gaana di wax ak bëgg moom mën naa lu neex mën naa neex waaye am na neex yu dul dem ci bët tubaarkàlla kon loolu yëpp mbëgte la kon sëñ Mamoor joxal ma ko Baye Cheikh mu joxal ñu ko sëñ Mamoor waa jox ko waa jox ko joxal ma ko micro bi sax joxaaleel ma ko mikoro bi léegi sëñ bay Cheikh sëñ Mamoor mii li tax ñu di ko jox diplôme d'honneur bëgg Sëriñ Touba jox ko mu ñëw taxawaay bi muy def bokk na ci mooy ni bëggee sëñ Tuubaa bëgg ñi yëngu ci yoon wi loolu moo waral ñu beral ko ko boole ko ci waa bismillah jox ko boole ko ci la bàcc muy ku am cër ci sëriñ bi sëñ Mor Dàggasi la ñu ngi koy siyaar bu baax eh, su ko defee mi ngi noonu waaw sëñ sëñ sëñ bi jërëjëf Mbàkke bég nañ eh, nataal bi moo ci bokk ci la bokk moom it sëñ Mamor moom moom mi ngi nii mi ngi nii waaw waaw bisimilah waaw bisimilah nañ ko jox Baye Cheikh mu jox ko nañ ma jox dippalu mu bàyyi Cheikh nañ ko jox sëñ Mamor mu joxal ma ko Baye Cheikh Balla Samb moom it sëñ Mamor joxal ma Baye Cheikh mi diplôme am Alaaji Mbàkke daf ñoo booleeg moom mu nekk ci télévision bi suñu diggee bureau dangay ngay jàpp ne suñuy morom ñoo dugg bureau luñ bëgg mu ne def leen nu mu baaxee rek defee leen ko noonu kon euh, moom mii dañ koy gërëm di ko ñaanal daf may wax ne fu seex nekk rek ab sag la ci man ndax fu mu nekk rek luy yëkkati télévision bi ak lu luy luy doxal lépp liggéey bi ca lay xëy ca lay gont soo demee Amérique ci ngay xam la mu liggéey ndax koo nuy mën na leen am ngeen kilifa gu baax goo xam ne defar rek la fi nekk woon kon noo ngi koy gërëm bu baax bii sëñ Mamor ko moom waaye dañuy jox sëñ Mamor diplôme mu Baye Cheikh ak li àndal hmm? ayca am bismillah bi Baye Cheikh ko moom waaw bismillah aha eh, waaw kay sëñ sëñ sëñ Gana Messere nañ ma ko joxal diplôme imam Mohamed Mbaye bëgg sëñ Touba waaw xanaa loolu dañu ngi koy door gis moom taaliba Cheikh bu am diplôme bëgg sëñ Touba <laughs> yéen ay murit ngeen sëñ Ousmane Mbuub yéen ay murit saadix ngeen aywa am na leneen lu muy àndal waaw ayca ayca nañu nañu jël nañu jël nañu jël diplôme mu diplôme mu sëñ Abibou Mbaye nañ ko jox sëñ Cheikh Mbacke mi mu jox ko ko sëñ bu mbay bu RTS diplôme d'honneur bëgg sëñ Tuubaa moom jàpp naa ne <laughs> kéemaan la kéemaan la mu ngi noonu ok mu ngoog sëñ Abibu am na lu muy àndal bisimilah. Euh, diplôme diplôme bi ñuy jox sëriñ Jili Ñang kennal nañ ko jox sëñ bu sa maram mais moo ko fi gën a jege mu jox ko sëriñ Jili Ñang kennal sëñ Abdu Laat wàllu ndeyam di wàllu ñaari maamam ndeyam di baayam baayam ay nijaayam xalifa ndey ja day bawa mbusoo bi ngir ay shérif lañ foo waxa nañ doroobe moom satub sëñ Fallou la di satub sëñ Afé su ko sëñ Blaat bu sa maram joxee yell na nañ ko jox ak li muy àndal mu joxal ñu ko sëñ Jili Ñang kennal Sëriñ Touba. <laughs> ndox mi mii dañ koy jëli moo tax wërta taasu sëñ gànne neen bu kon joxal sëñ Jili mooy sa mbokk euh, su ko defee diplôme bi ñuy jox sëñ gànna mesere maxtaar sëñ gànna diplôme am sëñ Modou Mbacke mii moom sëñ Mamour Dende moo ko koy jox cadre bi ci la bokk. waaw sëñ sëñ euh, sëñ Modou Mbacke moom sëñ Mamour Dende yi moo ko koy jox. bu ma dee <laughs> sa ginnaaw mooy sa ginnaaw ah mooy sa ginnaaw ayca bismillah aywa aywa Cheikh diplôme diplôme diplôme mu ah, sëñ. kii moo dee raasaal mu sëñ. joxal ma delloo. ana mu fële. Saab Super. diplôme mu moom ma jàng ko. diplôme mu sëñ Omar sëñ Thierno Mouride Sadex dañuy sàkk nga joxal ñu ko ko Thierno Mouride Sadex nan nan ko joxal nañ ñu ko joxal diplôme mu danoor bëgg Serigne tubaa ana li muy àndal nan ñu ko joxal. Ah, bismillah dana ñëw yow sa nataal maa ko xam yow maa xam li lay pikir yi yëpp da lay kii nii rek yow xam naa sa rabu ndëpp wi lay sa rabu ndëpp wi xam naa ko ayca nañ ma ko joxal ak li muy àndal bismillah ayca diplôme d'honneur bëgg Serigne Touba Khadim Rasoul bu alaaji Mbàkke yu fay nañ ma ko joxal baay seex Balla Samb alaaji sëñ Cheikh Diom Ba yaa ko koy jox bismillah diplôme d'honneur bu alaaji Mbàkke yu fay bëgg Serigne tubaa nañ ko jox alaaj Seex Joom Baay mu joxal nu ko loolu moom maa la koy jox waaw diplôme diplôme bi waaw bismillah aywa mu gaaw ay ca bismillah diplôme diplôme bi ñuy jox euh, sëñ Pape Djibril Fall sëñ Pape Djibril Fall diplôme am sëñ Abdoulaye Diop Bichri moo koy jox sëñ Pape Djibril Fall diplôme d'honneur bëgg Serigne Touba Khadim Rasoul nañ ko jox ak li muy àndal bismillah sëñ euh, sëñ xaadim taal sëñ xaadim taal borom original bëgg sëriñ tuubaa lool diplôme am nañ ko jox sëñ saaliw sëñ ma mu Gueye mii moo ko koy jox moom sëñ Gana Messere moom moo koy moo ñu koy joxal euh, sëñ Fallou mu tegal ñu ko ci loxol sëriñ xaadim taal sëñ saaliw nañu ko joxal sëñ saaliw mu teg ko ci loxol euh, sëñ xaadim taal sëñ jox ko sëñ Modou mii moo ko koy jox sëñ Modou Gueye ayca sëñ Abdou Lahad bu sa maram diplôme nañ ma ko joxal sëñ fàllu Sey male làmbaay couture mu joxal ma ko ko sëñ Abdou Lahad bu sa maram bismillah bëgg sëriñ Touba lool murid saadix la euh, bismillah ayca bàcc mu gaaw sëñ Fallou ayca jërëjëf diplôme d'honneur sëñ Jibril Ndaw damaa bëgg sëñ Atumaan mi ñëw joxal ma ko ko sëñ Atumaan décorateur bu Touba TV na ñëw joxal ma diplôme bi sëñ Jibril Ndaw directeur des programme bu Touba TV waaw bismillah nañ ma ko joxal sëñ Atumaan mii mooy yor décoration Touba TV moo koy jox sëñ Jibril Ndaw directeur de programme cër rek lañ ci bëgg cër akub sàkk jërëjëf diplôme bi ñu war a jox euh, sëñ Cheikh Ngunda Gueye sëñ Xaadim Fall moo ko koy jox bismillah sëñ Cheikh Ngunda Gueye bismillah hmm? sëñ Xaadim koy jox jërëjëf jërëjëf sëñ xaarim jërëjëf sëñ Cheikh Ngunda Gueye mën a jàng lool tubaarkàlla te yaru sunu xarit di ku baax diplôme d'honneur sëñ Baydi Mbay maître Baydi Mbay dañ ma ko joxal soxna yaay sunu yaay ji soxna Awa Sow mu joxal ma ko soxna Adama Ndiaye mu teg ko ci loxol sëñ Baydi Mbay murit nañ ko jox sunu yaay ji soxna Awa Sow mu joxal nu ko soxna Adama moom ñoom mën nañoo taxaw noonu ñu jël leen noonu comme ça soxna Adama muy jug rek ñu jox leen ko léegi dañu am benn jafe-jafe tuuti ci ñaari diplôme yoo xam ne nii dañ ko tiire ñaari yoon te tur yi génnul muy bu alaaji Cheikh Diom Mbaye bu sëñ Jiili Ba Abdou Khadir Ba Masalik ak bu sëñ Omar Bamba Diop génn na kon nañ ma ndil bu alaaji sëñ seex Diom Mbaye bu alaaji sëñ Cheikh Diom Mbaye nañ ma ko joxal soxna maam Ami Mbàkke Baara mu joxal ma ko sama maam Ami Mbàkke nañ ma ko joxal diplôme bi mu joxal ma ko alaaji sëñ Cheikh Diom Mbaye alaaji bisimilah bisimilah bisimilah bisimilah alaaji nañ ko jox soxna si euh, soxna maam Ami Mbàkke Baara ma ngi ngi nii moom moo nu koy joxal alaaji sëñ Cheikh Diom Mbaye euh, mu nga noonu bismillah euh, diplôme bi ci topp neexal bi ci topp sëñ Jiiri Abdul Xaadir Ba lañ koy jox nañ woo sëñ Caddu Murid Saadix mu joxal nu ko ko waaw mu joxal nu ko neexal yi mi ngi noonu diplôme bi lañuy lañuy la ñuy kii après dañ fexe ba nga jot ci diplôme bi ak yi ciy topp ci ay hidaaya insha allah ci sa barkeb maam sëñ Baara xam naa ne bu ma tuddee soxna maam mi sax su ma waaw waaw waaw jeex la deret ji rek diplôme la mu nga Seex Xaadir Ba majaalis mu ngi noonu jën jili jàmbaar lool waaw ah, diplôme euh, ak addiye ji nga xam moom la jox sëriñ Omar Bamba Diop nañ ma ko joxoon sëñ Mar Seck mu joxal ko mu joxal nu ko sëñ Omar Bamba Diop. sëñ Mar sunu waa ji. waaw. bisimilah sëñ Mar mu ngoog xamante baa ngoog kon nuyoo murit baa ngoog ah, adde addi ji ci topp addi ji ci topp. dañ koy jox soxna Adama Mbacke mu joxal na ko sunu yaay ji soxna Awa Saw nañ ko jox soxna Adama Mbacke mu joxal nu ko sunu yaay soxna Awa Saw waaw ñoom ñaar sax ñoo dend bisimilah mu ngoog sëñ bàcc gaa ñi nee nañ eh, deew mën ngaa taxaw ne la rek su ko defee xëy na ñoom waa Russie dañu bëgg di jël kanam geeg yooyu waaw ay ca waaw mu nga mu ngoog bàcc waaw Mhm. jërëjëf soxna Adama Mbacke moo ko jox sunu yaay ji soxna Awa Saw léegi mu des euh, jeneen addiye joo xam ne nii dañ koy yëkkati ngir sëriñ bi jox ko sëriñ Mbacke Mbodj li tax ñu koy jox Mbacke Mbodj mooy émission bi Mbacke Mbodj moo ko créé tudde ko kenn du sëriñ bi xalaat ma ci man ak sëñ Abdoulaye Diop Bichri teg ko ci sama loxo kon moom it tey yaram wi moo wére di ñëwul moo tax ñu yëkkati addiya daal di koy teg ci loxoom su ko defee dañuy xool eh, eh, sëñ Soumaré ñëwal nga joxal nu ko sëñ Mbàkke Mbocc ndax eh, noonu la Touba TV di demee ñii ngeen gis ñëpp kenn ku ci nekk ak li muy liggéey ci télévision bi waaye équipe bi moo waral ñu bokk doon benn kon nañ ñu ko joxal sëñ Jibril Ndaw a koy jël rek ndax moom waaw Mbàkke ko forme Mbàkke ko formé <laughs> tubaarkàlla am na solo sëñ Mbàkke Mbocc moom lañ ko moom lañ ko moom lañ ko jox jërëjëf kon euh, beneen neexal bi ci topp euh, day cadeau lay doon dañ koy joxal sëñ Alsaan Guèye mi moom euh, li ñu wax léegi mu ñëw tudd li mu doon waaye murit saadix daal la tubaarkàlla sëñ Jiili nag nee maa koy joxal sama bopp bisimilah waaw ku am cër la yàlla la sëñ Tubaa gën a sàmm yokk yokk yëpp ba ca kaw a kaw a kaw a kaw barke Cheikhul <laughs> tubaarkàlla beneen cadeau bi ci topp nañ ma ko joxal sëñ Abibu Mbay mu joxal ma ko sëñ Cheikh seen raaya dafay koo xam ne mook sëñ Ablaay guddeeg bëccëg duñu tàggoo da ko bëgg ngir sëñ Touba wala yu bari ngeen di dégg moom mi moo koy jàng bu ñu def émission day toog di ñu seetaan ba mu jeex mu dem yoon waaw loolu te fees dal xam-xam kon sëñ Abibu bismillah jërëjëf kon su ko defee balaa ñuy tënk ñu jox bàyyi Cheikh rek mu ñëwal ñu ci kàddu yi nga xam ne jëwriñ wax na ko su ko defee ñu mën a yeewi alaaji Cheikh Jombaay mën a euh, ak sëñ Gànna mën a ñëw ci ci li nga xam ne ni mooy résumé li sëñ Omar war a yëkkati ak euh, ceddu murit ak euh, sëñ sëñ Omar nee na ñu jox ceddu <laughs> tubaarkàlla nee na yóbbaale na ko kon kon sëñ sëñ sëñ sëñ Baye Baye Cheikh Balla Samb ñu ñu ñu bàyyi ko kàddu gi waaw bisimilah moo gënoon sax waa nañ jox ceddo après ñu ñëw ci sëñ bàcc bi parce que maa bëgg mu jàllale bàcc defal ndànk rek jërëjëf sëñ ceddo murit bisimilah wa barakaatu micro bi wa barakaatu euh, maa ngi nuyu sunu kilifa gu tedd gi cheikh mouhamadou muntaka di dugal Euh, mbooloo mi yépp ci nuyoo boobu kenn génn ko xam naa ni euh, tey moom soj jàpp na ma ak mbég ci li ma fi jot a dégg lépp ci mbiru sëriñ bi mm-hmm. euh, fekkee jataay bii rek ñuy waxtaane sëriñ tubaa jar na lu ne sëriñ tubaa kenn la koo ko wax mu ne la dangay bokkaale ne ko koo kii nga jàpp ne moom laay méngaleek sëñ bi wala di ko nuróoleeg moom wala di ko tollooleek moom noo ma wax ne noonu lañ demee rek maa la ko gën a xam waaye damay bàyyi ba nga tudd ko ma dëggal ko waaw ndax euh, sëriñ bi mënuñoo nekk ci àddina nit jëf wax ba séytaane te nit mënta jëf wax ba yàlla loolu mënta ne te nit dana jàq joqar bi nit ne ko seytaane piir nga luy tee sëñ Tuubaa nag doon yàlla piir ci jëf ci wax ci lépp ci saayir ak ci baatin naka la demee nag moom ngay lijjanti après waaye léppam mu ngi ci biir boroomam daraam génnul boroomam boo soxoree nag dangay defe ne eh, nit ñi jànguñu eh, tawxiit te jàng nañu ko bu wér waxuñu la ki dalewul fenn yemul fenn waxuñu la kooku dañu la ne am na jaamam boo xam ne topp na ko ba seey ci jëmmam te moom ba mu ko dalee topp ba léegi foo ne ma nga fa balaa sa kàddu di daanu mu weesu ko jàllaat feneen ci boroomam mooy hors sëriñ foo ne sëriñ Touba fala ne balaa sa kàddu di daanu mu jóge fa jàll feneen ci boromam ndax boromam bi muy topp moo daliwul fenn te yemul fenn te sëriñ bi jëlul benn yoon décision tàmbalee fenn ci jëfam ci boromam yem ko fenn ku mënta tële fexe ba sëñ bi dootul jaamu yàlla doo mën a fexe ba dara darajaam du yokku saa su ne fam newoon ci boroomam lam xamoon ci boroomam lam amoon ci boroomam waxtu wa nga koy waxtaane di ko yéem boo xamoon li fi jaar ci diggante bi dangay ngay tuub sax li nga doon jot a wax noonu nag màggug yàlla lay indi kennug yàlla lay indi ak kattanam ak man-manam faw nit ñi di xàmmee da ngay fekk lu dul yàlla nga di ko man loo di ko def loo wala di ko wax loo loolaay bokkaale waaye fekk koo xam ne dafa giñ ne dundam ak yëngoom ak dalam ak léppam jeexal na ko ci rasulullahi sallallahu alayhi nga di ko fa génne di ko yóbbu feneen loola ñàkk xam la ak ñàkk digg ak kiñaan te li sëriñ bi wax ne am na ko nim ko amee royewu ci kenn balaa maa génn sax ci ruq boobu ma nekkoon noonu mu mel ci boroomam lii nag sama yëg-yëgu bopp la yàlla al wujudun wal qidamun summa baqaa al muxaalafatul xalq al qiyaamu bin nafs al yooya mooy tax am na ci moom rëy goo xam ni mënuta wone cofeelam ci rasuulullahi te wàccewul boppam te yàlla kenn jaralu ko mu wàccee boppam ndax dégg nga li may wax loolaa tax mu def ci boppam lu mel ni Serigne Touba ngir wan rasulullahi ni mu ko bëggee bu yonent yépp ràññee sëriñ bi ñëw boof ci wetam bu nu waxee jëfam ji mu jëf ngir jëmmi rasulullahi bu fekkoon ne ñoom ñépp dañoo toogandoog moom ci kaw ñépp dinañ wàcc xam ni kii du moroom misaal la ci diggante sëriñ yonent yi ak yonent bi ëllëg la sëriñ Serigne di wan différence bi mu am ci diggante ku tedd kii ak ñi mu bokkal aw ñu naan ay yonent ñi ci topp ndono lañu ay waliw lañu ak i xutbu ak i nangam sëriñ bi nag loo ne bokk na ko ci yooyu xamoo ko ndax ki ñuy waxtaane bi muy jóge senegal di dem Ndar bi muy dem Ndar di dem ci liggéeyu géej gi booba la wax ne weesu na yii waxee na ko feneen nu gën a yéeme ca Cheikh Issa la ko wax ne ko ba may toll ci baa ak siin laa weesu woon li ñuy ñuy wax paliwaliw yi kon kenn xamul fu mu ne kenn xamul lu mu li wér te wóor daal mooy ku am dara ci yàlla xam nga ne moom kéemaan la xam nga bu noon baana li kulli man lahu wilaaya kaw nii lil baraayaa teg ca dara dinga xam ne loola mën naa doon sëñ bi waaye aaya rek la wax mooy téemaan la foofa la sëriñ bi ne yemut fenn bu ko kenn jéem a yemale fenn ñi ko toppoon nag te gëm ko bi ñu àggee ci xam lenn ci lim doon booleetuñu ko ak lañ jàpp ne kenn mënu koo ñàkk jëfandikoo ba am dara hmm. seen jaamu yàlla ga lañ ko jëkk a jébbal jébbal ko seen ngëm yaak seen pas-pas ya nga xam ne moom lañu ñu waroon a doxale seen diggante ak seen borom Serigne Touba lañ ko jox. parce que xam nañ ne di fi làmbiwaat yàlla feneen akub yonentam coono lay indi te njariñ du ca ne. moo tax ñu jàpp lii murit boo ci dégg mu am fu mu àgg ci sëriñ bi ba tudd loolu xamal ne jariñ la toll na noonu boo ko rusee wax nag dund ko boo ko rusee wax danga ko koo dundul billaahi képp ku dund sëriñ tubaa foo mën a ne ci àddina buñ ko làmbee ci yow rek daj ko. dëgg la Abimou Mbaye xam na ne spécialisé mouridisme amul sisti mu génn ñu ne ko looy def mu ne mouridisme Pape Djibril bu tàmbalee di wax sénégalais yëpp dañuy defe ne daa am ku jël aw yat fas yéene caw réew mi te gone la ci sun biir as ngone su tuut la ci sun biir. te gis nga ni muy def ak waa réew mi bu ci kanamee leneen dina ñëw loo xam ni ñoom Abibu coono yi ñuy jànkonteel te di ko junj te ñuy ay boroomi xel ndax ñu ngi leen di xatal di leen fitnaal ak a sonal ndax rek meloo bi nu melo woone ay taalibey sëriñ bi lañ te duñ ci boole dara te sax du lu ñu incarné yooyu de dañ ko teyul teyuñu ko waaye leneen a ngi ñëw loo xam ne bu ñëwee kooke bu ko bu di wax ay coonoom day fekk mu màgget bi jaaw mu naan sama baay bu di xam naa lii muy wax nii boo demee muridi kañ lañu am ak ay rajo ki télé di wax rajo Sénégal bii sunu sang bu tedd ba waxul woon ñu yemale ko bu ak bu booba coono rek la ñu ngi fi ne xas te lii kanam mu jëm te fépp lañ koy waxee bu doon daa am ñu muy tontu ci wax sax waxul ak waa réew mii nag sëriñ bi daa am ñu def ay projet de vie universel mooy tey ñu ngi toll ci tubaab yi di wax nouvelle ordre mondial am ñoo xam ne depuis quinze cent seize jëm suuf ñu ngi bind ay téere ndax boroom xam-xam yi noonu lañ daan def boroom alal bu saay-saay mooy dikk jox la xaalis ne la càmbaral ma askan wi nu mel nga ne man dey maa ngi gént ab dëkk boo xam ne mi ngi tudd Utopia wala wala la la nouvelle Atlantide wala lu nouveau ciné wax ni dëkk boobay mel te dara du ca bokk ak li xew ci dëkk bi fekk da ngaa bëgg a critiquer buur bi ak doxin wi ak doxalin wi te booba yahuud yi ñoo ko doon def xam nga jullit ñi jàngatuñu li alxuraan wax ne wa qaalatil yahudu laysati nasaara ala cheyin wa qaalatil nasaara laysati yahudu ala cheyin ci xeex lañ dëkk ñoom ñaar parce que kenn ku ne da ngaa jàpp ne sa morom newut ci dara sëñ Thierno daa mel ne ñoom gan gu yegg si léegi ci biir jataay bi waaw monsieur Ahmadou Kara Mbacké Noreyni tey ñu dalal ko nee na daal li ñuy wax li ñuy wax ci kormut xaaral rek nga kii hmm? daal mi ngi nii ci bunt bi di dugg si. waaw waaw. Eh, ñu dalal ko. xam nga fi nga tolloon moom. Eh? baati na lool la tax mu dugg si. micro bi moom day dugg ci biir moo tax. Eh, ñu ñu dalal ko. waaw général Cheikh Amadou Kara Mbacké Noreyni ñu di ko gërëm mu fekk fi ay bokkam. li ñuy wax rek tey xam nga sëñ sëñ Omar sëñ Omar sëñ Omar. Euh, li ñuy wax diplôme bi ñuy yëkkati tudde ko diplôme bëgg sëriñ Touba kumpi gi nga jóg am na koo xam ne nee na ma diplôme bi moo ma gënal sa diplôme bi may jànge nii nii maa ngi bitim réew bi bii ma gis ngeen di ko jox gaa yi ah? waaw sa bos di yow sa bos yàgg yàgg Abdoul Khadir Ba moom maa ko sosoo Euh, sëñ Habib Mbaye nee na moom la bind léegi ci profil sëñ Ousmane Mbuub ñoo ngi ñoo ngi ngi jégalu baax yaa ak sëñ Abdou Diouf waaw nit kenn mësu ko am dëgg la dëgg dëgg la damaa bëggoon sëñ Cheikh Ngunda tàmbali ci xasida yi rek bu ko defee sëriñ bi door a yegg si sëñ Cheikh bismillah bu ko defee maha balaa'i wa maha amraadi wa xaadu lil axraadi مع بلائي ومع امرادي وبلدا تنخاد لأخرادي مع بلائي ومع امرادي وبلدا تنخاد لأخرادي نبينا المختار خير الأنبياء علي تسليما بي بربها خدت له كليتي في الغلل وسري وهو لي خان وللي رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى علي من أرى تفديلا رفعت خدمتي إلى الماء سند ولسوانا ساخ كل من فند رفعت خدمتي إلى الماء سند ولسوى ناساخ كل من فند هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكسر الخليل تسليم باخ لا يزال صمدا على النبي والرسول أحمدا أبقى سلامي الكريم الصمد على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمدي أبوخا سلامي الكريم السمدي يا الله يا قادر يا مقتدر يا من إلا يجوده يبتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت فدر فوق الصوم جئت بالقصيد ساكرا لك به وخبل لي قد فضلك زنت قصيدتي بي سكارا ولم يزل يا مالكي سكورا زنت قصيدتي به سكورا ولم تزل يا مالكي سكورا أكرمتني إكرام من ما سافعل وكل ما أردت ومنك الفعل آتيتني يا رب من لدنك ذكرا حكيما فرديت عنك بارك لي يا رب في عروفي وخيرها وجدت بالمحراف ملكتني بكونك الكريم ما خاد لي تبصير والتكريما آتيتني ما الخلب أنسى كلما مدى من الدور ما تسلما كافأني من ما له كفا أعد بما لخيري ساخ كل من جعت أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفا أحد ناجاني الله مكرم السماء تناجيا به كفاني الكمد وجعل الأكرم أنفع الكرم ودرري بخير رد صرم أسأل قولتي الخسيدة خارخة لعادة مفيدة يا أيها يا خيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن الكلام على الذي جاء بأحسن الكلام صل وسلم ولتقبل الكلام من على خاريس الوروف بما يفوق زن من مهروف للناس بالأروف خلد الرباح يا من كفى وصل خرور ونباح ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا خيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك خديم صلاح مسلما على مسخسي الخلاح jërëjëf Seexu Bamba yaa ma tàndal ku la am dootu ñàkk bay xaaraani jërëjëf Seexu Bamba yaa ma tàndal la am dootu ñàkk bay xaaraani Seexuna Bamba moo fi wutu si yoon nan te misaal la xuraani yaa defal Moustapha la xaw su yatannoon balaaw di xayrul xaddiim fi diwaani yaa di xayrul xaddiim fi diwaani Bamba yow yaa jar di xëy di gontu defal yàlla lépp lum santaane. Alaaji Seer jërëjëfe sëriñ Touba waaw jërëjëfe sëriñ Touba mooy dalal ko jëfe sëriñ Touba kenn mënu koo wax lu ko gën a ñor loolu jërëjëfe Serigne Touba dégg nga sëñaam mane sëriñ ne Serigne bi buy waxit mu mel ni daa am ñu yëg ne da leen di tontu du ñii ndax projet universel. boo xam ne ña ko yëkkati dañoo bëgg mu daj àdduna këpp ñi ko def fi toll nii ñu ngi sukkandiku ci téere yii ma lim te bañ ko tàmbalee ak léegi la cay farata ju jëkk mooy fexe ba génne yàlla ci dundinu nit ñi ak organisation àddina loolu moo jur lii tubaab yi di wax société secrète yi te mu sukkandiku ci ñaar benn bi mooy li ñuy wax vérité relative mooy ku ne jàpp ne sa dëgg dëgg la xam nga dañu daal di dàq vérité absolue ku ne day jàpp ne sa dëgg dëgg la ba ko ñaareel mooy fa yàlla nekkoon ci màggam nga ko ci preuve yi nga war a xam ne nekkug yàlla bokk na ci li koy misaal li mu sàkk nga ne kon dafa am lu ñuy wax gayaa mooy la la la la nature bu ñi seetaan film bi ñuy wax euh, Avatar xam nañu baatu gayaa foofa ñooña garab mooy seen yàlla ca énergie yi ñuy dundee yépp fa lañ ko jëlee misaal la ci lii may wax ne mooy lem te ñooñu ci ay gox yu fasantikoo lañ nekk ci àddina di wax ci biir wax yi yépp mu daje une gouvernance mondiale une capitale une monnaie unique un peuple déraciné unifie parce que fekk demuñu ba aviliir nit ñi maanaam fexe ba nit amatul valeur abrutir leen fexe ba nit amatul amatuli teggin duñu mën a am li ñu bëgg ci ñoom mooy nag màbb diine yépp ba ñu jeex takk bu gisoo programme mu télé yi li fiy xew ñëpp di ko jooy te kanam mu jëm mooy dinañu wane lu bon lu ne ndax valeur lañu ñu bëgg a dàq lu baax lañu ñu bëgg a dàq ñooñu nag ñu ci bari jamono yi ñuy gane àddina booba la mbër mi feeñ fii ci Touba mu ñëw moom ci boppam moom seexul Khadim sanc ab dëkk ne daara la Touba lu mu xumbu xumbu xumbu daara la te daara ngërëmul yàlla lees fay sàkku lu mu xumbu xumbu ngërëmul yàlla lees fay sàkku Sëriñ Touba rekk moo wax ne kaay leen ma yóbbu leen ci yàlla waxul ñëw leen ñu dem àjjana waxul kaay leen ma wan leen yoon wi ngeen di aw ba du ngeen dugg safara déedéet te xam nga lu mu ca teg am ab rawukaay laa asil la asil rawukaay kon li ñuy daq ku làquwul ci sëriñ tubaab mënoo wax ba du la jàpp doo yëg nag ne jàpp na la lu dul keroog bisub layoo ba bu doon wotooki taax murit du xar baax bisub layoo ba du woto du ay taax sëriñ bi lii mu woote mooy àgg ci yàlla moom rekk nag moo tollook boroomam foo xam ni loo ko defal mu yéene la ca ngërëm nga amee ko ca te du yàqu foo toll yaa ngi dégg lu lu baax fu mu am dañ naan la boo moyee nangam yàqoo fa kenn yàqoowul ci sëñ Tuubaa dégg nga li mbër miy wax nee na sëñ bi alagul kenn lorul kenn li tax mu ne irham jami xal waraa daa jaar yàlla foofu amatul soxla ci mbindeef yi mu ne ko ñongoog yàlla ne ko ñu ngi noonu mu ne yàlla kon yërëm leen ba ci nasaraan yi def lu bon nga xam ni lu ne def nañ ko sëriñ bi sëriñ bi dane ñoom dañ leen a possédé iblis moo leen posede ba tax ñu def sëriñ bi liñ ko def ñoom nag rasulullaahee leen sempi wa mu muqaffa man xalaanee yardahu moo leen sempi teg leen aw yar ndax munta muñ ku bëggul sëriñ Touba billaahi ku bokk ak yonent bi dara di ko yéene sëriñ Touba fii kuñ fi woy sa mbokk nga kontaan ku bokk ak yonent bi dara di nga ko yéene lool sëriñ Touba lim ko woy gisoo jëmm ji ne jërëjëfe Serigne Touba nu jug yàggaayo dañ koo tey nun bu dul woon sëriñ tubaa kenn du nu jiitu safara fii lañ mën a taxaw waat ci sëriñ Touba ne ku bokk ak nun sax du ko gis te ragaluñ ci dara ndax ngërëmul Serigne Saliou la ñu liggéey ba am ko. on s'en fout de ce que disent certaines personnes concerné wu ñu ñun sëriñ bi rek lu waay di wax na doon sëriñ Touba lu waay wax lu dul sëriñ Touba bul ci tudd sëriñ bi amuñoo ak yow affaire waaye noo ngi fi rek ngir jëmmi sëriñ bi bëggaluñ kenn dara lu waay woote lum rëy rëy rëy demal ak moom foo xam ku wuy ji ku sëriñ Touba am nga coow te tuuti rek di ko xam. sëñ bi as woppa fi dikk soo xam ne kenn xamul ndax day màtte am day gajjeem day dóore àddina sépp bank seeni yoxo te wopp ji du woppi yàlla ay nit a ko fi indi ndax daa dëppook seen programme lu ñuy wax une dictature sanitaire parce que dafa am ay projet yu taxawu ay passeport sanitaire ay nangam yooyu dafa am c'est factuel kenn mënu ko dindi mun taqa woote l'événement le seul et l'unique qui sera marqué en en deux mille vingt muy màggalu Tuubaa gi moo billaahi dafa joxe ay garantie dafa ni dara du xew lépp lu mës a def gis nga deux cent millions yeeg lépp lu Sëriñ Muntaxa mës a def te maslaa ko ak nguur gi da leen a yërëm ci seen ñàkk xam lim doon ak lim man billaahi buñ ko bàyyi woon ak seen bopp dara du yëngu waaye xam na ne ñoom attanuñu loolu muy maslaa maslaak ñoom déggoo mu wax ni lenn li xelum doomu aadama ñoom seen xel lan yor di ko doxee moo tax mënuñoo ñàkk a maslaa ak ñoom bu ñu àggee ci bàyyi sun bopp ak sëriñ Touba lépp baax falaa koy yemale euh, euh, waaw li léegi la dugg si jataay bi teewaayam bi ak melokaanam wi mu fi indaale koo xam xam ne du setantale dañuy seetaan nettali ko liy xew lii rek mën a tax mu xool télé ñu waxtaani sëñ Tuubaa ku bëgg sañ Tuubaa gi ji dañuy def émission mu yónni ndaw ne ko toogal ci bunt bi bu xaar buñ noppee bopp yi doon wax yëpp terale naa leen nangam ba émission bi tàmbalee ba léegi ñun la àndal nekk ñun ci loolu képp ku yëngu ci sëñ Tuubaa nag jàpp na ne lépp lu la war moom la war moom day bëgg sëñ Tuubaa kem ni nit ki di bëgg sëñ Tuubaa moom day bëgg nit kem ni nit ki di bëgg sëñ Tuubaa moo ngi lay ñaanal nga yàgg fi loolu téwér garaat bi nga takk ba boo génnee fii di dox balaa nga yëg léegi fukki mètre mbooloo boo gesoo mu topp sëñ tubaa sëñ tubaa nga takk sëñ tubaa mi nga takk nag képp ku ko takk xam nga làmbooloo làmboo nga mbirum yàlla te képp ku jataayoo moom di xam ci moom bëgg sëñ mu bëgg loolu nag alaaj mbakk yi fay na ma li tax ma bëgg ko mooy tur wi ak murite gi tele bi li tax ma bëgg ko mooy tuubaa gi sëñ Modou bu gisee njanaaw lu am solo sax ñu rëbb ko jàpp ko dafa jàpp ne dafa jàpp ne Cheikh Mamadou Muntaxa moo ko yayoo jëwërta jëm ci kër kenn ko dul Cheikh Mamadou Muntaxa bëgg gi Serigne Touba foo ko takk romb na ko waaye bëgg gi itam ñi yëngu ci sëñ tubaa foo ko takk romb na ko day jékki-jékki rek ne ma organiser nañu reer suba dajaleel ma gars yi ñu ñëw waxtaanee Serigne Touba buñ toogee waxuñ dara Serigne tubaa rek la ñuy waaye lii mu def nii dana ko def téeméer yoon bala faa jóge ñu bari nag danañ duñ ko xam waaye dana ko def téeméer yoon toog nag nit mu di ko teral ba yàgg kooku ne ko ki nga yónni muy jëli saag bi bu mu génnati sëñ bi na toog kooku ne ko ki nga yónni muy indi saag bi bu mu ñëwati na toog parce que loolu la jàpp kon yaakaar naa ne tey boo bindoon lettre def généralu Cheikh Amadou Kara Mbacké Cheikh Amadou Bamba fu buñ ko foree këram lañ koy yóbbu sëñ Touba nag moo yeyoo jërëjëf a sëriñ Touba ba muy ñaan mhm. Cheikhul Khadim ba muy ñaan mhm. waxul ñu aju ci man déedéet daf aw fi diini mhm. wal ajaani bi mhm. sëñ Tuubaa bayul kenn ba muy wax wal tarxamil xalxa mhm. waxul mbindeef waxul melentaan waxul sankalañ wal tarxamil xalxa ba muy wax irham jamial wara waxul muridiina de kooku li yëkkati gaa yi yëkkatiwu ko woon kon sëñ Tuubaa yërmaandeem jooju ci la nu dugg nun Mbàkke lii nga def ab sàkk la ci nun ndax nit mën na koo soxla te du ko am ndax daf fan yii yëpp lu ma dëkkoon di wax mooy damay moytu télévision yi ak rajo yeeg télé mhm. waaye xam naa ne moom loo bëgg ci moom boo ko jaar ak Sëñ Tuubaa am ko mhm. léegi laa toog moom waxuma ko de kenn ci mbokk yi taaliba yee ñoo ma ne sëriñ baa ngi ci bunt bi ñun dañ doon teg rek mu ne salaamaaleykum ci biir ne ma ko xel de mi ngi ci bunt bi wallaahi warabul kamba yëguma ko yow jékki-jékki mu baa ah. lay ñaanal a baax nga yàgg ñoo ngi lay ñaanal li nga bëgg a liggéeyal sëriñ Touba nga yegg ko ni mu la soobee noo ngi lay ñaanal li nga liggéeyal sëriñ Touba ci ndaw ñi yàlla na la ko Cheikhul Khadim mm-hmm. képp koo xam ne jàpp na la bëgg sëñ Touba la la jàppe mm-hmm. ku la fonk bëgg sëñ Touba la la fonke mm-hmm. képp ku la bëgg sëñ Touba rek la la bëggee kon dama bëgg Alaaji Cheikh Diop boo ko ubbilee ñu dalal ko ndax bay di xam naa ne bu ci soree rek moom moom moom kéemaan lay doon alaaji mbokkam mi sëñ Mamor balaa maa alaaji Cheikh balaa maa balaa maa daaneel sama kàddu rek nga baal ma benn baat rek mooy euh, ndigal li nga xam ne moom la Serigne Touba yor ci jamono jii te jox ko yépp muy université bi ak complexe islamique bi ni koy waxee mm-hmm. am sëriñ Mountakha ma jox ndigal ma ciy soññe maa ngi koy boole di ko partagé ak nañ koy soññee. dëgg la murid yi. Hmm. nañu jël ay koppar jox ko sëriñ bi. Hmm. mu tabax université bii mu ak hmm. mérité na ko ah sëñ Mountakha dafa mérité ñun ñu wan ko sunu reconnaissance ci fii mu toll ci jamono. li muy liggéey nit ñi teg ci bët moom mu teg ci bët am ci mbég. loolu mooy. sama kàddu na na bañ na ma ci ñëpp dimbali nag. ku ci war kuy kuy seetaan télé beeg internet beeg fépp. Mm. jëf ji daal. jërëjëf bu mu laal suuf. jërëjëf sëñ Mamor Mbacke yaay dalal Serigne Modou moom sëñ Ousmane moom maam Thierno Ibrahima su ko sëñ Abibu su sëñ sëñ Modou Mbé dalale yaakaar naa ne dana am solo lool kon bisimilah ñu déglu sëñ Mamor. auzu billaahi mina sheytaani rajiim. Mm. bismillaahi rahmaani rahiim. Mm. jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Touba jaraw la ka maam Ibrahima Fall mi ngi ñu ngi sant yàlla di julli ci itam di am mbégte mu rëy a rëy ci sang bu tedd bii ñu fi fekk di sunu mag di sunu sëriñ di suñu soppee lii mu def wane na bëgg gi mu bëgg sëriñ Touba ndax jataay bi ñu ko fi mën a teewal bari na waaye bu yëgee sëñ Touba bu mënatul mënatul a toog mu dikk ci jataay bi maasee ñun di dund sëriñ Touba. lépp kuy dund sëñ Touba di nga xam ni kii li li nekk ci moom sëñ Touba kese la ndax bu doon wut àdduna mën naa ni fii mën na ko wute faneen fudul fii ndax sëñ Modou Kara ci darajaam ak maqaamaam bi ko sëriñ Touba garaat bi ko sëriñ Touba wékk ëpp na doole yi te lépp mu liggéeyal ko sëñ Touba kon nag man am naa mbégte moo xamante ni musuma ko am mën naa ne te gëm naa ne yéen ñi di aamidu yéen sëñ Tuubaa wane ne am ngeen ndam tey alhamdulilahi rabbil gànn ak bisri sëriñ Tuubaa wane na ne am ngeen ndam tey parce que lii yombul ku ko jàppale yomb yëg sëñ tubaa ko fi indiwaay waaye yombul de moo tax barki démb bi ma déggee coom li ñuy wax ci sëñ Modou Kara ñuy wax waxi daara ji ma ni tekk ba mu yàgg ma ni sëñ tu sëñ Modou Kara la sëñ Touba bëgg a wane lim doon liggéey ci suuf te ñu bari yéguñu ko am ndeysaan koo xam ne du jullit sax yàlla dogalan mu dugg ci sa bërëb yooyu ba defaroo fa bi mu ko déggee ndeysaan daf maa woo ndax dama booba maa ngi dëkk inteset mu lëjaleen koñ ba lool ci melokaan man mii ci ñu ko tegtalan ni koy yóbbu ko ci daara sëñ Mudu Kara ci la bokk yóbbu ko ci daara jii ci Géejawaay mu defaru fa ba mujj mu nekk isbu te du woon jullit ba mu fay dem mu jóge fa nekk ndeysaan mi ngi États-Unis ndeysaan bi mu déggee coow li amul sax seen numéro man la am sama numéro man la woo moo tax bi ma déggee mbir mi dama ni sëñ Muudu la sunu borom sëñ Tubaa di fay ndax xam naa ni bu ñu demee tuuti ci kanam li mu daan defar ci doomu aadama bërëb yu mel nii ñu tas ko bu ñu dawee tuuti nit ñi dañ yëg ni sëriñ Moodu sëñ Tubaa fayan na ko kon nag Mbàkke kenn amul sa fay ñun sopp nañ la bëgg nañ la nangul nañ la damaa dégg ci sa wax kero ndeysaan nga toog ba mu yàgg nga ni dama bëgg a dugg kaso mare Mbàkke ba nga duggee kaso du yàgg tëj nga sa xol kaso bu yàgg ndax fi nga jaar ci ay jaaruwaay ngir kennal sëñ Touba li nga ci daj ak fi nga ci jaar duggoo kaso gu ñuy gis waaye dugg nga kaso ci baatin ndax sëriñ tubaa mi ko am laata ñu koy tëj fekk na mu tëj boppam kon dakaar gi tey bu ñuy damoo sëñ Touba sa jëmm jiyee tax ku ne bëgg naa bokk ak sëñ Touba ngir yow jamono neex rek Mbàkke waaye ba jamono métti ñi njëkk a tàllal seen loxo kenn sëñ Tuubaa yow mii la ku koy def ci yow la ko roye kon nag Mbàkke fay gépp fay sëñ Tuubaa ci ëpp solo te sëñ Tuubaa dina la fay kasoog saayir gi di bis boo ci duggee di nga duggaale ñu bari Mbàkke kon nag jërëjëf sëñ Tuubaa rek moo am sa fay Mbàkke yàlla na la fay may sant bu baax Alaaji Mbàkke yu fay mii nii yegsi na léegi. sëñ Amidou. da doon nëbbut waaye yegsi na léegi. kon ñu teg suñu kàddu bu yegsi. bisimilah yeggale da ngi nii yegsi na léegi. alaaji mbàkk mhm. sëñ Moudou damay wax ne bu ñu aman fukk yu mel ni sëñ mbàkk yu yoon wi dina defaru sëñ Moudou nee na ëpp na sax ñaar ak moom kese ndax eh, li ko waral. musul li ko waral. Euh. suñu ami du mi suñu amee du mi xam na ma. xam na ni man alaaji mbàkk yu ma xaw ma këram. dëgg la musuma fa dem. Mhm. yàlla xam na ni su ma ko gisee ci télé laa ko gisee. Mhm. wala ñu daje ci buntu Touba TV joxante loxo. Mhm. kon li may wax yàlla rek a tax. te dafa am kilifa mbàkke mbàkke gu mag gu ma mës a nuyu. ma ñëw mu wag ma ci bopp. ni ma yow gune gu goo goo xam ni man ngaa waxtaan ak mag ndax gune bu yore yëfi mag mën a waxtaan ak mag ma ne ko loolu loo ci jublu mu ni ma dangaa góor góorlu ci bëgg gi bëgg siñ Tuubaa ba defar sa jamono looy wax yàllaa tax moo tax ma bëgg di waxtaan ak yow kon alaaji mbàkk yu mi bi bi mu defaree jumaa ji ba pare dama toog bi sëñ Muntaxaa di wooye université bi ma toog ak benn sëriñ mbàkke mbakke ñu wax rek mu daal ni xanaa mbakk yi la koy jox de l'université bi xam naa lam ci jublu woon sax ndax toptal na cee baat ma geestu ni ko bu ko joxee dañu am ci ndam lu mel ni li ñu am ci masaalikul jinaan ji dëgg la kon nag alaaji mbàkk yu mii man de damay roy ci moom ndeysaan ndax xam naa ni ku bëgg sëriñ Tuubaa te it kuy dimbali ñii di jàng xasida yi sëñ Tuubaa ak di ko waxtaane mm-hmm. te ñii ñi doo mat a dimbali waa ñii bu ñu leen sagalul kan moo leen di sagal ñii bu ñu leen joxul kan moo leen di jox seen ku géwél taxaw ci sa buntu kër bu tàggee sa maam loo yor jox ko ko mm-hmm. waa ñii tagg sunu maam ki nu gëmul ku dul moom bëgguñu ku dul moom muy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul lu ñu yor war nañ leen koo jox kon yéen dañ leen a war a jàpp dañ leen war a jàppale dañ leen war a teral man gis-gis boobu laa am maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di gërëm sëñ Amidou mënuma lim jataay bi ndax yàgg na ñi fi nekk ñëpp xam naa leen gis naa leen bëgg naa leen sant naa leen gërëm naa leen sëñ du yow lu mel ni mënta ñàkk ci yow ndax sa xol a baax ni nga mel ñi fi nekk ñëpp mën nañ ko tee seede ñi ngi sant tamit taaliba cheikh bii fi nekk ci biir Mouhamed Mbaye mhm. lii mu def wane na ni maanaam nit ku bëgg sëriñ tubaa la mhm. te ku fier ci bëgg sëñ tubaa gi mhm. ndax jamono ji boo bokkee faneen boo bëggee sëñ tubaa dina bari ay tikke yu ñu lay takkal waaye bëgg nga ko jar a bëgg ndax sëñ tubaa rek a jar a bëgg loo ci góobee gaar ko te di diñ ci góob diñ ci gaar incha allah mm-hmm. ñi ngi lay sant bu baax di ñaanal ñëpp di yemale fi kàddu yi di sant ñi ma àndal sëñ Cheikh Mbacke mi di sama mag sëñ Mudu Dende yi di sama doom di leen xamal ni Bichri bég nañ bu baax gànn bi bég nañ bu baax ak mbokk yi fi daje yëpp mbokki journaliste yi fi daje yéen ñëpp xammee nañ leen jàpp ne leen jamono jee xaw a rek ak émission bi ñu ngi yemale foofu suñu kàddu di wax jaajëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Mbacke dégg nañ ba may ma ma ma jox sañ jiili mi mu wax ñaari kàddu rek balaa comme jëwriñ yegsi na man xamoon naa ne dina ñëw ndax léegi laa ko wax ba jox ngàntam ci télévision bi waaye mook sëriñ bi danoo bokk fun ne moom moo ma wax ci kàddoom ne ma maag sëriñ bi danoo bokk fun ne fi ñu bokk ne sëñ Mouhamed. mooy dañoo daje ci bëgg sëriñ bi te am na yu xóotu xóot yoo xam ne bu ngeen ko séqul du la ko wax ci sëñ Touba kon nag lii nga def yow it nii nu ko waxee ci Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni noonu lañ koy waxee ci yow ndax tay fi tey bari na ñu baree baree bare ñoo xam ne amuñ jotuk sax te seetaan Touba TV bay am jotuk di ko wettili ko waaye cër bi la sëñ Touba defal nga boole ko ak bëgg sëriñ tubaa noonu nga ko boole itam ak bëgg ku yëngu ci sëñ Touba. bi muy taxawal xasaay door dafa jël salle bi gën a cher muy grand théâtre mu ne fa lañ koy defe ji xamul tax mu defe ji ko fa daf ne bu amoon salle bu gën a cher boobu fa laa koy defe ji xëy nañ di fa répété suba ba 5 mu ne damaa bëgg ñu taxaw ci kaw podium bi ñu fay télévision yi ñu def ko en direct bañ xam ne Cheikhul Khadim li mu bind mooy sofee àddina te loolu kenn fekk ko ci nag kon nag noo ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal ndokk nag ba nga ñëwee fekk fi numéro 1 ak numéro 2. kon sa jili ñang kennal balaa ñuy jox jëw ñu bàyyi ko rek mu sànni ay kàddu ndax bi général deeg si la ne ma naa bàyyi ba mu yegg si kon sa jili bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëfati Seex Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul. ñu ngi ñaan képp ku fi teew nga wax jërëjëfati Seex Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul. ñu ngi sant mboolem ñu fi teew ñëpp. di ko di ci jiital suñu kilifa gii teew monsieur Amadou Mbacke Kara Noreyni di ko bëgg sëñ Tuubaa di ko xam ne ñun ñi nga xam ne dañuy dàkkantale kennal sëriñ Tuubaa royteef la ci ci ci ci ci ñun bi may toog léegi di jàkkaarlook moom di ko xool li may gis ci kanamam mooy jàmbar dëgg moo toog ndax ku mën a dund sëñ tubaa ci ay seekali seekal ci ay at ba toll ñi nga toll di ko seere ba egsi fii ñun ñi nga xam ne gone lañ ci liñ ciy daj dañuy xam ne jàmbaar dëgg moo toog man sëñ tubaa laa ci jël seere kennal sëñ tubaa egg naa ci foo xam ne ñu bari xam nañ ma ci waaye li ma ciy daj te doon gone gu ndaw si Ahmadou Kara mi toog wan na ma ne jàmbaar dëgg la waaye nag ki nga xam ne moom lañ nekk di dund ci moom li mu daj kenn ci àdduna du ko daj noflaay ñun ci lañu nekk ñun ñi nga xam ne dañuy dund sëñ bi ci noflaay lañu nekk ndax moom li mu daj digganteem ak alayhi salaatu wasalaam nit du ko daj ci kaw suuf te ñu ngi nii ñu ñun nga xam ne dañuy dund sëñ bi ku ñu gis bëgg a mel na ñun te lépp mooma ñi ngi ñaanal nag ñëpp jàmm ak xéewal siñaam geesul xool ci sa ginnaaw benn baat képp laa bëggoon a wax mm-hmm. benn baat mm-hmm. dama laa bëggoon a wax ne la geesul nga xool ci sa ginnaaw mm-hmm. ba nga gis ko may la kenn du doy na sëkk wallaay dëgg la doy na sëkk bu ko ñëpp xamoon lépp baax jërëjëf jërëjëf jazakallahu xayran eh, sëñ bi li ñang kennal eh, xaadim rasul kon su ko defee bàyyi seex waaw sëñ Mouhamed loo bëggoon seede jox bi nga baal ma ko maa ngi nuyu sama ñaari baay yu leer yi teew benn bi di Cheikh noo Kara Noreyni mook sama sëriñ tamit benn lañu duñu ñaar moom xam na alxaaji Mansour si Jamil benn lañu ñoom ñaar di nuyu bu baax sunu baay mbàkki yu li ma gën a neex ci àdduna mooy ñu daje fu ñuy wax Touba TV te boo doon war ku tedd Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul nga jëm beneen bi ma gën a neex mooy ñu xoolee ma bëtu ku ku bëgg yàlla ñu xoolee ma bëtu nitu yàlla ñu xoolee ma bëtu ku bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu may dox di dem rek ñu ni kii ku bëgg Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul la loolu rek mën a doon sauvetage àdduna ak àllaaxira pour man honneur bi ma am ci histoire du Sénégal Serigne Gana nit mus koo am. kii taalibe Cheikh la waaye dinañ ko décorer ngir cofeelam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul Cheikh Ahmadou euh, Karano Reni maa ngi la koy seedeel bu baax a baax a baax sa njabootu soppe la Alxaaji Mansour si Jamil maa ngi ba seen TV waaye dañu ma woo décorer ma ngir Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul maa ngi la koy seedeel lool rek moo doon kàddu yi maa ngi bég lool maa ngi bég lool waaye bu amee ñii ñoo ko liggéey ñii barakallah Serigne Ganna Bichireek ñoom jiileeg Serigne Jili ñoom ñii ñoo ko liggéey ndax ñooy sama ay wéeruwaay ci yoon woowu dëgg la ñu daal di yegg fi nga xam ne ni fa la ñuy tënkee jataay bi amoon nañu yéene sëñ Jiili Abdul Xaadir ba yëkkati kàddu lool amoon nañu yéene sëñ Abdul Ahad bu sa maram yëkkati kàddu lool waaye Ousmane boobu mi ngi may wax nañ fii ne def nañ six heures de temps te lool lépp sëriñ bi rek ko waral sëñ Bàcci Fay ma la yor sunu communication xam naa balaa jëwriñu wax donte deux minutes la mu wax ko ci waaye damaa bëggoon jëwriñ nee na jox général kàddu gi euh, su ko defee alaaji joxal ma alaaji benn micro bi bismillah joxal ma ko benn bi indi bii bu sëriñ bi bismillah day yàq jàng yi da xam naa ne noo ko bëggee rek damaa bëggoon wax ñaari bayit ñaari bayit lay doon rek waaw bismillah jox ko mu wax bayit yi nu aw ko <laughs> bismillah ayca ayca awadani llahu min alcheytaani waxaadali manafihal awtaan hafizani hasamani najjaani allamani man bil huda najaani un masque masqué masque hafizani hafa nun marbuta masque ñaar la dafa am masque bu ñuy gis am bu ñu dul gis bi ñu dul gis masque bi ñu dul gis sur le plan sur le place spirituel mooy nga jël benn xaraf waxuma xarafu keneen de xaraf boo xam ne ku tedd ki moo ko wax man tubéy pyjama laa sol teg ci li masqué ko waaw man su ma neexoon sax ñëwee fi puissamment su ma neexoon man maa jàng mu ni bi jiimi hijzim bi jiimi hijzim ca maraaxib jiima rajim la jël seytaana rajim jiim ga la jël wax ci yàlla ni ko tëjal ma ko ca moom ñéppam ba lépp lu mu ñaawle mbaa lu di seeni pexe mu bañ a jëm ci man ak képp koo xamante ne bii du adoore suñu borom subhanahu wa taala mi ne wa ma xalatul jinna wal insa illa liyan bu duuni damay tàmbalee ci tàmbalikaay bi tàmbalikaay bi mooy lan mooy suñu maam Ibrahima moo ñu tuddee al muslimun dama bëgg ku tedd ki ba mu jógee Gabon ba mu ñëwee une année après mu dem Mauritanie wedul ma fekk ko fa dama bëgg jullit yépp ñu yore ay awraad ñëpp ñu yore ay wér di ñëpp ñu xool wérdul maxuus ba xam benn wérd génn na ko wala déet c'est très important settantal maanaam wérdi yëpp la boole def ko muy benn fédérateur la rassembleur la yoonu murid wi ñuy wax moom il n'est pas dedans nekkul ci biir kenn du nas kurus ba noppi bokk ca pere ya imaam du bokk ci sàppe yi jutta bi mufradin lanaa faaxal jumal xutta lanaa mux jëla jaysin wa amal moo tax bokkul fenn xajul fenn kenn du ko dugal fenn dama dégg cheikh sànq bi muy jàng tuxfatu mu jàng ko ba mu jeex waaye wajaxal tawassuli liman yad'u bii saxaadata daari ni wax firli bii loolu muy wax képp koo xamante ni bii yaa ngi jaar yaa ngi ñaan yàlla jaaree ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax fir lii bii jooju mu lii ji naa ko moom moom ko ne ko kii moom ak kii ak sëñ maam war a keneen ak keneen bu ko jox waaw ndax moom lenn lu muy day wax rek dina waxaale dina dugal ci biir te xamuñu ko waaye lu muy jégglu borom moom amul kii jégglu mooy ku def lu ñu lay jégglu moo tax bu bindee bàyyi nu ko nu koy settantal danoo war a xool li mu ci moom moom ak li mu nu ci moomale loolu moo dig dégg ba demee ca taxmis sirri xabihun maa tax muy wax yaa tax muy wax kii tax muy wax ak kii li dox fil xal bi wal badani dafa am loo xam ni waaye xam naa du yomb ndax itam yenn saa yi dama naan yor ba ca si mbay saar fa mu nekk ma def ab diir ñëwaat ndax damaa comprendre moo tax moom mori uri li wacc ñetti murit am ñetti catégorie la ñu murit murit sadiq murit sadiq wa nabil uri li wacc maliki sabila kulla muridin sadiqin nabila moo tax jëwriñ mënut a ñàkk murit rek dafa am murit sadiq dafa am murit sadiq wa nabil kooku lay woon yoon wi jamono am fu mu toll nun ñëpp nu war a jóg kenn warta toog xam nga dafa am loo xam ne wàccoon naa ak ñun xamal nañu nu ñuy defaroo xamal nañu nu ñuy defaree defaru ak nooy defaree ak li nga war a defar ki nga war a defar ak li nga war a defar dans l'ensemble dinaa ñëw ci fii Ceddu Murit dama koy wax jim la ak daal man bu ma neexee sax dajji laa lay wooye dajji wala jiddaan wala dafa am lu mu wax léegi loo xamante ni bii ni na ko ci ñëpp jàppale mbir yi dafa war a weesu foofu mbir yi fa communauté mouride communauté mouride am na taxawaay boo xam ne bu ñu ko defee budget Sénégal mën nañ koy financé foofu la mbir yi toll tolluwul ci ñuy wax taalibe yi naan nañ joxe dix mille francs kii cinq mille kii déedéet du loolu une organisation parfaite précise et significative yor ay milliards denc ko Suisse wala feneen lu muy jariñ dee bàyyi ko fi dee bàyyi ko fi Touba mooy sunu sac mu wax ci li mu ci wax lépp boo demee ci Matlabul Fawzayni li mu wax lépp ca dëkk ba mu wax ko ca waaye Touba en tant que tel toowa ba alif réduit yaa mu ne Touba li abdin muridin sadiqin lahumu bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiyati ñu dégg ko waaye Touba mu wax boromam ni ko na mel ni turandoom hmm? Touba ga nga xam ne mooy turandoom benn garab la ca àjjana boo xamante ni bi àjjana li muy rëy rëy amul benn château walla benn pale boo xam ne amul branche am bu fa tiim mu ne ko na mel ni turandoom bu ko xasee wax rek mel na ni Zahir si nun ci ñun la étape par étape époque par époque Serigne Saliou radiyallahu anhu bi ma rayalee ñaar fukki xar ak benn defal ma ko ndékki bi ma dellu see soow ma interprété ko loolu moo waral xisbul xaq gi ngeen di dégg tôt ou tard moom mooy jiite réew mi ndax mooy seet ñoo xamante ni bii ñu jub xocc tôt ou tard mooy seet ñoo xamante ni bii du ñu rawale alali réew mi te lu ñuy def nañ ci bàyyi xel ku tedd ki loolu dina ñëw mënuma koo ñàkk bañ a wax de ndax xam nga lu tax mooy dafa sosoo ci Serigne Saliou ak sëriñ Serigne Mourtala radiyallahu anhuma Serigne Mourtala neexale ma ci Mercedes moo tax mënuma koo ñàkk bañ a wax am na loo xamante ne bii fii laa koy wax fang ci tele bi mu concerné mu gën a concerné al Mbakkiyu Ahmadu moom laa koy wooye ndax maa gis ku tedd ki bind waaye ci boppam noonu al mbakki yu ahmadu newul ahmadul mbakki yu moo tax ma koy wooye al mbakki yu ahmadu sëriñ Murta sëriñ Muntaxa ñëw fi rek ñu inauguré mosquée bi rek mu deme ni mu demee rek lépp doxe fa tàbbi géej du loolu yàgg na ñoo inauguré jumaa fu nekk mbir yeneen la ci biir ñu war koo topp di ko settantal nag ci bayyana lil alimu wal xabiru tabb yii na man tadbiruhu tadbiru te ñu ko war a settantal dafa am spirituel am temporel du càgg ne dañu fii nekk ngàmmaaral jëmale ba kañ ba kañ am ñu jàng li ñëpp jàng xam li ñëpp xam yaakaar ko tëdd ki moo tax ñii ñaar ñi man dama doon observé kenn par kenn fi mu toll daanaka daanaka daanaka ku ci ne am na lu ma la ameel parce que man damay settantal xam nga ni ko toog di suivre ba ci àgg nga fekk nga sol tubéy pyjama nga jóg rek teg ci sa sa sa sa bu ñëw gaynde gu tëx la dara yëngalu ma sëñ Maam Mor sax moo ko fi tudd bu dul woon loolu duma ko tudd ci mbir xale yeeg yooyu ku ne xam na ni ay gone bu ñu du ne ay gone sax ndax ay borom kër a nga ca yaa am soxna ki doom moo tax ma wax leen ni leen ñoom xanaa ñëpp mu tooñuñu léegi bu ñu tooñ nañ nañ leen kii ñu tooñul yooyu sax bref duma ci sori ndax man sama philosophie man Macky bi ma wooyee téléphone dama ne ko ñun ñëpp war a dugg ci kasu bi amul ma sàmb amul ma demba amul penku laa dëkk amul soowu amul boor laa amul baadoola laa parce que déjà ñun ñëpp noo ngi ci kasu bi <laughs> addunya sijnul mu'min ala al mbàkk yu ma nga fee di ma kii ndax day bañ ma <laughs> mais jataay bi dafa ne xam nga ñi dama dégg ñuy wax ay affaire lema kii suukara kii <laughs> oh hmm. xam nga dafa am loo xam ni wallahi gànna wax na dëgg Cheikh gànna maa ko wax ni ko kenn wër laa sàllalu xanaa am na ñoo xam ne kenn wër te jaar ci seen tur direct dafay am loolu ku tedd ki moo koy def gis nga barakatul maahi an la yan tasharat jooju mu wax wa xasamat kulliyati wa basharat daf nu ko tasaare tasaare ko ñëppam ak féppam allahu akbaru mimma kuntu afaaluhu la leen waxoon wala su axsha wala arju si wàlla si wàlla boobu nag ah man de waxoon naa ko ana sëñ Abdoulaat Bousso wa huwa lazi fi samaa'i ilahun wa fil ardi ilahun de te mu am tur wu tudd azahiru am tur wu ni naan albatinu te mu tudd baatin tudd sa di feeñ di nëbb di nekk ci kaw di nekk ci suuf dégg ba noppi ba noppi muy wax yàlla naan ko yonent yi nga bind yëpp ñi nga yónni ak ñi nga yónniwul koo ci bëgg a kaay fii ci man nga jël benn bien boo xam ne day sucré te day meele wax déet koo bëgg a récompenser ci sa yonent koo ci bëgg yoolal koo ci bëgg bégloo kaay jël ci man aw yi woo xam ne day saf sucré te day saf lem waa yàlla kon ana magasin parce que kon mu ne xazaa'inu rabbi futihat lii wa zazahat li xeyril aza dunya wa uxra wa barzaqu léegi nag almbaki yu ahmadou sa télévision bii faw nag faw ñu ci waxe nu ne te muy tege fi mu war a tege fan lay war a tege gis nga kenn gi mu doon kenn ba ni jutta bi mufradin la naa faaxal jumal bokkul fenn bokkul xuttale naa mu jëla jëysin wa amal fii man moo Modou Mbacke maa ko wax fii la réew mi war a defaroo réew mi laa wax ku tedd ki moom noppi na ci ñun noo ci des ñun noo ci des dëgg la télé bi baaxoowul sax kuy wax euh, du jëmali ci daw la wala yu demee noonu waaye nag dafa mënta ñàkk ndax itam nag gis nga malaka ni dunya wa uxra samadu maahindahu liixtaarahu muhammadu man naam boroom xam-xam yi duñ ci egg moom dañu ko tànnal te yonent bi moo ko tànnal li ci jàgg kus néew dara jagu ci sax ndax aqbalati dunya illa yee xablu wa bixtuha fa zala anil kablu hmm? ku ne xam ne ne adduna moom bi mu ko moomee itam taxul mu soxla ci dara waaye xoolal ni mu nu ko tasaare xoolal suñ Mamor mii jëf yi mu fi def jëf yi mu fiy jëf te nga te nga ko doon wax ak keneen ak keneen ak keneen ak keneen alaaji Mbàkke yu waxi nopp man li ma li nga xam ne dama ne woon te sax ceddo murid mee tax ma egg foofu ndax loolu lu ma naroon na dox la te waroon cee waxtaan ak eh, almbaki yu Ahmadou mi ci communauté Mouride waaw économiquement financièrement loo xamante ni bii du doon sax maanaam ñuy xaar ay waaw ku nekk yi participer ku nekk yi participer eh, le mouridisme dafa am fu mu toll xam-xam bi bari lool xam-xam bi bari lool ci biir waaw maanaam ñu mën a génne ay milliers et des milliers de milliards ñu war koo mën a génne loolu nag organisation lay doon programme lay doon eh, bis bi moom xam naa yéen a wax ne plateau spécial mais daa yaakaar naa ne moom la yaakaar naa tudd ko rek ndax Mbàkke yu Ahmadu mi kaalaam gi <laughs> ak man mii nga xamante ne bi ndax mel ni rek dañ na ma kii dañ na nga xam ne man man si laa naroon a jël xaw ma woon nii bu ma téléphoné dina am caabi oto bu fa nekk bu ma mën a indi man taxi si laa naroon a jël lu dina ëpp te def di déedéet te war a ñëw déedéet taxi laa naroon a jël te taxi bi it moom nu mel baax na loolu daal xam naa ne daal li feeñ li feeñ man bi may ñëw damaa fees del moo waral bu ma feesee dama koy dégage dégagement la ci man xale yi miin nañ loolu ci man ba fi ñu toll duutu yëngal kenn ndax ndax bu feesee faw nga nga dégage waaye li Cheikh Gana wax sànq ci diggante suukar ak lem dafa romb yooyu waaw dafa romb yooyu xadim daw barki démb dama toog bëccëg gi añ jot mu ñëw di ma wax waxi dama daaki fekk ma nekk ci loo xam ne ma ne ko yow tu n'es pas sérieux waaw ma ne ko sérieux moom waxuma li nga sant ndaw a tax waaye sérieux defoo ko waaw yow li ma nekk nga may wax ay wax yi dama daal ci maaf jërëjëf waaw euh, waaw moom xam naa dama koy yemale fii ndax man li ma kii moom li ma li ma li ma xaju xajul fii li ma bëgg a wax xajul fii xajul ci waaw moom daal mbégte mi daal moom wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla ku ne xam na ni ni ngay bëggee ku tedd ki moom munta dara munta dend ak moom waaw loolu moom ñëpp ko xam waaw ah, ñëpp ku tedd kii ñëpp ci am dañuy wax ni diw bëgg na Serigne Touba Serigne Touba loolu maanaam Serigne tubaa moom kenn du ko nangu kenn gën la ko bëgg. Euh, Serigne bi doguma la sax. Mhm. yow dafa mel nii da nga dégg léegi bi may wax wax naa ko am. Mhm. ni ko duma ñëw. Mhm. am na lu ma ko yóbbante ci gànn ci ay wax. wax naa ko sëriñ Cheikh mi moom nga wax léegi. da nga ni sëriñ bi moo dàq suukar dama ni ko gànn dafa wax sànq ci waxam ni suukar ku ne xam na ni neex na waaye sëriñ Tuubaa lu neex la loo gis ñu ne lu neex la te dàkkantewuluñ ko yàlla bu baree rekk soof boo lekkee di lekkkatu suukar ci pikiru ngay mujje dañ lay wax danga jabet ndax suukar su bari neex gaa tax te ku ñu tere suukar tere la lem tere la fruit yi ceeb sax dañ lay wax nattal juróom-ñaari kudd ndax suukar si nekk ci ceeb bee tax ñu ni cere bul ci xababal laax waxi noppi wu ñu suukar kon lu neex lu ne bu ëppee naqari non seulement day naqari ba pare soof ba mu des bëgg yàlla yàlla rekk ngay bëgg lu mu gën a bari gën a neex bëgg yàlla nag mooy bëgg sëriñ Touba ci ko xam yàlla bëgg yàlla mooy dëgg dëgg dëgg bëgg sëriñ Touba. ki ko xam yàlla du samay wax nag ay waxam la mas na ni sëñ Maxtaar Bintaloo neel fere yi ñu sant yàlla mu dem dellusi ba muy ñetti yoon mu ni ko Maxtaar ma ni sant leen yàlla ngeen di am koo leen ciy teg mu ni ko Mbàkke fere yi de loolu la ñu wax mu ni ko ana lu ñu wax mu ni ko yow mii la ñuy sant mu ni ko Maxtaar mu ne ah, mu ni ko sant ma sant yàlla la ci ko xam yàlla kon bëgg yàlla mooy bëgg Serigne Touba ci ko xam yàlla. chakarani hinda jamihi jundihi. waaw mus xasadu ziyaarati min hindihi. li tax ma ñëw nag mooy bi ma la gisee nga ñëw. yàlla xam na ni lii ma def mënuma ko. mënuma ko waaye li la yëkkati moo ma daaneeloon ba ma jël sama àddiya yóbbu. bi ma la gisee nga ñëw nag ma ni kon toogaay amatul. Mm-hmm. ndax dama ñëwuma sax pour canaliser la. waaye dama xam ni bu ma toogul ci sa wet. 9 <laughs> lañ fiy jóge te am mi di la téye te lu ne ngay wax. <laughs> ñoo bokk catégorie bu ñu nekk man ak moom. kon bu amee ak xam naa ne yow mi yaa ma ko yoral tey waaye jéggal naa la ko. <laughs> naanu àndu. Euh, dana bokk waxtaan moom. bu tàmbalee ci sëriñ bi. Hmm. yem ci sëriñ bi. Hmm. mën naa dem ba déwén. bisru lazi bashara xayral ndax du jeex. alayhi taslimahu abqa bushari ñi ngi ci guddik alxamis suba la alxamis ah. sëriñ bi du jeex hmm. dama ni woon rek dinaa ci bu sëriñ bi daaneele tabarakallah ma doog a dellu si gërëm man kay daaneelu ma dama man kay daaneelu ma daaneel kay defuma ko moom dañ laa daaneel leneen waaye daaneel kay defuma ko <laughs> sëñ bi daaneele man kay daaneelu ma jegew ma sax fu ñuy daaneele ah. man man may soog a ñëw ah. fi ñu yow waxugo <laughs> waaw daaneel man daaneelu ma de. da ngaa bëgg a daaneel te waxugo déedéet du loolu maa ne man mii. Ah. ma naan bi sëñ bi daaneel fu ma daaneel. <laughs> ke waxal say wax rek. <laughs> waaw waaw da may may tuuti rek. wax dëgg yàlla. ndax itam soif moom mar moom. mar gis ndox mu sedd moo mën a naan te naanoo. Mm. loolu dafay gaañe mm-hmm. waaw. wax dëgg yàlla léegi nag li Alaaji Mbàkke yu bëgg dinaa ko def dafa bëgg ma am fu ma yem donte moom ma sama bopp itam ndax day am ku may puus dinaa jéem waaye li ma bëgg a wax wallahi nim réew bu ñu bëggee jàmm ji ni wasalaamu ala mani tabaxal huda la daan signé un homme deux signatures wallahu ala man naqul wakil ak wasalaamu ala man tab ala mani tabaxal huda wallahi lu yomb la jafewul parce que ñi comprendre wul nañu fexe ba ñu comprendre ñi comprendre nañu fexe ba ñu comprendre ñi nga xam ni maanaam mbirum àdduna moo leen ñor nañ leen ko bàyyee nañ leen ko jox waaye nag dafa fekk mu ni madda liyal xaqul mubinul xaqa wa bil xiyaaral ulama raqa nekkal savant ba noppi nag mu soog a nekk sa escalier savant yooyu nag tàmbalee leen fii ci yéen waaw leen fii ci yéen bu mbàkkee bu soo jàllee ak faal ak jenn bu ma bëggee lim yi ndax nag daa seexal ku nekk maa ngi fàttaliku man ak Serigne Abdou Karim bu Serigne Fallilou ba ñu gënee nekk ay ndaw dañoo mës a ànd peeku Thiès man ak moom dem ci gaane yi di leen jox loxo xooluñu ku wér ak ku wérul ku nu jox loxo nu jox la loxo def nañ ko ba ñuy nekk ay tuut tànk naa gis ngeen euh, gis nga ko tedd ki boo ko doyloo wóolu ko nekkul rek ci sopp ko rek ak gëm ko danga koy doylu wóolu ko boo ko boo na la doy nanga ko nanga ko jox sa lépp ndax dafa dafa kii dafa dafa maandu li nga ko jox ci sa bopp rek lay téye loolu mooy tax nag doo am fitu nan ak fu ñu la ko mën a jëlale sangoo lii takkal lii ak sol kook diwoo kook doo amu fitam doo amu fitam moo tax ma wax bayit bi léegi xafisani xasamani najjaani xallamani man bil huda najjaani lettre bu ci nekk bu fekkee ay waxam la laa wax man bu ma gaja demee du ma jàpp ma gaja demee du ma jàpp waaw damay fekk leeruk shaddak laamuk ma ne naa laab te damay laab waaw maanaa li am solo daal mooy wóolu ko tey doy loo ko ndax itam nag wax dëgg yàlla <laughs> moom fekk na fi jullee gu war de ku tedd ki bi mu ñëwee yi xew ci lislaam yépp da ko fee fekk yim ci am yépp te keneen amu ko li muy moom a tax ndax fii la ko ndax ndax lu mu def fii la te kenn xamul lii mu bind nii da ko dafa ñëw ba fii mu recopier ko fii wala déet dan wóorul kenn ni muy waxee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam est-ce que fii la ko fii la ko waxee woon ndax wax ce que waxewu ko woon ca alamul arwaax ba ñëw fii nag di ko fi dellu si kenn xamu ci dara li mu nu diggal daal jafewul bu nu góor góorgóorloo daf noo diggal ànd ginnaaw ginnaaw bu nu defee ci buum gi daf nu kurus ba noppi dafa bëgg ñu te jàmm ba noppi tuy dimbalente waaw ñi nga xamante ni bi nag <laughs> mbàkki yu danga may <laughs> danga ma koy woowee falaat rek nga xam ne bu ma ndax man du ma fa yàgg dama naan nii rek danga ma koy woowee falaat <laughs> déedéet dama bëgg rek ñu fexe bañ comprendre lool rek la xam nga am na loo xam ne li Lamine saat bi wax ñàkk xam la loolu la rek nañ fexe ba ñu xam rek ba ñu comprendre rek man damaa bëgg dans quatre ans réew mi commencé développé waaw sans pétrole nii gaz ñu bañ a basé wu ci loolu mën nañoo fexe ba dans quatre ans réew mi commencé développé te du doon pétrole ak gaz loolu rek la lool nag bu ñu tënkoo ci joxoñu ku tedd ki rek day amoo salaam. Euh, euh, euh, ñu sant bu baax ci kàddu yi jotaay bi yàgg na waaye waaw incha allah jotaay bi bi micro baa ngi noonu jotaay bi yàgg na Euh, moom waxagul woon da doon nuyoo rek sant sëriñ bi euh, ni ma ni ma ko waxee <laughs> jëwriñ euh, bi nga ñëwee yaa ngi fi fekk sëñ Mamor Mbacke mu sëñ Abi bu mu sëñ ma dumbe ak sëñ Cheikh Mbacke mu sëñ Abi mu sëñ mu dumbe ak sëñ Mamor mbakke déndéy ak sëñ Jili ñang kennal sëriñ Touba yaakaar naa yaa ngi doon topp li nga xam mooy waxtaan wi ñu bàyyi ko kàddu gi mu yëkkatee rek su ko defee mu daal di mu daal di ñu daal di tàllal si général daal di ñaan ñu daal di yëkkati jataay bi sëriñ bi moom la doon xaar kon euh, yaakaar naa ne li nga doon wax léegi rek ne am na leneen lu dàq lu dul lem ak suukar ginnaaw nag bu ñu gërëmee techniciens yi jàppoon ci liggéey bi yëpp ci réalisation bi ndax damaa bëgg bu jëriñ waxee rek ñu tàllal sëriñ bi ñaan ñu yëkkati jataay bi ñoo ngi gërëm mboolem ko jàpp ci liggéey bi nag ñëpp ñëpp nag ñoo ngi leen di gërëm di leen sant tàmbalee ko ci sëñ Jibril Ndaw sëñ Mbàkke Mbodj sëñ Ousmane Mbuub sëñ Abdou Diouf sëñ daam Guèye mention spéciale sëñ Pape Cheikh Bey seen Ñaay Fay Atumaan Pape Omar Diop sëñ Mansour géey ak sëñ Soumaré ak sëñ Abdou Karim ñëpp noo ngi leen sant di leen gërëm ci seen taxawaay ci liggéey bi ndax rafet na tey wane nañ solidarité ngeen ko def ak madame Badiane Soxna Ndey Ndiaye ak mboolem ñi nga xam ne jàpp nañ ci liggéey bi te lépp di télévision Touba TV ñu ngi leen di sant kuñ tudd rek ñu xam ne suñu xel bëggoon na cee yegg jataay bee yàgg ak ni mu tëddee rek waaye nu ngi koy tuubal sëñ Saaliw bëggoon nañu mu am kàddu waaye gis nga ñi mu xatee loolu moo ko waral waaye incha allah lépp luñ ci war a yeggale rek danañ ko yeggale ci beneen jataay jëwriñ kon ñu bàyyi la kàddu gi rek su ko defee bu boo tënkee ñu daal di jox sëriñ bi mu ñaan waaye nag bëggoon naa nga firil loolu li dàq lem ak suukar ah, te loolu te loolu du <laughs> moom moom daal ñoo ngi yeesalaat ay cant ak i ngërëm ci sëriñ bi muy euh, suñu yaakaar di cheikhul xadim xadimu rasul bu ñu ko sante yóbbaale nañu ñëpp ndax day cant goo xam ne ñëpp la war ñi ko xam def ko ñi ko xamul defuñu ko ak ñi ko xam te defuñu ko yërmandeem nag moo demee noonu ndax ku moom lépp doo bëgg dara yàqu te moom moom lépp lépp nag boo koy wax bu ci dara génnee tuddatul lépp jópp lay tudd waaye lépp sëñ bee ko moom moom moom lépp ndax moo ko moo ko jënd ci waxi waxi doomu aadama ndax doomu aadama jënd ak jaay ak jënd la xam ñun ñi fi nekk tudd doomu aadama dañuy jëndante ak di jaayante loo barile bari barile am na ci lenn loo xam ne da nga ko yittewoo fokk nga jënd ko foog nga jënd ko mm-hmm. ndax mënoo dajale lépp mm-hmm. ci sag moomeel boo déggee nii nag moo moom lépp kon du jëndanteek jaay bi dox suñu diggante mm-hmm. ndax doom aadama amul lépp fokk am lu ko manqué pour mu jënd ko mottalik dundam ki mu ko jaayanteel nag moom moom moom lépp ni mu ko moomee dafa bind lépp muy yàlla yàlla li mu bind lépp soxlawu ci dara ndax du bind mbir ba pare di ko yittewoo parce que nekkul ci boobu réyalité sëriñ bi it li tax mu ñu ni ñu xamal ñu ni moom lépp daf fee wàcc nekk une manifestation de Dieu mais sous une forme humaine loolu nag bu ñu jàpp ni dañuy shirk la ko Seex taxa waxe bërki démb rekk ni du ñu sirk jullit du sirk waaye mën nañ ni sëriñ Tuubaa leneen yàlla la kon leneen yàlla loolu la yàlla jox lépp kon mu génn ci réalité boobu mais ñun ñi nga xam ni dañuy jëndanteeg di jaayante noonu lañ ko mën a déggee ndaxte mënuñoo dajale lépp moom nag moom mooy boroom lépp ndax kam ko jaayanteel moomul raw na moomeel parce que boo jëndee mën ngaa moom mais dafa bind dafa sàkk loo fi gis rek yàlla ko sàkk ci li nga gis li nga mënul a gis parce que ñun li ñu mën li ñuy gis moo gën a néew ci li yàlla bind ndaxte fii ñu nekk ci univers bi ñu nekk am na yeneen yu ñu gisul yoo xam ne bët mënu ko gis nee nañu mulk malakoot jabaroot ak yeneen i yeneen i yeneen i réalité yoo xam ni xamuñu ko sax xamuñu ko te yàlla moo ko bind kon moomeel gi sëriñ bi moom yëmul ci ñun ñii rek ak dun bii ñu ne bala ñu koo xam ñu dem fële dafa parce que dafa ni fil mulk wal malakoot dëxëre yàlla kon ñun li ñu nekk nii muy réalité boo xam ne bii matériel la ci la ñu nekk la nëbbu nga xam ne li ko sëriñ bi waxee woon loo gis mu ni fàng am na lu mu nëbbu parce que kon euh, yàlla mën na doon une matérialisation physique waaye yaa ko dul gis yaa ko dul xam bu ko mënul rek tuddatul yàlla ndax yàlla dara ump ko dara tëwu ko lépp la mën waaye par bañ a yàq bopp <laughs> ah, pour bañ a yàq bopp ñu indi ko ci cadre boo xam ne ñëpp dinañ ko xam ndax dafa jaayante ak yàlla parce que ñun ñi nga xam ne ay nit lañu yàlla baaxe ñu doon ay jullit bokk ci ummatu rasul sallallahu alayhi ñun ku ci nekk wóor na leen li li nga am yàlla moo la ko jox waaye bëggoo faayam bés boo jullee ba pare wula heure bu nekk yaa ngiy tàllal loxo te ki ngay tàllal loxo gisoo ko yaa ngi ñaan bëgg ndolleen kon mu wóor la ni yàlla am na mooy maye kon li nga am danga nga koo ñaan yàlla wala it yàlla jaxi tegtal nga egg ca ba egg ca loola mu mel ni loola mën nañ ko tuddee ak jënd mu na ak récompense parce que boo yemee ci li la yàlla digal loolu amul récompense dafa lay wax ne lii nga war a def pour tudd jullit da gëm ni man maa yàlla maa fi yónni yonent bi maa ak samay malaayika ak samay téere yi ma wàcce ni la nag defal lii loolu yaa koy defal sa bopp boo amee na nga aji màkka nanga génne asaka nanga saraxe ba tamit xam ni loolu nit bu juddoo du ci indaale dara du ci man dara ka fexe ba mu man loola mooy yàlla moo ko may loolu kon lépp kon mën nañ jàpp ni yàlla mi ko bind moo ko moo ko may kon bon bu sëriñ bi ne yàlla moo ma may loola <laughs> yow weddeetoo sëriñ bi yàlla ngay weddi <laughs> kenn weddeetul sëriñ bi sëriñ bi nag débat yu mel nii dafay war di bari day war di bari lool waaye bu baree tamit am ñoo ngi lay félicité au passage di féliciter Cheikh Ball avec toute l'équipe de Touba TV bés mu ne ngeen ni ma ñëwal jëwriñ woo teel ak nangam nangam ma ni man bu ma ñëwee ni sama sëriñ bii laay mel. boo leen jëmee Colobane man damay wëlbatiku jublu yoof xam nga kii jëm Colobane ak yoof bokkuñu fi ñu jëm xam nga lu tax. ni ngeen cadré yenn saa yi man damay bëtt cadre bi li tax loola. Euh, lu lu am nattu la rek loo xam ni yàlla moo ñu ko moo ma ko def ci sëriñ bi oo ma ci sago moo tax lu bari ñu di ko daw waaye yenn saa yi damay seet seen débat dangeen koy yóbbu mu kawe baax benn baax boo xam ni jékki-jékki rek ngeen génn sëriñ bi te doo leen ko yëg waaye xam naa ni boobu euphorie bi moo leen ci dugal xam nga nit day dem ba nga xam ni dootul moom boppam euphorie bi ndaxte booba sëriñ bi da ngeen jàpp ni yéen a ngi ci sëriñ bi te fekk génn ngeen sëriñ bi ndax sëriñ bi xamuñu sax ñun fi mu ne mënuñu ko faa fekk waaye mën nañ koo teg foo xam ni kii ku am xel ku ne dina xam ni kii fi nekk kii fi ñëw ñu di ko gis ki fi ñëw kenn xamul ku mu doon xamuñu lu mu doon xamuñu it li mu man ak ak ak ak fi mu jóge ak fi muy dem waaye mën nañ ca nekk foo xam ni fii dinañ xam ni kii kat kenn fekk ko fa yéen moom la ma kii yóbbul sànq ba sama koppar yooyu bi ma koy génnee ci sama di fa ma ko dencoon di la ko joxe gànn mii ma fa yóbbu ak bishri mi nga xam ni moom li muy wax di ko nettali ci xasida mag yi ba ci xasida les temps modernes muy wax sëriñ nangam nangam lu mu yëfi sëriñ bi la. loolu mooy yëfi sëriñ Tuubaa. Mm-hmm. yow di nga dem ba sa jëmmi bopp di nga xam ne lii nga xam normalul. waaye sëriñ bi bëgg nga génne ko ceddo murit bëgguma woon sax ñu arrêté ko woon naa Cheikh ni kookuy wax de muy suñu mbokk moomu ceddo murit jóg dimbali leen ma bu mu arrêté ndaxte booba mi ngiy wax loo xam ne lii lu keneen parce que ñun jommi nañu ba pare waaye dañ ñuy déglu ñi ñuy déglu bokk ñoom ñun parce que dafa am ñoo xam ne bu ñu lay déglu ñoo ngi taataan di di di neey ci li ngay wax am ñoo xam ni ñoo ngi lay déglu tey xalaat foo jàdde ak li nga wax lu luñ ci mën a corriger te nag ni ko sëriñ bi waxee booy wut ko jàng ak intellectuel boo ñëwee ci taalibe murit boo yeboo nga yem fa lépp lañu xam dañoo bari xam-xam ma xam-xam ba li sëriñ bi wax xafistu boobu mu wax du moom de mu ngi ci ndongo yi li ndongo yi xam newul ci téere yi jànguñu ko fenn mbaaxuk sëriñ bee leen dugg la yàlla di wax boo ma yaakaaree boo ma jaamoo boo ma wóoloo ma xamal la xamal googu nag mooy xamal gi nga xam ne bii mooy xam-xam bi wér mooy li jar a xam <laughs> waaw xam-xamu yàlla loolu mooy xam-xam bi nga xam ni mooy xam-xam bi jariñ ndax xam-xam yooyu yépp koo dégg ñu ni bari na xam-xam ak lu xam-xam ba tuuti day xam-xam boo xam ne bii yàlla moo ko wàcce ngir nit ñi xam ko jariñoo ko lii yàlla dina ko xamal jub ñii dina ko xamal tuuti ñii dina ko xamal ñemu tànn ñii du ko xamal kenn am na xam-xamu yàlla yoo xam ne yi kenn xamu ko. waaye dégg ngeen li sëriñ bi wax la ko yàlla xamal. waaw. allamta yàllaahu yooyu ay xam-xam la yoo xam ni. sëriñ bi. waaw ci benn mbaa ñaar. Ah. Mm-hmm. Mm-hmm. Ah, mm-hmm. nga loolu kon xam-xam bi nga xam ni. mi ngi ci taalibe yi. taalibe yi sàkkwuñ ko. wuutuñu ko. gis nga li ñu nekk Touba. xëy di ndékki. bu tisbaaree ñu añ. dañuy naajal sañ añ sax. xam nga kuy bañ ku la xaaraan da ngay teel a yekk ba pare te booy yekk nëbbatu Touba dañuy yeex a añ bëgg xaaraan bëgg nit ñi gën a bari reer bi minuit la bëgg ñu xool ku yéex a ñëw mën a fekk reer bi te seen dëkk Touba seen seen jariñu ajiwul ci loolu mu ne yàlla na nga leen dimbali ndimbal goo xam ne bii du aju ci seen kër kër nanga leen yóbbu aljana te ba mu aju ci seen jaamu yàlla na leen xamal xam bi mu leen xamal ni mu ñu joxe wërsëg wi joxe ñu tab gi joxe ñu li nga xam ne lii mooy li ñépp di wut mooy bu ëllëgee yàlla yàlla yàlla yóbbu ñu aljana noonu la ñu joxe xam-xam bi xam-xam bi benn benn benn benn benn benn benn condition la am mm-hmm. mooy bëgg Sëriñ Tuubaa boo bëggee sëriñ Touba lépp ngay xam wala bon li nga bëgg xam lépp dinga ko xam te bëgg sëñ Touba rekk moo koy maye ba nga xam ni li ci des muy réew mi nga xam ni fii la sëriñ bi tànn moom tànnul dem Mali tànnul dëkk feneen fii la tànn Sénégal nga xam ne loolu am na raison boo xam ne bii raison cachée la li tax mu tànn Sénégal moo ko xam nit ñaa ngi gëstu nag di xool position Sénégal position géographique ni mu mel ci àddina beeg ni mu mel ba ñi nga xam ne dañ daan def sax ay numérotation te numéro yi dañuy jël rek di ko jox ab dëkk ñu ni dakaar mooy nangam mooy nangam nangam 221 même sur le télé téléphone nga xool ni ñu joxe dakaar numéro boobu 22 mooy Mbacké 1 mooy kan yàlla suñu boroom te ndakaar fi Sénégal mooy 221 fii rekk la xiblaam ak penkoom jëm ci benn nu mu tuddati fii tamit le Greenwich zéro la boo demee ne moins boo ñëwee nii plus un ak yeneen yu bari yoo xam ni gëstukat yi gëstu nañ ci moom la sëriñ bi taamu ñëw fii kon fi gën day ñëw moo taamu ñëw fii nekk suñu wërsëg waaye yàlla def it ñu am ay nawle yuñ ko yuñ ko seqal li sëñ biy junj ak muy ne ci xol beeg di bëx bëxi jaruta jarut jaru ko sëriñ bi li sëñ Moustapha wax ma benn bés bu sëñ Abdul Xaadir ñoo ngi koy nuyu au dafa ni sëriñ bi ab ràbb la dafa ràbb ba dagg bàgg bàgg jigéen ñi xam nañu lan mooy bàgg mooy sëru rabal yi boo daggee bàgg da koy rouler mu doon ab rouleau nga xam ne sor yépp a ngi ci moo xam juróom-ñaari sor la bu ki juróom-ñett ça dépend largeur euh, nu mu tërati bi sér bi nee na bés bu ne rek mu xëcc dara dara feeñ fekk ràbboon na ko ci ësal kon nañ ko wóolu nañ ko yaakaar xam ni lépp Sénégal li ma li ñu koy faral di wax dëkk bu tuuti la dëkk bu néewi habitant la 16 million la ñu te ay étranger ngi ci biir koom-koom li bariwul koom-koom li bariwul nit ñi bariwuñu superficie bariwul waaye lépp fii lay mujj dëgg wax ko nag xaw na xaw na xaw na jafe Serigne Saliou yal na yàlla yokk ay ngëneelam moo ma waxoon si la doon na ko nettali bërki démb ci Touba TV mais nam ko nettalee sax xam nga nettali moo ni ma loo gis fële ci réewu ardul arabiya ba di ko naw lu ko ëpp ngi fii nee na te la mu na mu na mu yeexee feeñ fële lay gaaw a feeñ fii te yéen rek a tax sëriñ bi di ko sàkku te sëriñ bee ma ko wax tudd nañ fi sëñ Ablaye Jaxate boobu ñëwaguma defe naa sëñ Bichri moo doon nettali woy wu mu woy sëñ Saaliw moo ma wax ci gémmiñam yal na yàlla yokk ngëneelam ni ma ndakaaru gëla nga dëkk mu ne ah mun ma nang fa boo fa amee pàkk nang ko jaay te jënde koy pàkk Touba ma ni ko ndax lan mu ni ma des na tuuti nga jaay ñetti pàkk yi nga gën a naw ndakaaru bëgg benn pàkk Touba mu tëla ni ma fii nga dëkk mu ne ah, mu ni des na tuuti nga tabax ko ca kaw nit ñëw fay la lu toll ni li nga ci def ngir bëgg dëkk ci kaw rek ñi ma dinaa la ci jox misaal ni ma bés boo gisee ndakaaru ñu tëj ko balaa kenn dugg ñu jox ko këyit jàppal ni wërsëg wi sëriñ Touba def ci suuf si commencé naa feeñ ma ni woon mi ngi ma ko wax yàgg na war na mat léegi fanweeri at ak juróom wala boobu laay doog a jóge France may xel ci sama xel nit Sénégal lan mooy xew Dakar bañ koy tëj day am épidémie wala day am nangam ak wala day nangam wala guerre daf fii am mun ma dinañ ko tëj ba kalaa dugg rek ñu jox la xam nga boo xalaatee geer ak niñ la jàngalee guerre nga xam ne dañ daan jox nit ñi ay ration ay ticket yooyu boobu xalaatuma autoroute à péage mun ma bés boo demee ba gis Dakar kuy dugg am nga bu koy doog a dugg mun a mun ma jàppal ne tàmbale naa feeñ yooyu mag wax la ko dem àjjana nga di vivre situation yooyu war nañoo xam ni lépp a ngi fi te lépp ci loxol Serigne Touba lay mujj li ci des nag mooy seet naka lañuy dunde ak suñu mbokk yi ndaxte wërsëg bu ñëwee Serigne Touba ba muy ñaan waxul xaj ak seen irham jamial waraa rek la wax te ñooñu ëpp nañu senegal bul ci génne waa Mauritanie bul génne jur ga fa ne bul ci génnewaa Argentine bul génne sax jur ga jur ga fa ne noonu moom la ndaxte dama ni ku moom lépp doo bañ dara yàqu te sëriñ bi moo moom lépp sëriñ bi ñoo ngi lay gërëm di la sant di sant sa njaboot gi ñu fi fekk yépp di sant sëñ Mamor bi nga xam ni ñoom référence lañu ci yoonu murit ndax bu ñu waxee liggéey gëm sañ Touba ak liggéeyal sëñ Touba ah, ci ci xel yépp ci maamam rek lañuy dem di sant ñi nga xam ni ay ambassadeur lañu ñoom ambassadeur itinérant lañu yu sëriñ Touba mooy gànn mi ak Bichri ak am ak ñi mel ni moom ak ñoom Cheikh Diop ñii yéen ay ambassadeur sëriñ bi nga foo leen di dem dee leen sañse ndax li ngeen di wax muy xasida sëriñ Touba ñu baax ñii di ko nettali keneen waxul lu mel noonu bari wax rek a fi ne mu nekk mu nekk un verbiage boo xam ne bii la cay jariñ amut solo boo gisee jamono bii nëx mel ni mu mel nga xam ni ñëpp a ngi jaaxle fi ñu yaakaaroon wàllu ñëpp a ngi fay moytu fii mu ne kon ni da ngay dem France mun la déedéet Angleterre tëj nañ ko états du jëmukaay màkka nee nañu bu kenn ñëw tëj nañ ko ñu ni tëj nañ ko fu des déet dañoo dañoo dañoo sóoraalewul sëriñ bi sóoraalewuñu yàlla te yàlla kat yàlla kat ku ko fàtte ku ko fàtte daf koo neex yàlla ku ko fàtte daf ko neex boo gisee lii xew du dara lu dul lu ñu def programme bu ñu def dañ ciy génne yàlla du ñu def benn doos boo xam ne bii dañ ciy sóoraale suñu borom te Sëriñ Tuubaa lu mu wax ni yàlla kon war nañoo jàpp ni bu ñu delloo buum ca mboy mboy ga rek xam ne sëriñ bi mooy lépp sans borom jox na ko lépp kon lépp dina jàkk kon ñoo ngi jégalu di di wax ni guddi na ah di ñaan di ñaan jotaay yi yàlla na yàgg ñi borom ka waxtaankat yi nga xam ni daanaka bu ñuy wax mhm. da ngay bëgg di déglu mais doo bëgg a wax. doo bëgg a wax dëgg ndaxte munoo wax ba wax li ñuy wax. Mhm. te ñoom li ñuy wax lépp kat mhm. waxi ku tedd ki rek la. inventé wuñu dara suñu dara. te kat li ku tedd ki wax yépp eggaguñu ci li mu waxal boppam. ndax li mu waxal boppam eggaguñ ci mm-hmm. gisuñu ko xamuñu ko mm-hmm.